xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka borom Touba ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkkaya sa jàkk taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba te booba ñooyay ku gis xutbu jamono bu am fi yow ca jiital leen borom Touba mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii bu dee ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànnee foon borom ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkka ya sa jàkk taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana ñooyay ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka jiital leen borom Touba mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa ngeen biral ne ka tànnee foon ci kaw sëriñ si ak kaw sëriñ xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Touba ko jàkkaaya sa koor taxaw fa billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين يا رب الإصرح في دواء من صدري صرحا به أكون مثل بدري رب إصرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لثاني يفقه قولي بك يليدي بك طالبي بك تلسفكتاتري جنا بنيان الشيخ محمد المنتخى مياق في تبير نوغي نوي بولم mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ñu topp ci Touba TV ci réew mi ak bitim réew di ñaanal bu baax a baax mboolem kilifa yi diine ci réew mi di ñaanal itam mboolem kilifay yi aada yi dil siwaat ak yéen ci seen émission bii di kenn sëriñ Touba Khadim Rasoul àllarba bu jot ngeen di ko am fii ci Touba TV ñu di leen ndokkeel nag ci koor gi ak li ko jiitu ak kor wi xam ngeen ne boobaak léegi ñoo ngi door a defaat jataay eh, di ko jéggulu bokki taalibe yépp eh, di am mbégte bu baax a baax ci waxtu wu nekk ànd gi ngeen di ànd ak ñun ak di ñu ko topp noo ngi ñaanal bu baax a baax sëñ Abdoulaye Diop mi nga xam ne ni àllarba ju nekk moom lañ baaxoo àndal jataay bii muy borom xam-xam bu mag eh, di ko bu baax a baax di ko ñaanal yàlla gën ko doli kattan may ko mu yeggale lim na ma liggéeyal sëriñ bi ci waxtaane ko ak ca tasaare xam-xamam euh, xam ngeen ne tey jii nag euh, nekk ci ay liggéey yu ni mel rek moo waral teewul ci jataay bi waaye nu ngi koy ndokkeel fu mu mën a nekk dogal ngant itam mbokki taalibe bi yëpp di leen wax ni itam mu ngi dogal ngant jëme ci seen jëmm yi ñu yu baax waa kuréel kenn du sëriñ bi di leen ñaanal bu baax di leen sunu borom defal leen tawfeex kàttanal leen ci topp gi ñuy topp jataay bi nuyoo boobu yëpp buñ ko tegee ci loxol sunu yaay aw Sow dafay mel ni dafay mën a tasaaroo ci mboolem ku nekk ci groupe bi ñëpp ñoo ngi leen di eh, ziyaare bu baax a baax a baax a baax di nuyu jëwriñ Alaaji Mbàkkiyu Fay eh, mi nga xam ne mooy représentant xalif général des Mourides fii ci Ndakaaru di ko ñaanal bu baax a baax yàlla may koy ndam eh, di ko ñaanal yan bi itam suñu borom woyefal ko di ko ñaanal itam mboolem koo xam ne nii mooy mu ngi yëngu ci wetam te nekk ci euh, masaalikul jinaan ñu ngi leen di ndokkeel xam ngeen ne démb rek def nañ point point de presse bu yaatu boo xam ne moo ko doon def ci ndégalu sëriñ bi ngir bëggoon rek euh, ndigal li nga xam sëriñ bi joxe na ko ci le 27 bii nu dëgmal Cheikh Mouhamadul Mountakha war a ñëw ndakaaru gane si taalibe yi ziyaare leen waaye ñu ziyaare ko mu ñaanal nu loolu incha allah euh, ajjuma fi lay jullee le 27. ci masaalikul jinaan di ko yégal bokk yépp xam naa du ñàkk bala ñoo jeexal sax danañ ci dugal quelque ci élément yooyu jëwriñ wax fa waxtaan wu am solo woo xam ne njàpp naa ne buñ ko digtalee bokk yi danañ ko mën a jariñoo ñuy nuy baax sëriñ Cheikh Balla Samb mi coordinateur télévision Touba TV di nuyu sëñ Jibril Ndaw directeur de programme ak sëñ Mbàkke Mbooj muy doxal production bi ak ñi seen ginnaaw yépp ñu ngi leen di nuyu baaxoo ànd ak émission bi sëriñ Daam Guèye Murid Saadix ci réalisation bu solo yi nga xam dana koy def ci télévision bi rawatina kenn du bi di nuyu sëñ Mansour Guèye jekk baylaat nga xam ne saa su nekk moom it moom la ñuy àndal jataay bi ah, tey jii nag ñu am gan gu mag goo xam ne yaakaar naa ne ñu bari doon nañ ko xaaral ngir fas yéene taataan ay doom ci ni muy waxtaane Serigne Touba ak melokaan wi muy koo xam ne nii ñu bare bari ci bokk yi dañ koy namm lool ndax waxtaanam eh, waaye itam muy jàmbaar ci yoon wi liggéey liggéey bu am solo muy sëriñ Saliou Samb eh, di ko ziyaare bu baax a baax di teew gi mu teew ci jataay bi fas yéeneen nu waxtaane borom tubaab mi nga xam ne waxtu wunu xëye di ko waxtaane te duñ ci jeexal mukk te duñ ci màndi mukk ñu di ko ziyaare baax waaye nag fas yéene àndandoog jataay bi itam yeneen ñaari jëmm yoo xam ne eh, du nu gan ci télévision bi ma tàmbalee ko ci sëriñ Ousseynou Guèye xasida sëriñ Ousseynou nga xam ne waxtu wum fi ñëwee rek su demee xooli murit yëpp day sedd ndax damay wax ne ni muy jàngi xaside yi worma ji ak teggin yi ak jikko ju rafet ji ak bàyyi gi xel worma yoon wi wax dëgg yàlla foo ko takk romb na ko ak disponibilité bi mu am ndax démb rek laa ko woo ma nga woon Louga mu jàmm mu sawar lool ci ñëw ci jataay bi ndax da koo jàppee rek liggéeyal sëriñ bi ñu di ko ziyaare bu baax a baax a baax di am mbégte ci bokk ak moom jataay bi di ko jottali itam nuyooyu mbokki taaliba yu bari nag mu feggoo ak sëriñ Yande Gueye xasida sëñ Yande moom xam ngeen ne yoon wi ñu fi mujjee moom tubaarkàlla mbokki taalibe yëpp dañoo mujj xam ni e, sëñ tubaa rek a mën a defar ndax e, ni muy dunde xaside yi waaye wolofal yu am solo yooyu nga xam ne sunu xarit di sëriñ Ahmadou Baas mi ngi koy defal sëñ tubaa mu di ko yëkkati waaye keroog bi fi sëñ Yande mujjee rek benn question rek laa ko laaj noo defee xaside yi mu ne xanaa damaa judd rek na ci ñu yar ma ci muy sama bëgg-bëgg ba ma yegg si ci fii ma ci yegg si te dama koy def liggéey liggéey liggéeyukaayu sëriñ bi kon nag nu ko siyaar bax noonu nag dañ koy bëgg bu baax a baax moo ko sëñ Ousseynou moom heure bu may def ak ñoom émission rek yàlla na yegg laay wax waaw yàlla na yegg ndax noonu daal doy na keemaan di nuyu baax sëriñ Saliou Mbacké muy sunu xarit di ko xam ne nii waxuma cër bi mu am waaye taxawaay bi mu am ci wetu sëriñ Bassirou Mbacké am Cheikh Abdoul Khadir Euh, benn la euh, tey mu ñëw moom itam bokk ak ñun li nga xam ne mooy émission bi ñu am mbégte lool waaye mi ngi feggoo ak Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Fallou njurul xam naa moom it dana si léegi ci plateau bi muy sunu xarit nekk fële ca Gorom 2 dafa liggéey Serigne Touba liggéey bu am solo waaye nag sama xaritu bopp di Serigne Sidi Mouhamed Diatara moom it mi ngi nii toog ci plateau bi moom Serigne Moustapha Diatara di borom xam-xam bu mag nag di koo xam ne émission bi même bu ci teewul mu ngi koy topp ndax moom dafa bokk ci conseil spécial yi nga xam ne. heure bu émission bi jeexee dana joxe xalaatam joxe itam li nga xam ne mooy taxawaayu émission bi teyit it ñu rafetlu lool xam-xamam ak jikkoom ju rafet maa ngi ko doon tudd léegi sëriñ Moustapha Mbacké eh, moom sëriñ Fallou Njurul nga xam ne eh, wax naa rek léegi na sàngal kaam lañ jóge rek ma wax ko émission bi mu ñëw ndax ni mu mel ci borom tubaa nag eh, te it jàpp naa ne loolu ñëpp nangul nañ ko ko ak li mu defar nag ci ndaw ñi loolu bu émission bi soree di ngeen ko dana feeñ Euh, ndax li mu defar ci ay ndaw kenn xamu mu toll balaa sunu gan gee si nag sëñ Saliou Samb sëñ dàmm ndax xam naa ne léegi mu war a dugg si ci plateau bi ndax yegg si na ci émission bi euh, waaye bala moo yegg nag ci plateau bi ndax mi ngi ci télévision bi waaye yegg seegul ci plateau bi bu sëñ Ousseynou ubbee ay bayit sëñ Yande ubbi damay ubbi ligne bi jël euh, ci ay mbokki taalibe tey ñu wax ma ñoom ban thème lañ bëgg Saliou waxtaan ci sëriñ Saliou Samb man nag am na thème bu ma tàmm damaa xamul ndax bu dee bi ma tànn d'accord ngeen ci ñu wéyal boobu mooy sëñ Touba 1852 wala 1853 ci wuute gi ba 1927 amul benn date boo xam ne ni at moo xam ne jaar na fi te sëñ bi date boobu surchargé wu ko ci lu baax ba def ca dara date yu marque yooyu bat date phare yooyu buñ la nee 1882 wala 83 sëñ moo Anta Saly génn àddina ci la njëkk def déclaration solennel wax ne man Ahmadou Bamba ma ngi ni damay wax ne la ilaha illallah muhammad rasulullah lolu ko ko wax dugg ci l'islam waye ko wax badaliya anna allah la rabba ghayruhu wa anna fa khal wara khusna wax nga la ilaha illallah muhammad rasulullah sëñ touba don ko teunkul fo shahidtu anna allah rabbul khalq wa anna ahmad rasulul xaq lolit ko wax nga la ilaha illallah muhammad rasulullah dat far yoyu 1918 tegu xeeru jumaa ji 1912 ñëwam njaareem 1907 dem Thiéyène 1903 demam Mauritanie 1895 dem ci liggéeyam bi 1902 ñibbisi 1925 inauguration jumaa ji 1925 27 ñu mujj gis sunu jàmbaar jële 19 juillet talaata 1927 ca lañu ko gëj a gis ci saayir date yu marquant yooyu laa bëgg tey sëñ Saliou ñëw ñu date boo date yooyu lan la coincé de lan la dajeel ci contexte boobu ak yan ak yan ak yan la dajal nga xam ne sëñ Touba bu nuy wax ak njàmbaaram du doon baatin waaye saayir la suñ mën a teg loxo loolu nag bu fekkee d'accord ngeen ci ñu wéyal tem boobu su ngeen di xëy beneen tamit ñu wéyal tem boobu li xew daal mooy dama ko ne tey daal sëñ Saliou damaa namm sëñ bi bëgg nu waxtaane ko ca kaw mu ne ma loo ko gën a kawel ma xeeb ko mooy nun euh, xam nga man barki dem rek maa ngi koy wax télévision bi dama leen ne da ngay dégg ñu naan dañuy yokkal sëriñ bi c'est sëñ bi daa am histoire problème bi mooy ñun ki ñuy waxtaane daa am histoire jaloore beneen bi ci topp mooy daa bind teg nun lu nu wax dañ naan moo ko bind bi ci desit lu mu jëf dañ ciy mën a teg suñu dox moom moo tax waxtaane ko du jeex ku am nag sa histoire jeexut du fi xaj <laughs> baarakallaa loolu moo waral eh, lu mu gën a kawe rek gën a baax ndax fu ko teg yàlla teg na ko fa gën a kawe ndax suñu borom mooy fay te suñu borom fay la sëñ Tuubaa tey it wan nañ ne sama borom fay na ma te loolu saa si rek buñ ko xoolee mën nañ koo nattable sëñ Ousseynou bala maa sori dama lay bàyyi nga ubil nu khasida sëñ yande ubil nu ba nopi ngeen dooro nuyo nuyoog téléspectateur yi ñu dooro duggal xamna xam dam bu sëñ Ousseynou ubbi ak sëñ yande ba noppi ci ngeen di dooro duggal li nga xam moy numéro bi ñu mëna joko ak bokk yi sëñ Ousseynou bismillah bisimilah ولذلك قلت من البسيط جزاك الله إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا داريك أولاك فاعلم بأنك عندي سردا أبدا وذاك ربحك في دنيا وأخراك فالدم على أصدق والإخلاص مجتهدا في سر والجار كي تنمو مضاياك في سر والجار كي تنمو مضاياك ألهاق ما تفرخ من إسلاخ سرعي فلتأتينا زيارة أيضا لتدخل الدار السلام دار السلام والسلام لتدخلوا الدار السلام دار السلام والسلام رحمة الله يا نعيم الجنان أنت حبي وأنت نور الجنان رحمة الله يا نعيم الجنان أنت حبي وأنت نور الجنان خرة العين يا بشارة قلبي أنت طيب الفؤاد يا ريحاني أنت بعدي وأنت نسفي وجلي سين بامبا انت كلي في سر والنهلاني يا طبيب الأدواء أنت طبيبي بكارجو دواء كل زمان يا سرور القلوب أنت سروري بك أهي بذكر كل مكاني يا حياة الإحياء أنت حياتي أنت روحي في نفسي والجسمين أنت سري وسر سري فضم لي في حياتي إلى دخول الجنان أيا خديم الرسول حبك الديني أنت عبد الرحيم والرحمن يا خديم الرسول حبك ديني يا خديم الرسول حبك ديني أنت عبد الرحيم والرحمن يا خديم الرسول حبك ديني يا خديم الرسول حبك ديني أنت عبد الرحيم والرحمن يا خديم النبي السلام عليكم وتحيات الله من رضواني مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم عند كل حرف القران كسن توبا باي nga nuyo walé ben yon rek ak mbokk yi lay sétane continue hmm hmm waaye dañuy jaar ci ñetti bay ci Sëñ jubaa yooyu ñu jiital te mooyoon ko jàmbaaram ju tedd ja Cheikh Ibrahima Sarr te muy sunu bunt ci moom dañuy jaar ci ñetti bayit yooyu rogalaat si ci fukki bayit yooyu nga xam ne moom Cheikh Sàmba Jaara Mbay te ku dégg sunu tur euh, dégg euh, turam waaw ci liggéey bu mu dimbalee nu nu di ko fukki bayit yooyu nga xam ne si ne moo moo moom la daan nuyoo sëñ Tuuba mataamu cee jaar ci yu mel nii yu bari ngir barkeeloo ko ci nangul ga ko sëñ Tuuba nanguloon ba bu masaana jub kee si njaareem yi di ko def der ci kaw fu sëriñ bi mën a nekk di tijji bunt yi di génn si ngir safoo gu mu daan safoo ay bayitam ma ngi jaar ci beydi yoy mu ko daan nuyo di nuyu aduna. waye di jaar ci buntu yoonu murit wepp man naa ni sax buntu l'islam bi yëpp ci jamono bi ñu toll tembe moy Cheikh mohammedul Muntaqa Basiru di ko di ñaan sama borom yagal ko te wéral ko te bàyyi ko fi ci sunu karam ba limu naal ci serigne bi lepp mu def ko nu kawé ndort te yag ko ànd ak mbooleem taalibe yi waaye noonu la Cheikh mohammedul mustafa sar di xalifab cheikh Mamadul Basir jaamu sëñ Tuubaa euh, setub cheikh Ibrahima Sarr boobu ma jiital ñetti baytam yooyu ko sëñ Tuubaa wax di ko nuyu te di ko siyaare moom mbooleem rakkam yu tedd ya ak njabootam ga nuyu sama wayjuru góor Alaaji Daawuda Géey mi nga xam ne moom it liggéey bi nuy liggéeyal sëñ Tuubaa ci néegam la tëjoog man ca Tuubaa ne ma maa ci daan liggéeyal sëñ Tuubaa magal naa doomi sëñ Tuubaa yee ma daan woo ma di leen yëkkatil bayit yi te jëm naa mag te bëgguma liggéey bi dakk dama ko bëgg a teg ci sa loxo nga wéyal ko maa ngi koy siyaare di siyaar mboolem njabootam gi di ñaanal soxna su tedd ja àddina ca jiitu soxna Roqeetu ña nga mboolem njabootam gi di leen siyaare waaye di siyaare bu baax a baax a baax sëriñ Moustapha Mbaye xalifa Cheikh Samba Diarra Mbaye ak mboolem njabootu Cheikh Sadio gi ak Cheikh Samba nuyu mboolem àdduna rek xam naa ni dama yemale foofu nuyoo bi ba dellu siwaat Eh, waye jaar ci sëñ Mouhamadan Mbàkkeem Cheikh mohammedul murtada manu bayiko ci eh, njambur ta mu nekkal fa serigne bi ak serigne Jili Mbàkke Madina serigne khadim mbake serigne mbake Soxna Lo serigne khadim serigne ahmed serigne mbake Amar buguma dugg sax ci lim ndax man na baña mat mbollem ñi ñu ñep ma ngi leen di ziar di la ziar bu baax nag sëñ am tay ziar borom kër gi di sunu baay mbake yu nga xamne li sababu sama ñeuk a gisee ak mom ta defena ben yon la ma sam moy sama bi may tuddu moo ma wax ne ma damaa bëgg nga dem ba ndakaaru jokkal ma sama wëllëre ci alaaji mbàkk yu ndax daf maa nuyu ñaari yoon defe naa bi ma fi mujjee wax naa ko ba ñett te xawuma ko ñu wax ma ne ma kii mooy mbàkk yu bi ma ñëwee ba ci moom wax ko ne ko sama baay moo lay jot li am nuyoo leerale ko noonu mu ne man ndeysaan maa ngi ko xamee ca France booba c'était étudiant di jàng mu ma noonu xasida yi lool ak xasida yi maam Samba Jaara Mbay yi foofa laa ko soppe ba tey jii mënumaa fàtte xar kanam gi ndeysaan loolu moom moom kon maa ngi jaar ci moom di ko nuyu di nuyu mboolem ñiy liggéey ci tele bi di la siyaare bu baax a baax di siyaare sëñ Bisri mi nga xam ne si moom lañ ko daan moom bi ma fi mujjee defe naa ko bokkal ak sëriñ euh, Saliou Samb mu baax mais mm, war a bokkal jataay bi ak sëriñ Yande mii ak mboolem sunu kilifa yi ñu bokkal jataay bi tañ toog sëriñ Saliou gëy mu xaddimaat mii ma àndal jóge Louga ak sëriñ lamin Guèye sama rak mu dawalal ma ba fii ak sëriñ Modou gëy di jëw jëwriñu sunu sopp yëpp ñoo ngi yemale fii nuyoo bi ba delsi yu am solo yooyu eh, yëkkati gi moom yaakaar naa ne commencé na tàmbali na sax émission bi eh, xam naa ñoom soxna Salimata Ndiaye ca eh, Italie moom ma nga commencé daanu naan ma sëñ Saliou moom te ñëmuwut a daaneel te ñëwalu ma ci sëñ Saliou moom joxe na temam moom nee na sëñ Saliou sàmb sëñ Saliou la koy waxtaanal njaayeen boobu ndeysaan moom murit la bëgg sëñ bi lool ñu ngi koy ziyaare ak waa Italie gépp eh Yandé ñu bàyyi la nga ubbil nu ak xasida yi bala noo eh, wéyal li nga xam ne mooy bi hmm, bismillah bismillahi arrahmani arrahim liyallahu qur'anu jibrilu muhammadun muhammad للمصطفى نويت ما sunnatul سنة القرى ahmadu lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatul qara wa inni ahmadu yuhinuni ala sawabi samadu bija khayr al qalq amal jayidu arsala khayr al hal al ahadu nahmal ilaha la karamul lillah الله عمود مع ذكر يقلد دوام ملك نافع ينفرد لا قتاب حامدا وينجد على الذي في الجنان أقذد هب لي كتابك وثم يقلد بسر لي يا أكرما وحد inna kitaaban jaabihi muhammadu salla alayhi bi salaami samadu lana bi inqaadat hudan wa razadu bi ala rabbil wara nahtamidu qaada lana alqur'aanu ma la najidu fi qarine ma alkitaabu labyadu رد مكاره لا طريد باق به لي المنى يقلد آياته إلى ضوانا تطرد بلنة عن قبل انتعام يرسد إلى ضوانا ما يذوء يقذد في أبد بالجنان نرد نبى لغيرنا به محمد مضى أنا وخنبا ذمد جميل التسليم يدوم المضد به على ندب أمين يحمد بركة عظيمة لا تنفض على أمين في الكرام يعد ربنا ظلاما بذنن يجدد لقائد هو المطاول أمجد يا الله يا رب الورى يا ضمد يا من به اقتدت كرام الحبد لمن به من قاداه مضد قلب ظلاتا بظلام يحمد من مثل ما ابتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد هوا نبينا رضول أحمد تقديم من هو القديم الأحد من يمنه أعطى الكرام المضاد هو الإمام والثبي الأجود من ربنا به يضوم الرقد لنا وينعو لذوانا النكد درجة المختار ليذ تجحد ونور ساتع ليذا يحمد درجة المختار ليذا تجحد ونور ذات ليذا يحمد من ربنا به يضوم يضو لنا وين لذوان الكمد حبيبنا المختار بان ضدد وما هوى في القر ليذ يجد محمد هو ذجاه الذناد هو الجميل وذقي ضيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورذول منجد دين سوى إسلام لا يحمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلام لا يحمد عند الإله وبعي نجدد بارك بروم توبا jërëjëf sëñ Yande e, ñu nga nuyo hmm assalamu alaykum wa wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baaxa baaxa baax a mhm. bi mhm. di jital ci nuyo bi al di diko ñaanal mu yàgg fi lool te gëna wër barke mam Cheikh Ibra e, di nuyu bu baax a baax sunu uh, jawrin sunu kilifa gi ñu bokkal jotaay bi serigne Ousseynou ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara ñu ngi safo njàng bu baax ak jëmuji di nuyu bu baax sëñ Amidou sëñ Amidou mom sama sofel lu luji li yëpp <laughs> ñu ngi lay nuyu bu baax di la waaw di di siyaar bu baax a baax baax sunu buntu ci Cheikhul Khadim serigne Mamadou Asta jaxate ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér ja Abdullahi di nuyu bu baax a baax ak siyaara sëriñ Mbàkke Jaxate ak ak ak mboolem mboolem kilifa yi yëpp rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax te di leen jox seen wàccuwaay di nuyu itam boroom kër gi bu baax a baax euh, sëriñ Mbàkke sëriñ Mbàkke moom moom euh, gaynde la ci yoon wi ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko siyaara ak mboolem mbokki taalibe yi bàyyi xel tey safoo njàng mi rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te di leen siyaara bu baax a baax a baax alhamdulilah baax ci ab yaat yooyu mu ubbi xam naa ne ñii topp ñëpp xam nañu ne euh, Pastef bi nga wax moo nga xam ne moom laa ubbee mu tàmbalee ci moog sëñ Ousseynou jàpp naa ne ñii seetaan ñëpp seede nañ ko ci seen taxawaay kon nag bay di ku ko déglu rek euh, di nga xam ne ci xol rek la jóge euh, sëñ Mansour dafa mel ni sëñ Saliou yegsi na balaa ñu ko dugal mu yegsi ñu mën a jël ay téléspectateurs ñu mën a tàbbi ci jataay bi sëñ Mansour Guèye euh, tubaarkàlla gis ngeen noonu sëñ saaliw euh, ñu ngi ziyaare bu baax euh, mbooleem soppee sëriñ Saliou Samb yëpp ñu ngi may yónnee ay bataaxal ku nekk nag nga wax na sëñ Saliou wax ci Cheikh Ibra ñii ne na wax ci maam Thierno ñi ne na wax ci sëñ Mor jaara waaye lu mën a xew moom moom waxtaan ak bégal taalibe rek moo ko fendi kon su ko defee sëñ daam euh, bala ñoo sëñ Saliou di egsi ci plateau bi euh, ñu jël téléspectateurs yi damaa xamul ci ban liiñ la ñuy jaare lu mën a xew sëñ Saliou ngi leen di déglu su ko defee ñu euh, mu ngi noonu 33 825 la 09 vingt cinq 09 60 kon mu ngoog ku ci tàbbi rek di nga ñu dañoo bëgg nag ku tàbbi rek wax ñu ban thème incha allah lañ bëgg nu waxtaane wax naa leen itam thème bi nga xam ne nii moom la ñu jëloon aleyka salaam wa rahmatullah sëñ Amidou Diop bëgg sëriñ Touba. alhamdulilah rabil aalamiina cheikh bi noo ngi lay jaaree. ndongo la ñuy wax Thierno Gueye bu sëriñ Cheikhouna ibnu Cheikh Abdoul Ahad. Baye Thierno Gueye sama nijaay taalibu bu Abdoul Ahad. namm leen lool nag te leen siyaare. ah ñoo lay ñoo la raw. sunu mbégte yokku tey bu ma séenee xar kanam gi rek. ndeysaan. damay mel ni damaa gis Serigne Touba. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah. alhamdulilah ndaxte yéen du ngeen dox ci lu dul sëñ bi du ngeen wax ci lu dul sëriñ bi. wallaay wallaay wallaay wallaay waaw sëñ Saliou moomu nag. Ah. ah ñu bari xel ñu mel ni man. ngi koy teeru tey di defe ni waaw. sunu jàmbaar ga ci lay wax. wallaay ndeysaan. da ci weeram la ñu nekk fi ne nii ak weeru sëñ Mbàkke Madina. ndeysaan. waaw ñun daal. Mhm. ku ñu mën a waxee itam Serigne Touba rek lañ ci ngeen di wax. ndeysaan wallaay ndeysaan. ni siyaare señ ablay Diop itam nag. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay di ñaanal di sa siyaare señ Saliou Samb bu baax. wallaay wallaay wallaay. yàlla na ngeen am ngërëmal señ Touba tañ bokk. amin ñu bokk ko amin amin amin amin amin amin alhamdulilah sama nijaay gay euh, ñu ngi koy ziare baax a baax a baax euh, di nuyu baax waa Louga soxna soxna su koy na dimme mi ñu nekkal foofu ci kenn sëñ bi nee na ma bég naa lool tey da ngaa laal sunu xol waaye moom murid la mag soxna na koy ñang <laughs> maa ngi gis bataaxalam moom it euh, sëñ du Wade murid Saadix yow moom tey doo taxaw doo toog salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah bi ñoo ngi la koy delloo. jërëjëf Amady waaye Cheikh bi noo la koy delloo baax a baax a baax a baax a baax. di siyaare Serigne Ndianda Gueye di ko ñaanal jàmm ak tawféex. amiin ñu bokk ko. te daal ñëwal leen ñu si kenn si sëñ bi. rek tàmbaleeg sëñ sëñ bi. mu kaw rek nay kawe mu yéeg. si sëñ bi rek. ah mu yéeg rek. waaw sama waxtaan daal waxtaan wi daal waxtaan wi daal. waxtaan wi daal du génn la Cheikh Ibrahima Diop Machar waxoon rek. mal jël ibaadi wa man jaahum min al fitani <laughs> jërëjëf Murid Saadix <laughs> ah, ndeysaan ndeysaan jërëjëf eh, waaw waa waa waa waa YouTube bi ñu ngi koy wax naan noonu ay murid lañ waaw ay murid lañ moom ñun ay murid lañ <laughs> eh, sëñ ma Thioune eh, nee na mi ngi ñu fasaale ko mi ngi ci jataay bi moom it tubaarkàlla sëñ moom comme daa dugg xalwa moom kenn gisatu ko eh, tubaarkàlla salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen ziar la koy delloo cheikh bi. Eh, di di nuyu sëñ de waaw ndeysaan mi ngi lay déglu de. maa koy ñaanal suñu borom wéral baat bi ak suñu tubaab. wallaay wallaay wallaay. wallaay dama kaa bëgg loolu yàlla sax ndeysaan. ok yéen nag yàlla bi. jërëjëf. ok. jërëjëf ñu bëgg bu baax a baax kon su ko defee sëñ daam bu la neexee bu dee daam ko na ci liñ bi jël ko su dee kii kiwul ñu bàyyi ba dalal sëñ Saliou su ko defee ñu mën a wéyal jataay bi ndax jàpp naa ne ñi wax ñëpp génnuñu rek sëñ bi rek. waaw ah, sëñ bi rek salaamaaleykum salaamaaleykum bisimilah bisimilah ah dafa mel ni génnaat na eh, kon su ko defee eh, sëñ Abdou Wade sëñ Abdou wàdd tey moom am nga problème eh, ndax xam naa ni doo toog doo taxaw sëñ ma muccoon sëñ ma yow moom sëñ ma daal xam naa dama koy boole nogay ñag mu wax ma fu mu nekk ci àddina Euh, tubaarkàlla euh, raar na lool waaye ñu ngi koy ziare di nuyu baax sëñ euh, sëñ Abdul Wahab Mbàkke ñu yónnee bataaxal moom it di wax ne waxtaan tàmbaleegul waaye neex na lool kon su ko defee sëñ daam dañuy dalal sëñ Saaliw Sàmb sëñ Saaliw bu yegsee ba nuyoo ñu mën a dugg nag ci waxtaane borom tubaa waxtaane sëñ tubaa nag suñu koy def dañuy wax kem nanu ci mën a jariñoo nan la ci mën a jariñoo mooy dafa am aspect boo xam ni sëriñ bi daf koo def te loolu du xisa loolu du yëkkati sunu sëriñ loolu du wut benn cër buñ ko yokkalee ndax moom mat na sëkk waaye waxtaane borom tubaab mooy fexe ba nit ñi jariñu ci njàmbaaram sëñ tubaa jàmbaar tigi la jàmbaar mooy koo xam ne logique logique mayu la li nga fi am xel nanguwu ko su fekkee ne ci zaahir dat yi nga xam ne nii moom la fi def dat yooyu mu nekkandoog nun ci àddina ci zaahir dat yooyu lu xaju ci li fi sëriñ bi liggéey beneen bi ci topp mooy ñàkk gi liberté bi ci topp mooy bëgg nit ñëpp jariñu bi ci topp mooy des fi continuer dinu jariñ ba tey jii may wax ak yéen ku dem tuuba ak loo jàq-jàq boo jàkkaarloog Cheikh Mouhamadul taxa sa njàqare loolu la day deñ ndax mbégte mi ngay àndal ci biir balaa nuy sori ci loolu sëriñ Saliou du nuyoo ñu di ko takkal micro bi sëñ na am na lu ci sëñ musaa ko wax ci xarnu bi loo xam ni dan ko fee fekk nga ubbil nu ko melalal nu ko bu ko defee nu door a ñëw ci sañ Yande moom it ci benn taalif sëñ Saliou door a dugg ci waxtaan wi noonu ubbile rek euh, xam ni am na am na foo xam ne daal Euh, diggante bu doy kéemaan la waaye daal ma bàyyi la rek foo ci ubbee baax wuy nu wuy noo ko torox yalwaar na moo ku sarax garab bu daanoo xob ya lax bambaay nda njaama xarnu bi garab gu mag bu jirim garab yu ndaw yi di jirim meññeen ma sey mbir ma lëm lii rekk a dal waa bi allahu akbar allahu akbar allahu akbaru zamaan jamono moo mën a daf daa walangaan ci dabi booleem xarnu bi li beeg ci keeki jafaraan لن دادي ومي ولنغان ني خلي كوب يدنان وتاي غرن خرن بي استغفر الله العظيم توم نونو لن دادي فيكم تمول نيخلون بروم نيربلو تي خرن بي خيولي داف باون تي دي كل كلمه تخ جوك دي بل بلي سيرن بي جيسول خرن بي خيولي داف wax seet nga wute nga ak seyaan xamoo xurag dund ak seyaan sam ndox am mandal xarnu bi wàcc nga yow loo ma sa wax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar kenn wuddatul moo tax ma naa la suuxatal njëmbat li woon ci xarnu bi njëmbat li mooy gaa di ko woon daw ci xéwal yi fi woon tey ni ngi def yoon ba woon ngir ñàkk gi ci xarnu bi nu far wañeeku tagg daam ngir moonu may lu jombi maam boole murid yi daw diraam ak cantawar waa xarnu bi mbakke ma ne misaal yaay géej gi wër waa Sénégal defu la jàll génn gaal say du xarnu bi sëñ Bamba yaa diw mbambulaan ku la soobu dootu ñaani naan ku mandi dey mbaari teen say gaasa mandal xarnu bi nun soobu nan la jàlle nu waayi mbàkke bul dem bàyyi nu yowmal xiyaam yóbbaale nu te bu mbooleem xarnu bi géejug ikam ngindaa dëtëm borom Tuuba dañu ko secc moom ñoñam mësee fu caa nandal gu xam toqeem bi doy na xarnu bi luum loona forewe woon raam loona kàngam yi fi woon sëriñ bi daane na mbëri fi ne woon nuróom amul ci xarnu bi sirop andaari xam-xamam mësee fu caa natal wujjëm ayam gi suure na ñoñam wujjëm amul ci xarnu bi fekkoon ndabi na xareet mu soppi leen watay sareet duy leen ngëneel bañ ñu sareet wàccoo naag xarnu bi borom Tuuba taalif na mool yu feesi taax te xalimaam du juum du jaax taam xelam du gàkk du naax du fàttalëf ci xarnu bi day duusu donga yey dëtam du sey jalaañoo cib dënam muy géej gu ridwaan di jënam te mës a fer ci xarnu bi billaahi yaa mat li nga doon borom Tuuba billaahi yaa mat li nga doon nu seddu teggi jër bu duun wàccal damul lagul te teenni ungal lambi karnubi xarnu bi señ bamba yaay ngeen di keno sa yi doyna nuy dono so don fetal di keñu say bala mokal xarnu bi señ bamba ya dibli bi dor lambar de wute na ki jur señ ci soobuun sambor ne kon na tal xarnu bi señ ci soobuun sambor ne kon na tal xarnu bi do tu dox kem li nga dox do tu wax kem li nga wax do tu dox kem li nga jox dara wo woon nga xarnu bi imaamu soraane kamal téeréem bi bambalay misaal giñ na ni mooy a boori jaal xubbi woon ci xarnu bi yaay fekk waay njarandaay nga ful ko boole kooki gaay ne doomi maam sëy na bu njaay lamp bi woon xarnu bi Modu Faal Seer Njaay biran njëg ca ngaay góor dëgg ab la faal maami Cheikh Modou Fall Fall mi ndefi yaa leen fali bu mbindeef yi yaa leen fali buur ku ma sa xëy taal ma boor di xelli ataaya ju foo fajoon nga ajooy xarnu bi dama ko wax kilifa fan yi ma ko bu dul woon sëñ Tuubaa ñooy raw jaam yi ndax ñi tubaab yi not noo leen gën a néew doole ñun waaye sëñ Tuubaa goreem gi tax nu war koo takkal ndomba xut bu samaan sëñ Saliou dina ci ñëw mu ne bëgg naa lu këpp songu àll bi ak géej gi ndax sunu mucc ci sawara kooku àdduna sépp ko ameel njukkal sëñ maa ngi jégglu sax njàng mi ma dog dugal lii waaye lu ma yëgle fii ma taxaw rek ndax sëñ tubaa ndimbali gim nu dimbali léeg-léeg dañuy dem ba yàgg sunu xel dem ca loola te bu nu gaawul def lu mel nii rek man noo yàq sa jataay bi te duñ ko bëggee noonu nan bàyyi ba sëñ Saliou ñëw su ko defee daal ciy jàll ak ñun sëñ bay di maa ngi koy siyaare bu baax bay di sëñ bay di maître bay di ak sunu yaay jooju waaw bu baax a baax a baax ak euh, waa kër ga yëpp soxna Adama Ndiaye ñoom mbay ak Ndeye Birane ñoom ñëpp a toog ak madame Mbaye ñoom ñëpp toog di seetaan waa HLM danaa ci ñëw léegi ak maître ñoom prince tubaarkàlla euh, balaa maa génn rythme boobu euh, fi nga daaneele sëñ Bamba mbindee fii yaa leen dimbali kon nan la mbindee mën a contester mbirum sëriñ bi sëñ Yande am na lu ci Eh, sëñ eh, Ahmadou Bass temps yi gis naa beneen boo génne sax eh, man daal murit gi dama fàtte wayu nu muy daanee dina ñëw ci sama bopp léegi waaye bismillah dogoon bambalaay laaj lu réew mi di jar xanaatus dogoon daam wolofu ñàkk cër dogoon Bamba laay lu réew mi di jar xanaa tus dogoon daam wolofu ñàkk cër dogoon Bamba kon tey nu féeteek togal di parley farañse di rafle li cër dogoon bamba kon tey nu réeréeg njullit te kon noo ngi foo di kar tak di njar dogon bamba daak bi daa fi jóg ndemoo daj ji pootam felet seeni car dogoon Bamba wuur ak dameel ak barak dañuy des ci réew mi di yeew ak di cor subuur yàlla ne waaw yonentam ni waaw ku fi bañ ni waaw waaw mbiram dal ñaaw sëriñ bamba maa soowu lëg seen cam faral nga sag nos te jébbal ko gaaw atum wam sa seeg léegi gis nañ tayam di gàcceeli démbam renam dàq daaw ña daa takk ki njàngal te koy jéema lor ndaxam seeni jeexit saxun lépp a saaw ñasam pooni koote kadaana seelu bon amuñ ndam te laaluñ lañuy jéema laaw dañoo mbëkk ciw doj ba seen bopp toj ñu yoñ joxule seen mbir wasaani pitaaw bañam yépp giim nañ mu des fii bérëx mbiram jëm kanam seeni mbir jëm gannaaw ña daa wër di daanak di rangooy tëndën ësal tey bëggoon nañ di buurub jaxaaw mbërum yàlla maa ngi tema maa koy wayal duma deeti fendal ba bis bañ ma ŋaaw mbërum yàlla maa ngi te maa koy wayal duma deeti fendal ba bis bañ ma ŋaaw donoy Mustapha ngi tadib xaadimam te duy bagaanu ku fi ñëw di baaw ña doon baaw ba waameem walee kiilu nañ bu gantu waameem ba seen mbir di ñaaw ñépp maase nangul ko ko mayam te jiital ko kon léeg nu mel ni sëriñ bambalaay way kile jar di way bu may lekk kay naan sëriñ bey ki tax lu tax sëñ bi tax mooy ki tax diine tax ba suñ maam ya bay yiw fu nekki de la sax nanuy sant santay li war ñépp sax ku dul sant doo gor nde santal ki tax ba di jooy moo ko gaw gépp wet sagal ko dëfal ko ci noonam ya sox kënug fit talag néeg bu xat lool lëndëm sëriñ Bamba raful maa ko wax ba muy tukki settaan ya sëñ boo fi wax ma ngay mis tey njoñ ganaar ak pitax awaay yéen awaay yéen awaay yéen lu tax ku naa man ak moo mayam lii lu tax dafay dof bu jàngul te liirul mbindam sëriñ bamba day kenn kennal ko ndax ku kennal sëriñ bàmba léppam di dox ku suufeel sëriñ bi dundam gépp nëx ku kennal sëriñ bàmba léppam di dox ku suufeel sëriñ bi dundam gépp nëx murit yeeg marit yeeg ñi fi riirandoo nañuy sant sëñ bàmba kon lépp dox danoo ñàkk jom taxit faw nu wax gëmal kee gëm kii nu gëm lépp dox lu nuy gën di wax nun nu gëm tey doxal sëriñ bamba lañ gëm te wax ji du nax murit yeeg marit yeeg ñi fi riirandoo nañuy sant sëñ bamba kon lépp dox sëriñ bamba yaa gën ka gën ñépp doon xadiimub yonen bi lu wér moo ko wax salaatan salaaman alal mustafa ci na suñ lépp dox salaatan ci barkeb xadim na suñ lépp dox barkeb borom Tuuba eh, fii sëñ daanoo loolu rekk ci mën a topp mhm. eh, boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo lëmbaaje woon réew mi chaque jour dama ciy faral di jël ku mel ni Cheikh Ibrahima daf ne mutamashikan bil xaddiimi cheikh ahmada man faaxal machaayixi fii sirrin wa fi alani bu ne faaxal machaayixi nag du sama seriñ daa baax rek ma ko yëkkati c'est à vérifier sëñ Tuubaa moom abal xasan moom da ko loolu moom lu ñuy xool la ndax lépp lu baax lu nekk aw yoon wu baax wu mu mën a doon wala wu nit mën a jariñoo rek sëriñ bi jël na ko ba jeexal ko noo ngi bég bu baax di siyaare sëñ yegg si léegi ci jataay bi xam naa lii moom sëñ Saliou rek ko mën am euh, barakallah euh, waaye sëñ Saliou ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi ginnaaw buñ namee itam jëmm ji moom yàlla suñu borom dafa dogal amuñu réeroo ci dara waaye sëñ Tuubaa rek laa ko jàppe ginnaaw bi itam bi muy ñëw sax wérul yàlla xam na ko waaye dafa maa wax ne ma fun ma woo ci liggéeyal borom tubaa damay jóg dem ndax man borom Tuubaa moo tax may def yenn saa yi sax ma woo ko xaw koo sonal lool mu ne ma taalibe yi may fekk ci àll bi di leen waxtaan la borom Tuubaa du ma tas seen yaakaar kon taxawaay boobu la am ci yoon wi yàlla na ko sëñ Tuubaa gën a sàmm ba li nga xam ne nii bëgg nga koo liggéeyal borom Tuubaa ci yoon wi suñ borom may la nga defe ko nu mu la soobee sa sëriñ Cheikh Abdul Karim moom Cheikh Mahamadul Fadal ñu ngi koy ziare baax di ko ñaanal yàlla dolli ko kattan ak wér bari na lu baree baree bari loo xam ni su ko seeni bu toogee bu gisee saaliwu toog day mel ni sax du ci moom la jébbalu ndax fu mu koy teg te war ma jooju ma koo jox sëñ Tuubaa rek a tax moom dafa bëgg sëñ bi sëñ Saaliw ma bàyyi leen nga nuyu ak téléspectateur xam naa gaañ yàkkamte nañ lool nag waxtaan wi yéeg xam nga dama koo tooñ dama ko ni waxtaanu ne ca kaw laa bëgg mu ne yow lu mu gën a kawe rek des na ci yow yow kuppal rek foo kupp ma dagg sëñ Mansour moom balaa ñuy tàmbali émission bi dem na bu yàgg xam nga tey ñiy jooy dañuy jooy ñii ree di ree ñii bég di bég parce que li neex lépp du li du liy jaar ci poudre rek daa am leneen luy neex loo xam ne jaarul ci poudre loolu nit ki di koy yëg ci yaramam di ko santir xam ne lii neex na waaw sëñ Tuubaa nag a neex leneen lu dul sëñ boo ci ëppalee feebar dal la ci sëñ bi rek fi ëppal dara du la ci dal waaw maa la wax lii leneen lu dul sëñ bi boo ci ëppalee feebar dal la ci suukar mii li muy neex neex boo ci ëppalee jabet maa la ko wax lu mu neex lu ne rek boo ci ëppalee sëñ bi rek ngay ëppal fii ne balaa nga koo xam nga def tànki neen ñu ne kii dof na nga takk sa ndigg di jaamante naan jërëjëfe borom Tuubaa ku romb du jàpp ne xel may dem de naan cey murit daal di lamb kaas maanaam njëgu kafe goo naa ne waaw kookoy sëñ bi leneen lu loo ko defe woon nag ñu ne kii def na dof na sëñ Saliou asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayidina muhammadin wa ala bi ihsanin ورضي الله عن شيخنا أحمد القديم وعلى قدوتنا العظيم الشيخ إبراهيم فال باب المريدين بركب شيخ عبد الكريم بك فدلو نيجي سانت يالا بو باخ موم بور بيغا خامني لو ام مكو دوغال سي تشوبريم دي جولي سي سيدنا محمد في فدلي سونو كولوتيف سي شيخ احمد بامبا دي بالو حق bokk yépp te leen i baal tey ñaan yàlla sans borom boole nu jéggal noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi te mu ànd akuk wér moom mbooleem ku mu bokkal Seyxul Xadiim da koy ñaanal sëñ Amdi Fall Cheikh Moustapha Fallum sëñ Maru Mbenda mi toogee jotaayu maam Cheikh Ibrahim waaye ak mbooleem kuy sol sa dal te lislaam tax laa jóg sëñ am noo ngi ziyaara bu baax di la ziyaara waaye balaa noo sori ñu nuyu sunu wayjur sunu xarit sunu jëwriñ alaaji mbakki yu fay di ko ñaanal yàlla mu yàggal taxawaayam te wéral ko mbooleem lu mu yéenee jëfal sëñ Tuubaa yàlla yàlla man loo ko ko ci barki seexul xaddiim ñu nuyu bay Cheikh Balla Samb momit ak mbollem ñi ci télé bi señ Jibi Ndaw ak ñëpp rek dila nuyu bu baax di nuyu sa gaay yu baax yi nga dal bala ñom ma ngi nuyu señ mustapha Mbacke ak señ saliw Mbacke suñu señ lañ ñu téwé jotaay bi ñoo ngi leen di jox cër bi leen yalla jox ci sunu jëm ndax damay faral di wax ni sant wu ñu baaxoo wuloon a xamee jullit sax bu ci sëñ Tuubaa gërëmoon kenn ñun nangu nañ di jaamub kooka ñun sunu problème mooy génn sëñ bi waaye lu génnul sëñ bi ak fu mu mën a ne ànd na nag moom sëñ bi rek suñ mag bi rek lañu xool foo bokke ci moom mën nañu laa mën nañoo doon sab dongo foo bokke ci moom nag bu gërëmoon sa maam te te sax ngeen yi ay tuubeen ñun nangu nañ la nangul nañ la waaw waaye nay sëñ bi mag bi rek waaw foofu lan nekk bët bi ñu yàlla jox daal suñu mag bi lañ ko xool kon mbàkke yéen ñoo ngi leen jox cere bi ngeen am ci ñun siyaara Sidi Mouhamed Jatara bu baax a baax moom it di surtout Baye Serigne Jatara tey moom te Baye bokk ca saxaabay Serigne bi rek waaw rawatina diggam ak Alaaji Fàllu Mbàkke gannaaw gannaaw Serigne bi ba mu yegg si ci woy juróom bu baax bi sëñ Moustapha yàlla na yàlla yàggal ko fi ci barke Seexul Xaddim ndax sëñ bi daa am ñoo xam ni bi mu donnoo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo booleeg ay saxaaba yu mel ni saxaaba yi rasulullahi yu bari dinaa koy nettali ba ba alquran waxee ni wa saabiquuna saabiquuna ulaika almuqarrabuun moom dafa wax ni xawaytu maa xawaaxu saabiquuna wa jaani qawmun murafiquuna wa saabiquuna saabiquuna ulaika almuqarrabuun moy ñoña won ci ndol makka wax ni xawaytu ma xawaahu sabiquna wa jaani qawmun murafiquna sahaba yi ku ci masana beru dem barab rek da ngay doon yonent bi mu soti waye mag ñi topon ci señ beet te mu defar leen ku ci beru won dem barab da ngay doon borom tuba mu soti loolu wa jaani qawmun murafiquna wa li qaada bihim usirun kon señ beek ñi mu ak seen i njaboot yépp noo ngi yeesal sunu taalibe bi ci ñoom ñun sëñ bi rek la ñuy seet yàlla buñ ko génne maa ngi nuyu bu baax sëñu sëynu ñu ko ami teggin ba noppi man li muy def te mag bi ay teggin da koo ñor ñoo ngi ñaan yàlla mu dëgëral ko wéral ko ku yëg doomu aadama la waaw man sama soppe la maa ngi nuyu sëñ Yande mi moom it mi nuñ jotaayam waaye ku dégg lii mu def xam ni ku def yitte ci li def la te yàlla am na ko ci dénk damay faral di wax xale yi may dajeel souvent dinañ koy dégg xale yi may dajeel dama leen wax ni ku mën wax wenn wayu borom Tuubaa wu jub nga xam ni cëral na la ndax kaway du la ndax musta def lu doomu adama man ko xamni lo def nit manuko lo def kawtef la musuñ ko tegit lu nit àttan ko xamni luñ la tek doomu adama juñ ko tek mu de buñ la koy tek ngay dundu kawtef la waye bimu bolé yoy yep da tak tek ne wax ni wax ni gannaaw bay takhabbal al karim bi zamanin laysa yarim wa li yaqud ma arum ilman bila taallumi dafa wax ni karamati xattu yad yi kawteef lépp dundam lépp kawtef la dem na ba wax sax ni kulliyati mu'jizatun taaxarat waaye dafa jël lépp teg ne ni samay kéemaan mooy li ma bind ci sama loxo kon ku mën a wax dara ci mbindam mu jub ñaar dégg ko bég ci laa la wax yàlla cëral na la maa ngi leen di jox boobu cër li ci dollee mooy seen jotaay bi li ma ci gën a neex mooy li ngeen koy way ci wolof lii ngeen di wax liñ ko wax ci wolof moo ma gën a neex ci jotaay bi ndax moom ki mu doon way day arab moom ka mu doon liggéeyal day arab Sëñ Tuubaa ab arab la doon waxal mooy Sayyiduna Muhammad moom la doon liggéeyal yàlla sa ko moom làmmiñu arab yàlla moo sax sëñ tubaa làmmiñu arab muy wax yonent bi ci arab bay wax baat yu dictionnaire arab génneegul parce que yonent bi mooy arab arab la daan bind moom Cheikh Amadou Bamba waaye wolof la daan wax ak nit ñi ndax ab wolof la daf ni laqal na ni laahu lisaanul arabi amaana iqda iqdaami أزمان إقدام النبي العربي أزمان إقدام النبي العربي لقنني الله يلا مومسا لسان العربي لم العربي يلا مقصة أزمان إقدام النبي العربي جمعنا بمين لجي أنت تبقى خمني عرب لا كم كمي وي عرب لا عرب لا وي مطم وقفنا نوزي علي نور لثاني والكتاب أزمان بتاي خدمتي لدى أهل الكتاب في أزمان إخدام النبي العربي في أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب اللي جايب نك من ملا غينو دينغ ساخ قصيدة محمد رسول الله جاي مومي مني إليه خدمة أقدمه إلى دخول الجنة كون ولف ييغا خامني موم لا يوخك ولف من lolou دمانيخ ndax sama classe ki yépp boo waxee ñaari baati arab ñu réer li ñu bëgg wax sëñ tuba li ñu bëgg ñu xam ko ci sëñ ñi ko wax ci wolof lañ war di wax léeg-léeg nga dégg ku mel ni Saliou Samb toog naan nañ bàyyi way wolof yi bu ñu mës bàyyi way wolof sëñ tuba wolof la liñ ko wax ci wolof nañ ko koy wax ñun ñu koy dégg di ko xam wax nga yonen bi li doon mayit ma wax la li nga doon nga def ma li ma doon ki ma gisee la matam nee nga yeneen bi yow a yow mayit manaa la yow a yow foo ne ko yow manit la yow ki ma gisee la ma taxam wéet xanaa xamoo ñaari way yooyu rek baax na sa ñaam ñaari way baax na maanaam ñaari way xam nga mooy lan mooy dama wutoon cin mu wutal ma ko kubéer ndax dégg nga ma laqana ni laahu lisaanul arabi nusi ali nurul lisaani wal loolu cin la bi ma ko waxee cin la li Cheikh Samba Diarra wax moy kubéeram ne nga yonen bi yow a yow ma ma wax la yow a yow ci langue arab nga ni ko yow a yow man wax la ci wolof yow yow rek wax nga ko limu don ci langue arab ma wax la li nga don ci wolof gi nga don fo ne ko yow manila yow nga def ma lima don parce que ku nangu li ko defal rek mu def la li nga don waw nga raw ñep sut ñep Cheikh Amadou Bamba kon jërëjëf sañ am ab nuyoo la woon daa mel ni maa ngi maa maa ngi nuyu sëñ Mamoun Dioum ak sëñ Mbacke Thiam ak gaa ñu baax ñiy toog ñëpp ba ci sëñ Sidi Diop mais nga xam ne moo ma indi moo moo ma indi mooy manager bi Sidi Diop génne na la ci dictionnaire bi léegi sëñ Sidi manager bi waaw sëñ caam Thiam moom it si na léegi eh, xam naa sëñ Saliou tey nga gaañ nañ koo bëgg nag xam nga sëñ Moustapha sëñ Touba dafa neex neex gi mooy ki nga bokkal ndey ak baay mm. bu ñu bokk sëñ bi xamutoo kum doon sëriñ bi meew mu neex mi mu nu nampal nanu doy nanu te moonu màggal ku mën la rikki nga muk malaaka bam sew mbaate nga bewloo ab yonent bam bew say pexe mën la tee nu gëm sëriñ bi suñ xolaat dee ci daam borom baraak bi borom tuba nu doyte moo nu gàddu mooy ki attan moo cëral mam abdu nun bootu nan mooy nañ ci daam bu yàgg caalamul xarwaaxi loola màgg borom tuba soppu jëmmam di ko mo gën ci yalla gépp jaamu gu tege borom tuba ci yow la xol yi di jage ku ko gëmul gone la guy dawal mbege xam nga man fini la nga bëggoon am na man problème bi ma am moy fini man xamutuma ci émission la né ko ma ci bass la né ko ma ci ndéeg la né ni kenn xamutu fone ci kawam ci souf ñun sëñ bu buñ ko amul woon du baax ci ñun. yàlla nu yàlla musal ci jamono duñ ñëw te amuñ ci sëñ Tuubaa moo tax lu mën a ñàkk garaawul nan am sañ bi rek nun buñ tumurankee baax na buñ xiifee baax na buñ nelawee biddanti baax na nan am sañ bi rek buñ amee sañ bi rek lépp baax sëñ Saaliw oh. amul benn date amul benn weer amul benn semaine bu sëñ Tuubaa surchargé wul ak lu baax at moom dëgmal mu ne lu at mooma metti metti sëriñ bànkee xalaat lu mu jëfal yàlla at mu mu dëgmal mu ne sëñ Tuubaa ngi dëgmal at mooma lan la ciy jëfal suñu borom at yi nga xam ne ni conteste bi sëñ Tuubaa ñëwee sëñ tubaa at mi mu weesee jamono fi mu fekk diine ndax ñu baax la fi fekk waaye bi mu ñëwee fekk fi diine diine dafa xat mu jël loxoom bi jël tànkam bi jël jëmmam ji jeexal ko ci liggéey yàlla ak yonent bi ba fexe jaam yàlla yi raw tey la 11 mai 2022 11 mai bu ne dañuy màggal ku ñuy wax Bob Marley ma nga dëkk ca Jamaïque te du fi mbokkum kenn ci réew mi waaye kaddu yu mu daan wax yu jëm ci askan wi moo waral ñu koy fàttalikul dat bi Cheikh Amadou Bamba nag kaddoom gii musta jug ci diggam ak boromam ci ne ko jaam ñi ci ban nga leen bind ak ndox na nga leen jéggal ci sa kàttan te dugal leen aljana ku mel noonu tout le temps 24 heures sur 24 war nañ koy fàttaliku sunu xol ak sunuy xef date bi sëñ Touba ñëwee jamono lum da tombeel ci contexte boobu ak nan lañ ko mën a tiire ci ay leçon ci fi mu fekk lislaam ak fi mu fekk xarnu bi wa innahum li nga mujj wax laay wa in asawka yaa ahad li gaflatin lam yusriku bika fa innahum abdaanahum laa taqdiru ala balaika li donfin قلوبهم ليس تميل أبدا إلا سواك من هنا إلى هذا جوجو وهم لا تنو خد أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم القلق يا من جدهم بدأ أكبر وجهتهم وهم لا تنو يويو la tinu yooyu waaye tinu geecee mat la bu sifaa yi rek ku ko dégg te ni ab jullit nga war di wax jërëjëf sëñ Touba boole jërëjëf sëñ Touba ci sa wird waykat ba nag dañu ko woon yaay sunu wird yaa nu doy ci mu xaddam yaa di sunu ismulaahi doy nga nu yéene waaw moo waxoon lahu dëhër niyati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi jusmaani faw yàlla fay nu ko mhm. suñu am ama saraa la fi ñëw kii du fekkee jataay bi ama saraa waaw ah, noonu la la fi ñëw mille 270 ci gàddaayu Sayyiduna Muhammad 1252 djem 1000 1852 djem 1853 ci Amadou Bamba feñ fi ci Mbàkke Bawol amna touti wouté amna ñukoy magal feñ gi ci asrina muharram am ñukoy magal ci nisfu Saabaan hmm mo gëna siwna na nisfu nak motax tax medinatul munawar am jàkka ju tuddu masjidul xiblatayni ndax bisu su nisfu sambaan la fa yonent bi di julli tisbar jublu jérusalem bi takusan di jot yàlla niko fa walli wa wajhaka satral masjidil haram kon bis yo yep ay bis yu coïncidé la yo yo xamni ki wara dimbali jam ñi tay ak bu ëllëgee war na cee mën a feeñ borom tubaa mooy feeñ gi war a dimbali jàmm ñi àdduna ak àllaaxira parce que bu dul woon bisam boobu moom ñun duñu gàmmu bu nu xamee dara ci ki tax nuy gàmmu Seex Ahmadou Bamba la mbooleem lum nu wayal ca jës bu ci bunt ba tàmbalee salli wa sallim sarmada ala lazi xaturida bi laylatin mu ulida fiha mudimun masami ba ca salli wa salli man ala man haada mawlidan jala li gayrina zawil xila wal tataxabal xidam mbubu la moo xam ni boo ko solalee mu jot ko parce que moo doon yonent bi xarfin bi xarfin Cheikh Ahmadou moo doon sayiduna Muhammad xarfin bi xarfin amul copie conforme la doon rasulullahi da koo copier daf ko wax ni awma aajo judul roy la ba ci sa ak sa yàpp yaram te bu fekkee roy nag yonent bi moom fi ñu fi mu ñu ñu ko ne xam na sallu kamaara ay usalli julli leen ni ngeen ma gis may jullee kon ci kaw lan royloo suñ tuwaa ne na ko maa lay roy ba ci sa xol waaye maa lay roy ba ci sa yàpp yaram awma aajo judul loolu lay li yal yawma xaajaatun uhaamiluha si waqtifaaika qafwal qalbi wal badani moo copier Sayyiduna Muhammad waat na feneen ni xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam léppam moo ci doon Sayyiduna Muhammad moo ko doon ci wax moo ko doon ci jëf saxaaba yi yonent bi àndaloon bi mu doon ne yonent bi ba noppi da leen a donnaale daa ràngoo seen garaad ya ndax mu wax ñu ni saxaaba ya yàllaa bañ ku dul yonent bi di seen sang moo tax sëñ Tuubaa ku dul sayyiduna muhammad fii nga koy ne parce que gannaaw yonent bi fi mu toll boo nee yonent bi dañ naan saxaaba yee fi gën sëñ tubaa nee na yàllaa bañ ku dul sayyiduna muhammad di sangum ñooñu waaye li yàlla li ci saxaaba yooyu ci li yàlla bañ looloo valable ci Cheikh Ahmadou Bamba yàllaa bañ ku dul rasulullah di sangam aballahu illaa kawnuhu illaa kawnuhu sayyidan bihim yàlla moo bañ ku dul njool màkka di sangub saxaaba yi aballaahu illa kawnuhu sayyidan bihim waxat dawaxuul ku faare ñooñu nag ba muy metti ñoo nooyal yëfar yi bañ nooy nepp wal kullu jassaxu kenn ku nekk ñoom dogaa ko nu bopp yëfar nga waaye sëñ tubaa di dox ba mu yàgg mu wax ni seen borom seede na ni ku dul rasulullah maa ko ko gënal boo ko waxee nag jàngkat yi daal ni ana saxaaba yi sahida lilaahu بأنه أهب لي من سواه ونبي بعض الأهب وخو واخ رك لا صحابه يا گن من يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون در وغرب اك نورو اك بين بور لا مسدون sangu Quraysh sin la séddewaat mbër mi nu miin aka ñoo nuroo ak paynde buur la mu séddewoon sangu Quraysh sin la séddewaat mbër mi nu miin yonen Ababakaray san ba ba ca moom sëñ Bamba Cheikh Ibrahim mbërëm ma mu àndaloon yonen ca ki Madina la dëkke woon sëñ Bamba Tuuba ak Njaare may fa mu féete woon yonen ci at mu ne daañu aj dat koy siyaar sëñ Bamba at mu ne ñëw benn yoon yonen jumaam jaasut ca réewi arab sëriñ توبا جمام جي كن جسول جوكو سوت فنين وجعل به داريا كالمدينة بركة وكعبة المسونة من جاري مكتوبة وجعل به داريا كالمدينة بركة وكعبة المسونة أما أقول في تيميريات دمال الخول نمال 1927 لا فا دم ñoo 2022 amagu fa téeméeri at laa la wax demal xool nam mel nga comparé ñoo niroo ak pay dafa niroo njool màkk ci lépp daf ko daf ko wax nag yaa man jàngalte bi bii mis la sahab lafzan ci melo jëm jëmm quoi bu ma boo ma xoolee ma joxe sahaaba yi wa maanan boo wax bu waxee sax ma niroog ñoom a durrin wa garab ci lu amul lor nag ak ma fiy jóge xam nga sahaaba yi fii ak diine ngi fi ñu leen di tudd sëñ Tuubaa fii ak lislaam a ngi fi ñu koy tudd لفظا ومعنى دون الضر وغرب يسيرني كالآلي والسهبي سرمدا ولي قاد سرا غابا غيره المهيب مملني اك فيا نيام جامونو مونو ديمبلي كون في مو جوتو جار سيناما نكوي واخ وايي كيمان غو نيك خيونا سي ديغنت فيغنوك بروم توبا اك بي في سيغن باكي مولان سيلي دي جوغي waaye moom mus cee jël engagement ci dara ndax warmaal sëñ Mbakke Mame Mor Anta Saly jëlu ci engagement ci dara Mbakke Bawal xuru Mbakke mu des ak maam tafsir Mbakke Ndumbe ñu dem ñu dem fekk ji tafsir Maba Jaxu ba mu fay yegg yàggul dara ca la soxna Mariama Bousso dem ñu jógee fa dem Njaaba Kunda ñëw Pataar Pataar la ko sëñ Mbakke Mame Mor Anta Saly soxna Khady Dia Touré ñu naa ko soxna Dia Touré mooy moom sëñ Mbacké Anta doom yi maam Cheikh Anta moo ko yoroon wàcc liggéey mu jox ko ko ca la njëkk a gisee ka ñuy wax soxna Fatidia ca la njëkk a gisee tout tànk moom suñ mag bi hmm, loolu Pataar la xewe hmm, bu jógee Pataar ñu ñëw Mbacké Kajoor fa la sëñ Mbacké moo doon sili wàcc liggéey ama sasin yaa ngi koy tudd léegi ci date yi ngay wax wàccug sëñ Mbacké moo doon sili dama résumé loolu des ko meuna sara ci émission bi waye dat far yi ngay wax wàccuk seigne Mbàkke mor dat bu far la parce biñ ko jullee ba nopi ba denc ba delusi si ci mag ñi duma bëgg di wax ay tur duma bëgg di préciser ay tur parce jotay day melni jotay delonté wa Ahmadou yegsil ni nu denk la seigne mag bi ñëw ba ci catul mbooloo mi teggin ya ñol makka amoon ca njëgg ma ba nga xam ni mbooloo mi génnandoo na ak ñoom ñu gaawantu jiitu ko ci garab gi mu dem ca naaj wa toog ndax bañ a jéggat te garab ga fekki ko alayhi masiyu sajari teggin yooya tax Cheikh Ahmadou Bamba wax leen ni bàyyi leen ma taxaw nii baax na su ngeen waxee dinaa ko dégg moo doonu lépp rasul la bu ngeen waxee dinaa ko dégg ñu waxante ñu waxante ba mu doy ñu ni ko danoo bëggoon nga ñëw ñu yóbbu la ci Lat Joor ngeen jaalante sa way jur wi te ñu nuyoo la ak moom nga féete ko fi ko sa way jur wi féete mag bi leen dem ci moom de ñu nuyoo leenu ñu jaalante walla réem sëñ Mbàkke Moor lu manu la waaye féete ko fenn ngir mu may féete fenn foo xam ni lu may war a ajo woo la ci àdduna dama koo séqula ku dul sama borom mi ma bindoon fa saa saasi ñu ni da ngaa goog fa saasi la dégg da ngaa goog moo tax Cheikh Amadou Bamba jëful ba pare door a wax dafa wax yoo xam ne ay engagement la adduna bëpp taxaw ni du fi amee bàyyi leen ko rek ndax dina am parce que xam nañ ne du lu mënta nekk dañ ko appal rek xam ne lii du luy yàgg ci liñ gëm ñoom mooy lii mënta nekk te du luy yàgg mu assumé ko di ko assumé di ko assumé ba ca cat mu ni leen def naa li ma leen waxoon fanweeri at la am bu doon nita janoog ñoom ni leen ku dul yàlla duma la tàllal loxo séquma ko kenn buur yi ngeen ma jëmee ñoo gën a lottu miskin yi ci seen bopp comme tàggoog ñoom ca jotaay ba rek la way la way xasida googa ngay dégg xaalul yar kan li abu waabi salaatini taxus jawaay sa tooni kulla maaxiini fa xultu ma ni leen hasbiya bi sama borom doy na ma bi ma doyee ba noppi ñun ñëpp yàlla doy nañu mais est ce que ñun ñëpp nañ ko mu ni wakkata faytu bihi jël engagement lépp yàlla sëñ Tuubaa day jël engagement moom hasbiya rabbi mais wakkata faytu bihi walastu raadiya gayra al ilmi wa dini mu ngi war a jiite daara ji affaire bi demagul benn jéego mu ni duma gërëm loolu lu xam-xam ak diine gars yi ni nañ xool mune ne walastu arju duma yakar muk musuma yakar wala aqsa te duma ragal siwa maliki man benn bur rek la am ñi yene len jappé bur man benn bur la am moy sama bur siwa maliki li annahu jalla naka mom nak, aji màgg sama bur bi yoni ni wuyun wayun ji dimbali te momay musal dal wax ni أني أفوض أحوالي لمن عجزوا عن حال أنفسهم عجز المساكين نان لاي جيلي سماي مبير ديكو ويك سي بوري ادونا ييغا خامني ньо گنا لوتو سي سين مبيري بوب مسكين او كيف يبعثني اك نان لاماي يوني نان لاماي يبالي خبل الختام الى جوار من درهم رد السياتين نان لاماي يبالي بڭ پونيتوم ادونا مي سي كير بور ييغا خامن سيني موي زارني سيطاني نين داغا دو مو بند خالو صفيون waaw da ngaa dof wéroo mu ni xaalu saf yow nee nañ damaa dof di daan neen waaye nañu yónni yàgg waaye nañu yónni yàgg waaw nañu yónni yàgg waaw ñu dund ba at ma delsi ca déwén ci yónni yàgg mm-hmm. bi at mi delsee ci déwén mm-hmm. ci yónni yàgg Sayyiduna Muhammad صلى الله عليه وسلم فك كوتي ليلة القدر كم كجور مخي نسافاني رسول الله لقول ربي أصحابك بالحمة ولا تربهم بدرس فقط كروك لا واخني من اراد ما اردنا فليسير بسيرنا كو بغل نو بغ دوخيل ني نوي في جانغ كيب كيب كيب كيب لو نيك تي كوفرتير اندي man nga dem deng nga wax waxul ku fi jang indi won daf ni ku fi jang kep lu ne ci digeunte couverture bu fekke mom rek nga soxla man nga dem bu fekke man na and ak nga def yitte ci sa borom ba bu khalimam gi di daw mom sa borom ngay deg kiic kiic gi bu malaak ika yi di déyante nga koy deg ñew nu and affaire bi ni la dafa bari ku koy no xamni ku fi jang indi won ñu ni mouride di farataaluñ jang way lool sax day dañ na legi ndax murid bi gën a jàng moom jeex na waaw ah, affaire jàng moom jeex na léegi weranteytuñ ko ah, booba booba teggi ni murid ni murid yi bëree teggil rek bu sama ñëwee dootoo wax dootoo def ku sa kilifa yegg si dootoo wax dootoo def te booba média bi demeewul nii affaire bi ubbikuwul ñu ni murid yi farataaluñ jàng te sëriñu murid yi moo waxoon ni ku leen teree xam lu yéen na ngeen xam ni mooy xalifa iblis ci kaw suuf ku leen teree xam lu ca réer la leen jëmee kon dem leen xam lu ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة اللعين المجرم ومن نهاكم عن التعلم فنهيه إلى الدلال ينتمي إنما يخسى الله من عباده رغم الله لأن من لم يخسى رب العالمين ليس بعالم ليس بعالم دينغا انما يخسر الله من عباده العلماء موم دافلا بو خامي با بار نانغ كو جيفه نانغ نانغ راغال يالا موتاخ دومامي موم اك دومامي نانيو لين خول bari le barkel le bax le seigne Touba rek ko def ku am ñet doom ku dul borom Touba amna ku la ci jikom ni ko ko yàlla amadou Bamba la la wax keneen ku am ñet doom ku dul Cheikh amadou Bamba la la wax am nga ku la ci jikom neexul waye nak daf ni won manna alayya wa ala awladi bil ilmi wal amali wal is'adi mun na ak ñaan la waye man na lu soti la am de moo ñaanoon nag avant loolu waaye yàlla may na ko ko da ko waxoon akrim bi xaal yi xaami ayaal yi raari rijaal yi xisni nisaa yi wax ko ne wali yo baarik fil banina wal banaat bi suratin awaluha wal aadiyaat yàlla may ko mu ni man na alayya wa ala awlaadi bil ilmi wal amali wal isaadi man ak samay doom dañuy am xam-xam dañ koy jëfe dañuy taxe zéro faute doomi sëñ Tuubaa rek. duñ jëm ci jàng ko rek. waaw déedéet bil ilmi mhm. wal amali dañ koy jëfandikoo. kenn ku ne ci ñoom daa copier borom Tuubaa te borom Tuubaa Rasulullaay la copier. doomi borom Tuubaa ju jigéen ku dul doomi borom Tuubaa ju góor moo la gën. Mhm. ak foo baaxee. Mhm. foo mën a baaxee laa la wax. ak foo mën a baaxee su fekkee doo doomi borom Tuubaa ju góor doomi borom Tuubaa jigéen la gën.

ci datam yooyu suñu am di wax ci la xëyee wax ni yonent bi nee na ma naa leen yar ci yitte ci Adama jébbalu Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ murid yaa googu sëñ Masamba Diop Sam sëñ Daam Abdourahmane Lo sëñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi sëñ Daroo San Ndiaye daa yónni woon sëñ Mbàkke bu so nee nañ moo tax mu nekk septième waaye sëñ Mbàkke Buso juróom-ñaari at laa am bàyyi ëlluwaam toppi borom Tuubaa rek ku leen am ñii ñii ngay tudd nii kenn da leen am mooy li ma la wax wa wa jaa ani xawmun muraafiquuna jooju wali xaada ahbaban mihim usiru nuska ñi ma la tuddal koo ci waxtaanee ba pare boo ko waxtaanee ba pare kuy gor ku nekk dina xam ne fu dul kër borom Tuubaa amul ku mel nii ñi ma la tuddal te ñenn lañ nag ci wa jaa ani xawmun muraafiquuna ñi ma la jot a tuddal mooy ñi njëkk a jébbalu rek bi mu wootee woote bi juróom-ñaar ñu njëkk a jébbalu laa la wax léegi nii wa jaani xawmun muraafiquuna ñee ñii ñenn lañ ci xam nga léeg day wax wax boo xam ni c'est global waaye léeg-léeg wax wax boo xamante ni ñennat lañ tibb ñii ma la tuddal ñennat la ñum tibb ndax ñi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali jur kenn jiitu leen bi waaye si biir wa jaani xawmun muraafiquuna la ñii ma la tuddal nekk kenn ku ma la si loon téyeloon sam su ma bàyyee nga xam ni bu dul woon sëñ Tuubaa du am kilifa. <laughs> maa la ko wax de. te bu génnee kër sëñ Tuubaa fu mu dem di seen kilifa ndax am borom Tuubaa la fay doon. ñuy jébbalu ba ca déwén sa ca weeru koor wala maam Cheikh Rafal ñëw bisu ñeenti fan. di mhm. àjjuma def fa fukk ak juróom-benn muy dimanche ñu signé pacte mook Cheikh Cheikh Amadou yëf ya tambali bërëx di dox ca dat yooya la daru salaam xew ndax bañ jógee mbàkke kajoor ña nga dem mbàkke bawal mbàkke bawal lan dellu ci diggante bi la sëñ ci daru salaam def fa jamono jam fa def may ko sëñ gaawaan jamono bi ala bi bi bi muy gis bi muy seet Touba ci biir seetu Touba gi ci la réeroon jam ñi ci la Cheikh Mahamadou Moustapha gane jamono yagul dara 6 mois 17 jours mo fekk muy sànc ba commencé fa sax Alaaji Fallu Mbàkke feeñ may sëñ gawan dëkk ba ak juróom ñen fuk ak juróom ñent ya fa ne ba waaye xam nga ni ki wutul mbooloo ku may juróom ñen fuk ak juróom ñent and ak fuk ak juróom ben wutoo mbooloo Sëñ Tuubaa wutul mbolo yalla tan ruuy ni len topi len Ahmadul khadim waye cheikh Amadou Bamba wutuloon mbolo ku wut mbolo do maye téeméer bu manqué ben di yóbbu fukk ak juróom ben xel nangu ko de bu doon moom mbooloo ko tax a jóg sëñ mag bi bu doon mbooloo mii topp ko moo ko tax a jóg du may sëñ gaawaan téeméeri nit yu manqué benn ni ko boo ci bokkee muy téeméeri demal jël ko kër gi dem sanc tubaa yor fukk ak juróom benn 16 personnes maye 99 yor 16 personnes sëñ Touba mbooloo mi tax ko woon a jóg waaye nag daa dem ba mu yàgg te Bafali ba mu wayee xasidaam googu ñu doon doon générique weeru koor yaa xëy na day fi te ba weer way jeex mu way mu way yaazal bu saaraati bil ayati wa suwari ca biir xasida ga la wax ni yàllaay ki may dimbali te mbindee fii danañu ma topp wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri da nafain bila dararin dama am njariñ te amuma lor waaw Sëñ Tuubaa daa am njariñ te amul lor defal fële ba muy wax ni وكل من خدمني أو سارة فنجيه واغفر له وكل من ستمني أو لاما وهب له توبة واستسلام وكل من أذى ظنه بي فليقلب قلبه مو باخ واي ولتك فيني أذى جميع العالمين واي ولتك فيهم أذايا موم أمول لور واي نيا يالا من بوكن لور يا ربي أمين موي لي سيني دون واخ كون سيني توبا موي بيرس موم بو فكي نيت لا موي بيرسون بو خامني incontestable amul kenn ko meuna corriger. man do musta def luñ koy corriger. motam tax mu ni Moussa nga yaakaar ba muy dóor yar ba ci baru xol soom bu ko dooron ci deñu firawna bi ndax du gem ñaan yalla mu xaral la géej gi mu xar ko jall nga jall est-ce que yalla mom boko ñaanon mu nooyal dund waji du ko nooyal wala ñaar yalla dañu am. léeg-léeg ma wax ko su may waxtaan mas naa ko waxtaan fii ci jamono bi su xasida bi xam naa nag su may wax day bëri polémique man waaw parce que man ab murit laa ci sama murit laay raisonné waaw ñun waxe wunu réer xam nañu li ñuy wax bu wér waaye nag ay murit lañu damaa waxoon fii ci bisu xasida bi nii sëñ Tuubaa liñ gis mu ñaan ko yàlla moom osé ñaan ko yàlla ñi ko jiitu woon dañ koo xamul woon wala noo amul woon fitu ñaan ko yàlla moom da ko ñam. xaw ma de xaw ma est-ce que ce que nga li ma wax ñun li nu gis mu ñaan ko yàlla ñu teg ci suñu bët nii gis ni moom moo ko ñaan yàlla moo ko ñaan boromam ba pare ni yàlla li ma ko ñaan yëpp may na ma ko li ngeen gis ak li ngeen li ma bind li ma ñaan ci sama xol ak li ma bind maa rumtu bil xalbi wa bil ma daliyal baaxi bi jaahir raaxi maa rumtu bil xalbi wa bil awrax waaw wax ni malaka nii dunya wa uxra laahu suuli wala ilaha illa allah lépp lu ma ñaanoon yàlla yàlla may na lu ngeen gis ma bind ak loo xam ni ci sama xol laa ko ñaan yëgoo leen ko lépp yàlla may na ma ko te ñu gis mu ñaan yoo xam ni fit ñaanu ko daañu seen fit yi yeggu ca bu fekkee seen xel dajoon na ko ak seen fit yi yeggu ca yàlla miy wuññi laate nag moo peegal Cheikh Ahmadou Bamba lépp teg ci kanamam de ko del ko boppam moom yàlla sëñ tubaa Kotbi bi nit ñi am seen digg seen borom dañ diggam ak yalla mu gis affaire bi ni fu mu xamni ki lu dul ci aras di yalla man nako maye mu koy ñaan lu ko neex lu xelam daj mu man ko ko fitam ñaan ko tax xasi da ngay gis muy wax ni sama mbind mi na tol ni yonenti ijal kitabati ka kulli mursali lolu ay tiaxan la ah Ijal kitabati ka kulli mursali ijaal kitaabati min zal yawmi fawqa salaatin qubilat wa sawmi façon ñaan yoo xam ni bu ko xel dajet fit war koo mën a bañ a ñaan waaye moom yàllaa ko ubbil boppam ba mu xam ni yàlla mii lu dul doon yàlla mën na koo maye. fii la wuute képp ku fi mas a jaar yàlla nag danaa faral di wax ci sumay waxtaan ni moo ngi dégg ñëpp waaye dégluwul ñëpp bala mu laa déglu da ngay mel ni mu bëgg ñun ñii sax suñu kër yi ka fa gën a jëf suñu ndigal moo gën a jubóog ñun wala déet te ñun léeg ñu gént bëgg a xëy nettali ko fàtte ko bu fekkee ñun am nañ fullay ki gën a jëf suñu ndigal moo gën a déggoog ñun ci suñu kër yi yàlla nag sëñ Tuubaa mi mësta xam lu naqari yàlla moo tax muy xaritu yàlla bi mu doonee xaritu yàlla ba yàlla du ko gàntu ci dara mu koy ñaan yu nit ñi yaakaaroon ni lu impossible la yàlla di ko may sunu ko waxtane ñun ñu ni danoo bokkaale yàlla non taalibe sëñ Tuubaa du bokkaale yàlla koo xam ni waggar yàlla tax boo masaana wax yalla rek ay bur mu ni la tasxiri ga ko yaq del wax yalla dalay bur wone yalla rek day mel ndam kum dendal talib taalibeem du bokkaale yalla talib Cheikh Amadou Bamba du bokkaale yalla ñun duñ bokkaale yalla mukk seigne touba limuy yek boromam yépp wenn way mu ne ci rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yazal samada wenn way wenn way dégg nga li ma la wax allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yazal samada samat ñëw na koo xam ne wenn waaye mu mu bloqué ci loolu yëpp kooku taalibeem dina bokkaale yàlla ah allahu jalla ahadun wa huwa samat laysa lahu min walidin wala walad walam yakun jalla lahu kufan ahad wa samadan bil mulki wal hamdin ashadu annahu ilahul wahidu wa anna ahmada rasul abid ku taalibeem du bokkaale yàlla sëñ bi waye xarit nak day sañ ci alali xarit badar ngeen balma xarit day sañ ci alali xarit badar señ sëñ da top yalla yàlla jaamu ko bay xaritam wax ko ci plateau yu bari dama wax ni Yalla, mi bind jaam ni nga xamni laysa ka mislihi say la wax sifa yi mu bok ci muhalafatu lil hawadisi yalla momu señam moy mhm. yalla mi nga xamni dara lu nit di am amuko bam dess ben affaire laaj ma lan la. lu doon muy xarit. mo waxal bopam mom mi ñu bind ni wa taqazallahu Ibrahima. khalila khalila bim ko waxe ba seigne touba d'accord ni yàlla mom d'accord na am xarit la fexe ba doon xaritu yàlla moom. la ko top ne ci liko neex ba xëy ni sabata kawni ni ya xalilallahi billahi sarmadan habiballahi wallahi inni yaqillun lil ilahi bihi hibbun lahu duna kasbin fii ujsaawu allahu xillii abadan wallahu hibbii wala ilaha illa allah waaye xarit day sañ ci alal xarit ma dara léeg-léeg problème am boo xamante ni ci kër mag du ko lijjanti rakk du ko lijjanti xaritee ñëw lijjanti ko am déet dëgg Tuubaa taalibeem yi bokkaale yàlla seen sëriñ mooy xaritu yàlla ndax dégg ma murid yi bokkaale wuñu yàlla seenub sëriñ xaritu yàlla te sëriñ sëriñ sa xarit di sañ ci alali xarit ba dara suñ mag bi sañ ci jaam ñi ak seen environnement doon gi doon xaritu yàlla rek a man a tax naa la ko wax Amadou Bamba xaritu yàlla la dëgg la comme xaritu yàlla la nag mhm. faw mu sañ yéex yi doon xew di xew ndeysaan histoire de l'humanité amul kaay nga ñëw mu ni la tuf aw lor nga génn sa téeméeri moroom yoo gën te jàng topp la buñ juree tudde la boo dooree sax ñun sëñ bi daa àllu loolu amul ci histoire de l'humanité li fi sëñ Touba indi amul ci histoire de l'humanité laa wax musta am ci àdduna ku baree noonu doole ki tax yàlla sàkk jaam ñi sax mas naa wax nit ni ko yaa ko wax wala yàllaa ko wax bu dul dëgg ne leen mënu dëgg maa la ko wax ki tax yàlla sàkk jaam ñi mhm. mas naa wax kenn ci ñi ko gën a jege ni ko yaa ko wax wala yàllaa ko wax bu ko yàlla waxee nañ exité bu fekkee yaa ñu xalaat alayhi salaatu wasalaam yàlla sàkk jaam ñi wala déet mhm. Cheikh Ahmadou ma liggéeyal kooka ba ni jaalani llahu qadimal xadrati wa jaada jalali bi hifzi hurmati déglul <laughs> qadimal xadrati maa koy ba fa mu nekk moom kott fay fekk jaalani maa maay liggéey rasulullah yàlla moo ma def fa mu ne moom ñool màkk man kott maa ko may fekk man Ahmadou Bamba wa jaada jalla lii bi hifzi hurmati yàlla moom moo ma may xam-xam ak war ma joo xam ne musuma ko fecc war ma ak la ma koy jege-jege loolu xam nga loo koy tegtal gazwatu uhud da ngaa mas gis ci mbindum sëñ Tuubaa gazwatu uhud mas ngaa gis mu bind ko dañoo gañe njool màkk moo tax kon wa jaada bi hifzi hurmati dëgg la sëñ Tuubaa mas wax kenn teg ci baat góor gu mu mës ni jógal dox da ngay dox bu ma saana toog fii ni ma numbe da dégg ma numbe ja ba ci kër sëñ ma numbe rek waaye kenn du ko moo ngi ñëw kenn du ko nekku fi xam nga dañ koy jokk jolaate ba sëñ ma numbe jot ci rek ñëw boofu bu ma sànni Isaa dañ koy jokk jolaate ba sëñ Isaa jenn jot ci rek bu ma sànni Ibra Faal dañ noonu noona rek genn góor du ko ni moo ngi ñëw wala nekku fi wala déedéet wala nàngam sëñ Tuubaa kenn genn góor yabu ko moo wax nañ ne am na ku ma Euh, romb ca bu fekk muy jàngale yàlla noonu tomb tombam tombam yooya di jàngale yàlla am ku sikar ca kaw ba mu yàgg mu daanele ko may sa biige Kumba Faal genn góor yabu la mu ne ana ko wax loolu ñu ne ko kenn la ci fray Ibrahima Fall yi mu ni dënd ba yàgg daan ne ko waaw Ibrahima Fall de a na bayre bari na bayre waaye baat boobu maa ko genn góor yabu la waaw may sa biige Kumba Faal genn góor yabu la jaaraama daam waaw mu ne Ibrahima Fall de am na bayre waaye baat boobu maa ko moom moom la genn góor yabu nasaraan bi ko yóbbu woon sax mujj na di muslu ci moom te nasaraan bi ku mas a dajeel say mbokk ñàkk ci yow yaakaar te ñàkk ci yow yaakaar nga du dellu ginnaaw ba ba ñu gis sëb néew mbaa ñu koy bañ a gis nasaraan ku ko mës a opposé laa la wax ku mës ku wax nga tontu tontu lu wuuteeg li mu bëgg say mbokk ñàkk dañ ci yow yaakaar keroog nasaraan bee mën ñëpp waa ja nga koy wax ci woy wi léegi nasaraan bi ku dul borom Touba bu mu jëflanteeg yow de yaa dellu gannaaw baa nga dee. sëñ Touba rek mo fi log mom, dem ñew mu bàyyi seigne touba ci lim nekkon nekkoon du rek waye kudul mom, bi nga log nasaran bi da nga delu ginaaw mbaa nga dee moom rek ka taxaw fi ci waxu musa Siré wara yek ci gal gi ñepp japp ni ki dootu ñew mu ni talal leen ma ñaanal leen bim ne talal leen ma ñaanal leen labbe bi ni touba bi day dem waye ki do yang ko yóbbu waye day delu ci de fi nga yegg seeg ku fi mas yek yegg si na yàlla ku fi mas a yegg ñaanal leen ma nga wax <laughs> dañ leen ko sargal yi teer na wàcc gànnaar Cheikh Bamba dem na Congo ba ñëw dem seeti gànnaar nañ leen ko sargal yi teer na wàcc gànnaar Samba Jaara ne ku xam te xàmmee tam xel léegi nag na biral ne waa Kajoor Cheikh moom tey réewi gànnaar Cheikh day dundal diine wan yoonu yàlla bu baax buur yàlla yóbbu ko may koy may faganaar borom tuuba deful waxul dafa dëkk jaamu am li mu am buur yàlla taas nu ci moom taasaale ganaar mën yërmandeem ji ci jaam yu néew yi doole ci réew mi laa ne woon di ko jooy ngir yoonu ganaar waay gaa yi kaay leen nu waxtaan tuuti ci mbiri cheikh kawteef la cey jile waay jarfal na gànnaar ji waaye xam yàlla moo baax moo fi gën jile waay moo gëm te moo muñ te sooboon seeti gànnaar ba man samay wax suba ngoon mooy waay lu dal milem réew ba bamba génn ci ñoom dem sañ ci gànnaar borom tuuba boo doon garab ci guddaay dig ron bu doon ci reyaay di xay bu doon ci weeraay di giir fa gànnaar borom tuuba boo doon guyit ding di jaan boo doon daqaar di gu rëy goo xam ne pencam ma bay de penc gànnaar borom tuuba gobar nga doo paaka yow sa ñaari ñaw kay dog na buumi njaami soo daani far dog buumi gànnaar yi borom tuuba gay ndeg njaloor la bu yemoo benn rab yi ne nuut yi nangi faaw di taa ñaañal ba gànnaar mooy kuuy li waxtu jubloo mbalkandaa maya yoor laajal tëkkale ga dootul ñaar fa gànnaar yam leen bu leen laa faal ku xëñ ub làmbi réew yi juróom ñaar mbër yépp mokkul ko muy mokkal ci gànnaar looloo ko indi woon gànnaar ñépp a nangu gànnaar rekk des tubaab bi defee na da ko war a jàpp na comme jóge na ci tukki bi kenn du ñëw na naa ko yóbbu ko ndeke nee na booba fépp a mu des gànnaar sama borom bëgg a taas ci barkeem mu dem mokkali gànnaar wéelal sëñ Saliou yaqudu li jawaaba kulli saa nag mooy gànnaar ñu ñuul ñi ñoo leen daa laaj yi waaye moom ba mu fa demee ñoo wëlbatiku di ko laaj leer na ndax dégg nga ba waaw gànnaar ñu ñuul ñi leen daa laaj waaye moom ba mu demee gànnaar naar yaa wëlbatiku di ko laaj si moom Seexal Xadiim kon mokkal na gànnaar gi Seex Sàmba Jaara wax mooy dëgg mokkal na gànnaar mos su ñaam dafa ubbi débat bi ne ko cas yóbbu ko ci niveau niveau bi mu ko yóbbu mooy ki may waxal damay accompagner at yi mu fi def man maa ngi déparé man moom bokkatuma ci émission bi ca ba nga ne Cheikh Adama jibbul ku ci topp. Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye jibbul. sëñ Massamba Diop Samb sëñ Massamba Diop Samb. sëñ Abdourahmane sëñ Abdourahmane waral àddina ba mu daj tur yii wër sëñ Touba ñoom rek ñoo ko wër ñoom rek ñoo ko am moom rek moo ko am te ñii juróom-ñaar yii mu njëkk lim ku ci nekk da ngaa ub làmb door a ñëw kenn ku ci nekk da ngaa ub làmb door a ñëw maanaam juróom-ñaar yooyu képp bu doon ñoo yem ci sëñ Touba ñoom ñoo jébbalu yem ci moom képp ñi ci des ñëpp ñu ne ñoom juróom-ñaar yi rek la seexal sax sëñ Touba accomplir na mission parce que ñii ko war kenn du ca cuune kenn ku ci nekk da ngaa fees foofu la ñëw. à mhm. comparer egg si Mbacke Xewar man date yi may wax yëpp mu ngi nii da koo bind. dat bu ci nekk ak lam ci def sëñ bi bi ma ci gën a neex mooy 1919 1919 déedéet 1916 le 28 avril 1916. ci la waa sous région bi yëpp daje ba Mali ba Côte d'Ivoire mën naa laa indi lettre bi léegi daam affiché ko ñi signé woon ci réew mu ne ka fa ëpp ca kilifa ak diine ga signé ne nommé nañ Cheikh Ahmadou Bamba nga nommé nañ Cheikh membre comité mu nekk chef membre comité consultatif des affaires musulmans jullit yi ne ci sous région waxuma Sénégal de ñoom ñëpp ku ci nekk da ngaa signé d' accord nen accord nañ sëñ Touba ñu nommé ko ne mooy sunu jiit moo ko le 28 avril 1916 beneen date bi ci jàqal mooy euh, janvier 1919 muy bi takal. koy takkal chevalier de légion d'honneur mu rejeté ko budul bu dul bu yàlla soxlawuma ko hmm. garaatub yàlla rek ma fi taxawaaj rejeté tubaab bi euh, sëñ tubaab noobul la hmm. euh, moo tax li ma wax léegi rek jaaraamaa daam Eh, sëñ Omar Kanté mi yegg si léegi maa ngi koy ziare baax dafa toog këram di sitaan ba yàgg mënut a sitaan tegale na ma ñaari message ba yàgg mu daw ñëw moom rek kéemtaan la ci malien la ci ndey ak ci baay Kanté la sant jàngul xaside yi ci arab day bind alxuraan di bind xasaayit ñu koy topp di ko móol kenn lu la wax ne maa ko tiim ne ko lii ak lii ak lii jànkatu xasaayit la bu yëkkatee sax nga xam ni kii du wolof piir ni nit ñi làkke bambara ni wolof noonu la koy làkke sëñ Tuubaa def ci moom loolu ci ay waajuram nga xam ne bu daan gi bu ñëwee ay waajuram ñooy yéemu loolu lu lu lu lu tuuti la sax. ci li sëriñ bi def am na mbokkum taalibe mu fi ñëw léegi kayitu kër la jëkkati jox ko sëñ Ousseynou Gueye bi euh, waaye yàlla na ko sëñ Tuubaa fay. bisimilah na kayit gi ñëw. léegi la ñëw ne dem jëli ko ñëw ne maa terale sëñ Ousseynou Gueye ak xaside yi kayitu kër gi tur bi nan la. sëñ Modou Gueye kaw sëñ jiili kenn bu Louga bisimilah sëñ jiili kenn bu Louga kayitu kër gi moo ko jox léegi sëñ Modou Gueye mu indil ko sëñ Ousseynou Gueye addiyee borom Tuubaa góor bisimilah soxna Salimata Ndiaye mhm. bëgg fàllu man dajaloon ca kasu rajab ga waaw na ma addiyee ju bari ne ma sëñ Yande ak sëñ Ousseynou ne ma jeneen addee ji yóbbu naa ko sëñ sa yónnee naa ko sëñ Saliou directement xam naa ne ci defukaay yegsi na ci waaye moom nee na xamul day taxaw day toog sëñ Abdou Wade nee na moom bi daal mi door tàmbali seetaan bab bi door doon métti waaye neen daa jékki-jékki bab bi wër te xamul lu ko faj nee na ma bab bee jékki-jékki rek dem xamutuma lu ko faj euh, euh, sëñ sëñ Salimata Ndiaye moomu ñu ngi koy sant du toog weer du toog weer wallahi weer wu ma joxul salaire xanaa moom damaa yaakaar ni semaine la koy def la koy def. Hmm. semaine. damaa ab salaire lay joxe. ndaw la. nekk ca Italie waaw. waaye doy na waar mbiram. yàlla na ko sëñ Saliou Mbacke taxawu. amiin na sëñ Touba gàttandu ko. amiin amiin amiin amiin amiin damaa jàpp ne xanaa dafa jàpp ni moo ñu war a yor. ndeysaan. waaw foofa mu ne ku fa dem teraanga ngay wut. dëgg la waaye moom li muy am moo ngi koy jege moo ngi koy jox waa kër dëgg la dëgg la dëgg la xam nga dañoo daje Kazu Rajab maanaam moom sëñ Saliou mhm. mu seen nu rek nu yuwunu ñëw jox nu àddee dem dem ba ñibbi dooro sëñ Saliou ne kon yónnee ma numéro sañ am daal ne la ma leen joxoon daa tuuti te lii dama bëgg mu dàkk mu dëkk naqarlu loola mu sax di métti ma ko numéro am mu ci bis bi mu def noonu mu balaa moo may wala la la téléphone bi sonné ca la ko tàmbalee nag wéyal ko xam naa ne sëñ Moustapha Mbacke moom barki démb rek mi ñuy eh. waaja a woor yi moom def na nu mel noonu tey jii mu defati ko yàlla na ko sëñ Tuubaa gën a sàmm Euh, sëñ Moussa dinaa la jox léegi kàddu gi ndax moom fi ne toogutul taxawatul murit la nag murit nga sëñ Tuubaa xam na ko sëñ Mbàkke mu xam naa ne ko yebu càmm moom ko yebu dimbali ko rek euh, ku yebu dimbali ko sëñ Amar Kanté euh, faaw wax ay bayit waaye balaa boobu sëñ saaliw mhm. noo ngi ziyaare baax mboolem ñi ñu yónnee bataaxal ñëpp ndax ku wootewulit sëñ Moustapha Fall murit mhm. saadix mhm. mi ngi jëm lu ne pour dugg ci ligne bi ngir jot la ndax nee na dalaa bëgg a jot ngir sëñ Tuubaa kooku nga xam ni kenn la ci sunu jëmm mhm. yàlla ko yàlla gën a taxaw sàmm ko waaye bu duggee léegi nañ xam li ma wax mook euh, sëñ Jéy Jéy moo xam naa dee surprise Jéy mu sëñ Saali waaw ndax léegi la ma wone ma jataay bi moom mënuma cee ñàkk teew ndeysaan maa ngi ziare soxna Anta Samb ca Texas di ko ñaanal yàlla taxaw ko amiin euh, bëgg loolu sëñ fal nee na ñu laal sëñ Fallu euh, soxna Nokoy ñan maa ngi lay bége sunu yaay Xadi Mbuub ñu ngi may message naan neel sëñ Saaliw Euh, bég nañ ci moom soxna Jati Diop sunu mag. Mhm. ñu ngi koy ziare ak waa kër gi yëpp sëñ Jili Lam. nee na moom te léegi mu toj télé bi maam Mor Mbaye yoonu géej gi. ndeysaan nee na neel saa yu góor. Euh, soxna maam Bousso. Euh, soxna maam Bousso Proxaan borom Ahmadou Mor ni yan. ak sëñ Afia Cobaan nee na mi ngi lay ziare bu baax soxna maam jaara ca Italie. moom it nee na mi ngi lay ziare ndey tuuti HLM. moom tamit nee na mi ngi lay ziare moog soxna sëñ Mouride Diop ñëpp noo ngi leen di nuyu. ba balaa muy balaa muy gën a kii soxna Umu Si maa ngi lay ziare baax a baax euh, di la bëggee sëñ Mamour mu moom sëriñ Habib mu sëñ ma Madoumbe moom may yónnee ay nuyoo ci yow nee na mi ngi topp jataay bi. waaye nag dafa maa ne ko la mu jëndoon jox moom laa ñaw lii. kon jeex na. lii moo ko jënd ñaar fukki junneeg nangam. léegi nag nee na dafa bëgg a tàbbi ci bi léegi. waaw léegi xam naa sëñ Mamour Habibou waaw. bala ngaa jàll. waaw mhm. maa bi ne ma tara bi ka fa xaddis lii ma sol moo ko jënd moom laa ñaw sol ko nii. Mhm. te dañoo korose rek ci barab bi ñuy jaay tisi barabu Xaadim Jaay mu daal ni bu xeet ñaar fukki junni tàllal ko ko ñu ko daggal saaliw 10 mètres loola moo ne nii xam nga ni kii bëggul ma dof de déedéet bëggul ma génn mukk ñu may xool naan kay waxtaane sëñ Tubaa nga ne waaye sëñ Mamoor bëggul loolu moom daa jàpp ni wax naa ko ko bari ki démb rek ca laylatul xadr maag sëñ am mii ni ko da jàpp ne kuy kuy waxtaane sëñ Tuubaa mbaa muy jàng xasida yaa ko war a yor wallaahi waaye saa boo ko waxee mu ni sunu maam ngeen wax di te ceddo yi sax boo leen taggaatee la seeni maam donte defuñ jenn jaloore ju leen yóbbu àjjana ñu jël lañ am jox la ko moo tax sëñ Mamor Habibou dafa hmm. jàpp ni moom moo moonu war a yor dina dundal ñu ak suñuy njaboot maa la ko wax noo ngi ñaan yàlla mu yokk ko ba fu mu bëggee a yegg mu yegg fa sëñ Fallu Mbàkke bi ñu waxee àll matt nawe matt sëñ hmm. Fallu dani hmm. aha kay ndax am na àll bu toll ni moom te amu dëgg la waaw dëgg la Mamor yàlla na ko yàlla yokk amiin amin amiin amiin amiin yàlla barke Seexul Xadiim yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën koo yëkkati euh, Mbàkke Sàmb Guyaar transport waaw logistique Mbàkke Sàmb ma jox oto bii taxaw ci bunt bi du ma ko du ma du ma ma romb mukk te waxuma ko jërëjëf. ci geste bu noble ba pare effacé wu. Mbacke Samb ñaanal leen ma ko Mbacke yaram. waaw ñun mënuñoo ñàkk a dem parce que waxtaane sëñ Tuubaa mooy sunu liggéey. la dëgg la kon ku ñu joxu fas rek. ngi jàpp ci liggéey bi. waaye jeego bu oto bi daw kilomètre bu oto bi daw yàlla na ko sëñ Tuubaa soppil ay milliards. amiin ci barke Cheikhul Khadim Mbacke Samb gu yaram transport amiin amiin euh, sëñ Abdoul Baaxi Lam mooy sëñ ji lam ak sëñ laat lam ca Touba baaxe mooy sama tey mi ngi lay ziare eh, nee na ñun ay murid lañ eh, Cheikh Balla Samb bàyyi Cheikh Balla nee na nee na moom waxatul dara nee na moom daa noppi rek xam nga affaire bi day neex ba doo xam fu mu jàpp ci yow loolu moo affaire bi critique maanaam da ngay jékki-jékki comme ni sëñ Moustapha di def sa yaram bi daw doo xam courant bi fu muy jaar nga naan lu ma dalak fekk dem nga bu yàgg <laughs> dag fee dañ laa bëba xagul rek waaye dem nga eh, soxna maam bu sa Tamba moom Cheikh Mouhamadul Fadal nee mi ngi lay ziare sama sëriñ nee na ma ziyaaral ma Serigne Saliou bég na lool nag ci émission bi. nee ko maa ngi yeesal sama tawlu bi ci moom. wallaahi ndax moom mooy Abdoul Karim moom sëñ Fallou rek. wal wallaahi wallaahi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax a baax. Mbacke Balla di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral. sëñ sëñ Saliou wax lu baax ñii ñoom sëñ Mamoun di def nga xam ne lu baax rek tax ñuy wax lu baax nga dégg ñu ne diw looy liggéey nga ne wax lu baax. waxoolu linnaasi. xusnaan xusnaan. loolu suñ tubaa rek ko mérito gis nga bu sëñ tubaa fekkoon résul desi la mu fekk nu ci réew mi gis nga nii mun Muntaxaa doon def bi mu ubbi jumaay Masaalikul Jinaan nu ko raw la ñuy def duñ parfum tali de jaww ji la ñuy parfum du nooy mukk ci jaww juñ parfum wut parce que ko rekee jàmbaar nag sëñ bi rekee jàmbaar nag parce que âge bi mu demee sax maanaam mënoon nañ ne teel na sax ci mu dem waaye deful yàlla luñ ko yóbboo deful mbindeef luñ ko yóbboo waaye bëgg nu mucc rek te nun ñëpp a ngi sant nag te nun nii sant ñëpp kenn gisu ko ci barki Seexul Xadiim ku ci ne dañ la ko misaalal rek xéewal gi deeg si cim te ku dul suñ tubaab bu la defee lee nga yokk mu fiir sëriñ bee lay defal nga yokk muy bég ku dul moom bu la defaree boo yokk muy fiir ah, nit ku ñuul de dimbali man bërki de maa ko doon abali bu ki daal di sëñ bi moo lay defal ngay yokk muy bég kooku dimension bi nit ñi di waxtane neewul fofu romb nako ñew nga ci mbàkke kajoor ñew nga ci mbacke bawal ñew nga ci moment yu critique yi mu fi nekké ba ni sëñ Moroon Sali jugee légui nak 1889 1889 ndax 1886 ci la la Jordan, dem yëf yi commencé comme noonu nga ko waxé sëñ bi ñew installé wat mbacke Bawal 88 rapport yi 89 menace yi di gëna sori mars 1995, euh, ci le sëñ bi euh, euh, di 10 août 1895 ci le tubaab bind ne arrestation Cheikh Ahmad Bamba à Jeewal 14 heures waxtu waxtu tisbaar moom bind Cheikh Ahmad Bamba face aux autorités coloniales. 5 5 septembre moo nekkoon conseil privé 21 septembre mooy départ am exilam fii ci Ndakaaru 1902 moi nekk retouram

la ko tubaab bi doon tere bàyyiwu ko te tubaab bi tereetu ko ba mu ñibbisee moom da ko bàyyi la mu doon def mu wéy kon am na ndam diggante 1895 arrestation bu daw yaram boobu nga xam ne amul avocat amul mbokk amul doole amul pouvoir bu mën a retirer loolu yaay na leen ci 1918 bi mu taxawalee jumaay njaareem teg xeer wi keroog sëñ Moussa nee na bég na mbég moo xam ne keroog lañ ko mës a gis ci moom ndax xam ne ne tey jii samp na ci bawal samp ci sénégal samp budul ma mukk ba ilaa yëm diini diggante at yooyu 1895 ba 1918 euh, waaw wax nga wax nga dëgg sëñ am xaye maa ngi woon ci fi may tolloon yaakaar naa mooy sancub tuuba mhm. sancub tuuba ci dat yooyu sancub touba feeñu alaaji fallu mbàkke mu nekk Touba sax fa juróom-ñaari at sept ans sëñ Touba sax na ko Touba. xasida yooyu ngeen dégg xasida yu neex yooyu ci yonent bi yooyu yëpp daanaka foofu la ko wooyee ay saadatul muridin xalbi lahu fi hitaabil jismi takraaru ay jaalibatu masiyaat ay xataaba xasida yu neex yooyu yëpp Touba la leen wooyee nekk Touba ba ama bay sa sin

sallallahu alayhi wa sallam def ak moom lii sëñu sëynu wax léegi mooy ñëw indi garaatum xutbu samaan kuy wut yàlla bu ñu la nee yaay représentant de Dieu sur terre war ngaa doyal wala de te booy loolu xutbu samaan ay loolu waaye te xut mu doyal daa takk garaat bi ba noppi njool màkk dañu ko ahmadu maanaam bu doon tay la wala ñuy wax waxit nasaraan baatu nasaraan dañ naan anticiper sëñ tubaa danoo anticiper ak xutbu zamaanam yonent bi dañ ko ahmadou ñeen fukki at yi nga wara am tak garatu khutbu zaman manke ne ñetti wer waye dinañ la ko takal tay ndax sak farlu seigne touba d'accord ba mu takal ko ko ba nopi ba doon bam mu doon xutbu zaman mu ne ko bëgg naa lu ëpp ko ko xër ci mhm. bëgg lu ëpp lolu mo andi li xewaat yépp ndax yonent bi da ko xamal ni ñii wër ma nga ni ci nga bëgg a doon membre ñoom ñii de bokk ci ñoom fekke woon xare ya jame mbaa ñu jam la moo ko doon waral bi mu wéyee nag li la koy may garaat bi contrat la bopp boo ko signé dem ba ci biir ngay onkoo ko bindi yàlla dina ko résilier soo deewee yàlla résilier ko soo demee ba yàgg nga ni mënatuma yàlla résilier ko te fekk la nga njëkkoon a jàll da koy perte te ñeewante naa la ci loolu lool Cheikh Ahmadou Bamba wax nañ ni mu wax Sayyiduna Muhammad ni ko yi nga wax yépp dégg naa ko waaye ruugi laa moomul ba xam dina fi jógeem déet waaye lu dul loolu borom ruugi bu fi bàyyee ruugi lii ma séen te soxla ko danaa dem jëli ko dégg nga Baye Moussa buur yàlla daal di signé jox yonen ba mu siñe gaña daal digital bamba lisanu hal daal di waxanteeg bamba ci saaru yusufa mu teñu yan ba bamba ni may nama ma l'islam bi mhm. seuf len ma jor len ma dina ko jamu. yalla ni astahlisu teg li nafsi ma gën yey ci yeen bi duna si la ñaan bur yalla yoonu geej ge kon yoonu geej gi nit ñi ci bopam dañuy wax tubab be ko japp waye mo ñaan yoon wi dégg nga la ñaan bur yalla yoonu geej kon mo japp nasaran bi mhm. mbiri seigne tubaab nasaran bi nak dafa melni li yalla waxon adama wala taqraba hazihi sajara ba pare fekk avant loolu waxoon na inni jaayilun fil ardi xalifata ndax dégg nga ma inni jaayilun fil ardi xalifatan moo jiitu wala taqraba hazihi sajara te inni jaayilun fil ardi xalifatan kooka du kenn ku dul aadama ak ñi muy meññi kon aadama faaw mu ñëw ci suuf pour inni jaayilun fil ardi xalifatan doon dëgg kon garab gi buñ ko nee wala taqraba hazihi sajara yaag sa soxna si bu leen ko jege lal len la ci souf bu len jege ci kaw way ci souf da ngeen ni lal de parce que moy waral ini jayu khalif fil ardi xalifatan don deug est ce que deug nga ba moy seigne touba ak nasaran bi da signé ak yalla ak rasulullahi ba nopi wara dem munta ñaka dem amul ludul aw fas ci moyen transport te fam jeung gabon la mu japp ki mom gal gi koka yaakar ni moko ko tek ko ci gal gi mu wàcce liggey daal di wax ni madatuhu khablun la dal libre fii madatuhu madan la da yumba مدحته عند أناس كالوا مني إليه خدمة قد لازمت روضته إلى الخيام رضي عني سبته الجيلاني رضي عني سبته أبو الحسن رضي عني سبته التيجاني رضي عني خلفاء الأربعة nii rek la demee moo tax bi mu yegg seen Ndar te sëñ Amadou Ndiaye maa bay bokk ca délégation ba yor seen kàddu wax ko ni nasaraan bi de nee na boo bindee fii ni fetaloo jiyaar mu bàyyi la nga dellu ci say bokk nga ne ko Amadou Ndiaye ñaar ñu yàqoon te boo leen di defaree da ngay njëkk ci ka jekku tubaab bi jëkkuwuma maa ko jëkku waaye boobu nag tubaab bi jëkkuwuma maa ko jëkku neexut a dégg ndax environnement tubaab bi ak moom ak deram gee xirtaas yi ca la ko joxee la mu jotoon a bind ci asiro ni ko téyel lii doo wopp doo faatu ba ma dem ba ñëw ma dellu see danaa la fekk secret nga jox ko huit yoo xam ne du fi dee tëli bii rek kenn la fee ni ni la doo dee fii ak ñëw tëli bii rek mm-hmm. sëñ Tuubaa ni sëñ Ahmadou doo wopp doo faatu ba ma dem ba ñëw ca kori wa fukki fan ak ñett la ko boroom moom xamal ni dëkk bii yaa ko aaroon ci mat la bu foofu sey ni wow lor la fi fekk génn ko fukki fan ak ñett ca kori wu ama bay sa sin la sëñ Tuubaa génn foofa sañ ci mbakki bari jolof nekk fa kori wa jeex zuwaal jeex zul qindati zul xijja muharram safar te ñeenti fan ya la waaj waajam bu njëkk nga nga déggoon mu wax ne xarajtu yow ma sabti rabiu safar li xidmatil muxtaari afdalil basar jotul ndigalu yàlla mu dellu Cheikh Ibra Faati dem Cerno mooy copier borom Tuubaa di Cerno Birahim Faati ci bayti fanweeri at ak ñaar la am jàkkaarloog nasaraan bi wax ak moom lool bi mu ko ko waxee nasaraan bi dañu ko yow loo wax dëgg la yow ak sa détermination bii fi nga xam ni ku fi jëm si da ngay waaj nga sol sa yére yi dabb daaxe yii mën a taxaw wax kàddu yu dëgg yi ma dëgg yow loo wax dëgg la Thierno Ibra Fati moom la tubaab bi njëkk apprécié ci Thierno la tubaab bi xamee ni kii ñëw bu ñëwee affaire bi du yomb barki Seexul Xadim maa la ko wax bi borom darul moo ti ñëwee ndar lappatoo bi tàllal ko plat bi nii mm-hmm. pour mu teg ci mu jox kuri ki yor courrier yi mu liiral góor góornóor mu ni ko déet sama loxo loxob kilifa gi te plateau lañ ko tàllaloon ngir mu teg parce que foofu ku fa ñëw ci plateau bi ngay teg ñu tàllal ko plateau Thierno ni déedéet sama loxo ab mumsin mom seen kilifa ciow li xaw bari kilifa gi genn laaj ñu ni ko nee ci sa loxo la koy teg mbaa ko ci kum jëme woon no ni ñett ñett ce yi tiim Cerno ni ko yow lo wax deug la ni nga mel ak sa melokan wi ak sa determination bi lo wax deug la yow borom darul moti jox gouverneur lettre bi mu jox ko kiy lire kiy lire di wax leneen Cerno di gis kanamu tubab bi di changer ci ñaw borom darul moti muy xool kanamu tubaab bi di gën a changé di gën a sens mu xam ni kii waxul li nekk ci lettre bi mu ni nan wut keneen beneen interprète kii waxul li wax li lettre bi wax léegi kooku borom tubaa njëkk ci moom moo mujj ci moom doy na xanaa xamoo damay faral di wax samay waxtaan ni borom darul moxti mooy ki nga xam ni moo bëgg borom tubaa te yàlla tax Ceerno bëgg borom tubaa te yàlla tax borom darul moxti li lay wan ni moo bëgg borom tubaa te yàlla tax mooy Cheikh Modou Moustapha ak sëñ Fallou ak sëñ Baara bu ci kenn naree faatu sama jur wu jigéen na faatu mbaa ma faatu mbaa mu daw bala faatu dégg nga li Ceerno ñaan yàlla yow yàlla sëñ Touba bu naree diil ci Sénégal ma laaxaan ko kenn ci ñett ñii mu ma bàyyee na sama way jur dem mbaa ma dem mbaa mu daw bala sama taw dem kooku bëgg sëñ Touba foofu la bëgg yam borom daaru wax nañ ni bi mu jógee bi mu jógee ci tubaab bi tubaab bi xamal ko ni Leclerc moom départ na ba pare xanaa ma wax ko mu campé pour nga yegg wax ak sa mag yi wax ni borom daaru ilmu nujum la topp pour mën a génn si Mbàkke Bari Jolof jiitu fi tubaab bi waaye fajar googa mu yegg si mooy mooy date bii nga wax léegi le 10 août 1895 doon la fukk ak juróom-ñett ca diggu gàmmu wa ama jay sa sin ndax bay sa sin jeex na ca muharram ba zulxija jàllee rek lañ lañ dugg jay sa sin muharram deuxième mois mooy safar ca dix-huitième jour ba la borom daaru nuyu sëñ tubaa ak suba mu julli ba noppi génn di bàgg diggante jàkka jeeg garab gi ci bakke bari jolof Cheikh Ibra Faati nit di ko jege nuyu ko bëgg koo gaaral li ko nasaraan bi wax mu ne ko Cerno dara matunoo wax Cerno Cheikh Ibra Faati wuyu mu ne ko ceer Cerno jot naa ndigalu sa borom ci wuy ji nasaraan bi Cerno Cheikh Ibra Faati wuyu mu ni ko Thierno bi ngay wax ak lappatoo bi doxoon sa digg ak nasaraan bi Thierno Thierno wuyu mu ne ko maa ngi seen xorandoom yi doon dox sa diggante tànk yi Thierno dara matumaa nettali Thierno jot naa ndigalu sa borom dox jëm ci kër gi Cheikh Ibra na ndem jot naa ndigalu yàlla maam Thierno dugg fas wi tudd ma tolloog moom mu dox fetal yoon wi mu dab ko ni ko bismillah Cheikh Ahmadou Bamba gestu muy fas wi mu dugal tànkam ci digalu fas wi njibbi ci kaw fas wi fas wi dox ñetti jéego mu téye ko wacc loxom ya jot seen bop ya leen dénk naa leen yàlla boore seen ñaari loxo tek ci loxol Cheikh ibrahim fat niko cerno ceerno nanu jàng nanu yaru bu ci ben nare ñak nanu yaru ko bu nu saalañ bu nu bumun bu nu dox julé fay na nga melax yek tundu jewal tisbar moni abdullahi Salim jant baangi fi borom tubay wax jant baangi fi ma ma jàkkaarloog mom mu ne ci tundu wële ma ne ci tundu wi ñu wara dajé ci xur wi mu wettiliku lool ma wét lool sëñ Balla jor yanu galga ga Balla jor mo yanu gaal ne lool ndax andul ak ñen ñu bari tuba ba wettiliku fé lool mu ni ko gawar ga bari lool seen ngi mi ñu fetalee jublu asamaan boo ko séenee muy mel ni toolu dugub bu focc ñu ne ci montagne wële ca ca ca fa ca ca tund wële ma ne ca tund wii ñu war a daje ci xur wi maag ñoom ma jiitu leen ci xur wi keroog laa leen gañe billahi faaraxtu nasara jiwali wa gayrihi xataan bila tanawuli nee na yàlla bi muy lal dënd bi ñu jaamu koo tax bi ma nee cëpp ci jeewal ci xur woowu damaa daal di lal sama der julli ñaari rakka bi may sëlmal gawar gi taxaw poussière bi wër ma gawar gi wàcc ci xur wi poussière bi wër ma Cheikh Amadou Bamba nee na ñu dem ba may gisantewaat ak ñoom poussière bi di jeex ndànk-ndànk mu ne lëkk rek ànd ak ka koy waxal wolof mu ñëw ni ma nee na ñett lañ ko wax nga jóg ngeen dem mbaamu yeew la yóbbu mbaamu yóbbu sëb néew sëñ tubaa nee na ma ni ko gees jant baa ngi fii ni ko ki may jox ndigal nee na fii lay fana sëñ bamba ñeme waaye lii ngay sëñ Yai ket kuwe jimbala sen Bamba ya ku mal di donay rasul ya ñeme yaay kenn ku wecc mbooloo rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin khimatan ka ufin wel sëñ Saliou ci kaw deram bi ni len kimay jox ndigal neena fi lay fanan ñaari wax yooyu du meuna baxando borom tubaa tubaab bi di ko xool ba mu toll ca jàppal waxtu farata wa ci topp ñu ni comme daa dëgër bopp nanu ko nanu nanu dal ci kawam yóbbu ko ci doole nee na ban may jub tolloog may masaa ñu seen sama maaru jë daanu fa lu mel ni mber fereen ba ca ëllëg sa bët set maa leen yeelu suñ may jaaxte nee bi ñu yeewoo gawar gi daa war rek bëgg koo jiitu mu ayu leen waaw le 11 août mu ayu ñu taxaw mu jiitu ñu topp ko ba kokki ñu jublu yoonu Louga yaakaar ne day jàll mu pénétrer dëkk bi dem ci sëriñ kokki toog di waxtaan ñu nekk ko nekk ñëwut ñu dugg fekk ko foofa bi ko gawar gi tiimee nasaraan yi ak espèce yi si ñu àndal mu leen xool ba mu yàgg fas yi fàng mu ni sëñ kokki bu dee ndox yomb na ci dëkk bi nanga nga fexe nu wëgg fas yi nasaraan yi danoo mar waaye waaye kooku zimam wara asri la dallahi fi yaddi wa ma rumtuhu min malikin xada bi lan ni mooy dëgg ñi ci kaw fas yi ak ñ ak fas yi ci seen bopp seen yàlla moom la ko dénk ndax dégg nga ma gawar yi ak fas yi seen ruy yàlla waa jooju la ko dénkoon zimamu wara asri la dallahi fi yaddi wa ma rumtuhu min malikin kada bi lan ni sakkuuma ko nak yalla la neex munima ahmadu bamba ruy ñëpp ci sa loxo ci sa jamono asri la wax awa ah, eh kan la fi alkati japp seen pono toj nga nan nañ leen ko defal ah yow ñi la jël ci ñom fasiy fang nga ne nañ nan yërmande joju ku dul borom jamono mëno ko am mom la yalla denk jam ñi. maa ko wax barke cheikhul khadim maa ko wax seigne touba nañu bal nañu bal waye du ko xamni dañ ko wara di tuddu kenn di wut koy wanga wangal ci wetam parce que koo fi wanga wangal yang koy ruslo barke Cheikh Ahmadou bam fi ku fi kuñ fi wanga wangal bari lay yaay mom bu fekke xalat nga deug deug xalat da ngay gas kàmb dugg ci ni sul len ma sëñ tubaa kenn du moom bu kenn doon doon moom borom daaru nangoo doon moom ndax borom daaroo man ñëpp raw ñëpp moo leen gën a jaamu yàlla moo leen gën a tegu ci yoon moo leen gën a jege boroomam bu kenn doon doon moom suñ gaawaan nangu koo doon bu ko kenn doon doon sëñ Masamba Issa Dieye nangu koo doon rakam mii kenn nangu ko cee doon waaye bu ko kenn doon doon moo Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim jàmbaar ji taxawal jumaa jii tëralub raay 48 kilomètres te privé mosu koo def ci àdduna jàmbaar ji tool ni Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim tëral bu raay 48 kilomètres pour defar néegu yàlla war noo xam ni kooku néegu yàlla ñor na ko bu kenn doon nangoo doon moom mu doon ko te bu doomi Sëñ Tuubaa yi nga xam ni gannaaw géej gi ci jamonoy njaarim la ñu feeñ buñ masaan a xéewlu ba noppi gannaaw Sëñ Tuubaa baxa bi la naa nii moom Cheikh Moustapha ni leen raxasu leen mbubbum seen taalibe bàyyi la moom la Baye Moussa joxar bi woon ci xel fil waraa ni naa ne kuy woote xalifatu yaa ko di la dendale xulafaaw yi xaw nay xaraam yaaram dugam ngam leeg sagan yamu leeni baay leer ak cosaan gi xewoon ci mbàkke fa tey labbay ka jam su la wuy siwul mooy saay sa aay nawar tasar samsul wara faw xaleer ab leera aay xutboo ngi gaa yi la xamul géej gaa ngi am xaayaana ngi muy wéy baqaay bahrul haqiqatu wa shariqatu wa nada mawjun yëfooru lil wara yay jenn waay yay mbambulaan bahrun nada sangu te duy yay ndoxu ku la tabbitooy ku la manditaay yaa murtajaa bnul murtajaa nul murtajaa yawmal qiyaamati ñii yaakaar ñang nisaay ku la am diree koo am muree ku la jooy ku am duree réew yann mbaa xub ca yal nañ la ful te nga ful nu ful nu bi jaahikum kooful duree reew yan mbaala xub koraay waajoo safoo day gën di saf dootunu soof ku ko weddi seet kase dootu kas tey ji baraay ku la xas ba soof day gën di soof dootunu saf koo soob mu war ciw naaru góor di tëbal di raay yàlla nañ la soob yàlla nañ la saf yaa Mustafa Kuloso soob musol jallabi mbamanto baray kulam dire kula ñakku jooy yal nañ la ama ya gën na yak ba yak xarit ya gën na jaay ya namp ngor ya don ngor Ya don mbeur yow yaari wet yi nga càllaloo dun nit ñu ay yaay mustafa mañ tànne mbacke di billiwaat di ko belliwaat ba ca ballangay sa sa maami baay ngay Moustapha mañ tànne kokki di belliwaat di ko belliwaat ba ca balla cokket seen jaay say kaddu wey ci na mbongu bur ci yor mi daay hayaa ka yaa xutbal waraa yaa Moustapha ngay Moustapha miñ tànne Mbàkke di belliwaat di ko belliwaat ba ca ballangay sa sa maami baay ngay Mustafa min tanni kokki di belliwaat di ko bellaat ba ca balla cokket seen say waame taw na ci soowu wal na ci penku bi koo may mu sarse bitig bu raw bitigub sukaay doo xippi xool ngir kersa yow loo ngeppi def say kaddu wecc na bongu buur ci ñu yor mi daay hayaaka yaa xutbal waraa yaa Mustafa bayaaka rabbuka fi xiin bu mu nax wa ataala xumraka fi zamanika rabbuna yaa tax murid yi siyaare see ka joxe ngay daay waykat wa daa way Mustafa bam xëy ko fal maa koy wayal mi le Mustafa doom moo di baay Muusa xadimul Mustafa moo deeti way mi Mustafa ku la feeluwul dib saay saay yaa murtada abnul murtada nul murtada hëbbu lir rida waridal xadim ko doon sa baay يا رب ظل على النبي محمد ما آلي وقدمي كوكا دباي يا رب ظل على النبي محمد ما آلي وقدمي كوكا دباي joxko micro lu buur tànn weesu naa ñaaw sëriñ be nu ko tànnal ci biiri tànniit jiw tànn du jur bu semba tembeliit turam waa ka dëppook taar ba ay ne leen kaar ne njool Aminata gën ku deef yaakaar ku koy weddina seet bis ba Bamba wuy jee ñu tëj kër ga ca njaareem ne dun bi day jee borom kun téléphone Moustapha ca mu ñëw yóbbu ko Tuuba ci kun fa yakkoon tubaab yaak teretang yaaki seyxi njaareem mu waar leen ente defal leen ba ñëpp farluum ko fal xudd muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnu lislaam huwal waarisu xaqan abuhu taaja huwal xawsu xadalil muridi haajab fajal aajo yi faj aajo yaa korango te nu ma faasit ya xol yalamboo ne leen daama yu du yokku ay peer nanuy daw di ko roy du nuroog piir fara it yamu daa bay ci tooli lislaam fabal gopp ta doomal sa saale saw jaam dama sob di ko wax waaye raw nga say maam ku muusa di sa way kat dangaa niroog daam ma far noppi ne say ndam xajul ci xiirtaas te jébbal fi sëriñ fallu mbàkkaaw taas banu balla nu juumun bi déew saful weer sëriñ fàddilu mooy weer wi leen di jox leer alil fàddilu mislun fala taqiisu ximaaran bi jawaadin fasaara iisu na ngeen saaren yi feek jàngu siin baab sëriñ fàllilu laay def sëriñ tuuba sëriñ fàddilu laajal lu la neex laaj ku Seex Bàmba di baayam lu ko neex laaj alaaji Fallilu ba ngay aj ña fa teewoon waroon nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoroon di saw jaam di labbaykatana marhaban wa sahla ne waa makkata daanañ la nuy si lay la hadiyaatuka mimman laha daaru fa tuuba lahumoo bax dama jaaro fa daa il yi sëriñ falli luy ramoo jaam amul cem su ko lamboo ci yoonul islaam ma feeñal fi sëriñ baara mbakke moo baax lamin doomi lamin ndaw boroomi xar baax xawaarix yamul lamboo sewal na docteur luwaay wopp bu tëfle nga wér ba def buur borom bàttina koy xam la jël na diiwaan ndëggoo mbaak taxawaayam ba doy na kéemaan biri ji la hirixa ba rijaali jàlla kama sama daaral hulumi jàlla yana baay bala noon cas di jéemaaw daam sëriñ bee ni ko toogal muñal ba dem sam ne cheikh bamba misaalam du walliw mbaam gu ñuy sëf sëfi domam di xecc muy ram kérok bis ba mu feeñee fi daaru dunya la dam xetali xetam bi xëyri sunyaa kajoor ak bawal ak saalum ak jorof njaay ne ngeen jibbalu jébbal ko seeni gànnaay bew safi kamalin la xattala aniw sirarin la muhayyahu ka badrin ne len ko tafer serigne basiro oy suñu mbek leel ja day niroog weer sëriñ Tuubaa jërëjëf serigne Yande Gueye ci ab yaat yi nga xamne ne bu ngeen ko yëkkatee rek mu sori lool ci xolu mu bi ñëpp ngi leen di bëgg nak euh gis na léegi serigne Saliou Mbacke daanu waye ñu bari def nañ ko nak euh serigne Saliou am na ku ma message sax ne ma ne ko bu ko yëgee bu ko yëgut ñëpp bëgg nañ ci moom hmm. euh, sëñ Pape Djibril Fall lay sunu mbokkum taalibe nekk fële ci TFM yal na ko yàlla dolli kattan bég na lool ci mission bi ba yónnee ma bataaxal waaye moom it ñu ngi seede ne murit la moom yàlla na ko sëñ Tuubaa taxaw jàppale ko ci li mu bëgg te nun taalibe yëpp a ko war a jàppale nag ndax ñun solidarité rek nu yóbbu fu ñu nekk kenn bëggunu woon noo bëggante woon suñu bopp rek affaire bi dox ba egsi fii sëñ bee nu boole nu bëggante waaw nun noo bëggante affaire bi loolu la boo nu bëggee nu boole la ci rek <laughs> fi ne boo nu boo boo bokk ci nun jotaay bi boo ko bokkee da koy rax dañ lay seppi tege na nee parce que nun carte mémoire bi ñu monté cent vingt giga la mu yor un giga di toog ak nun sa mémoire day gaaw a fees ngay boy dox ci kaw dajé ak nit ci souf rek ngay dox di ak nit nun nag nun ci kaw nun dajé kep nun rek no meuna connecté wu no def bay mangi ngi bëggee de siar waaye fii la rek wax ji jall na communication bi dem na ñi ngi commencé masala loo ma def neex na <laughs> waaw kanam gi day lèr do am problème do stressé barki dem dañuy julli korité fi ma tok ci buntu jumaa ji Cheikh Amadou Mountakha ñew garé ma gis ñu bind ci bi Rolls mu lèr la né Rolls bokk na ci auto yi gëna cher actuellement dans le monde entier ma xol auto bi mu yëmba mel sama xel dama fëggaat ma arrière ne sëñ Touba jeewal la jóge woon war xamnu lay ki di sëtam war naa mën a war rols ki mom jaadu na ci mom rols ke fas la waroon dem jeewal ñu pamti pamteeku ba mu yegg kokki guy booba yaram bi sonn na ndax yi lin di yëg da ko daan yëg toñul kenn deful kenn dara nun

ba defal ko ci yonente bi alayhi salatu salaam ba muy tàgg boppam dafa ne maa ngi gërëm yàlla mi ma def ma yërmande ci jàmm yonente bi alayhi salatu salaam ndax yàllaa ko ne ma arsalnaak ilaa rahmatan lil alamin sëñ tubaa nag moom it ñëw di suñu yërmande gën noo jegee yàlla affaire bi du koy dund muy neex ki lay jox ñam wi sax dala koy jox di jooy te naan la murit xewlul waay waaw yàlla na yàlla tey ñi fi joxee seen teraanga ñëpp sëñ tubaa lañ yëg du sax seen maam ku ne daa loo yëg loo mënta wax rek li Abdou Wade di wax léegi mu ko ree waaye sama jëwriñ ji nga daaneel la moom ma ci gën a métti alaaji Mbàkkiyu nee ma Saliou mi tambalaay la de <laughs> wala lii fu koy fu koy waxeeti fenn sëñ benn toll euh, soxna maam Manar sekk euh, nekk fële ci Italie sëñ Omar xam na ko mi ngi fi jëppal nee na dana la yónnee léegi addiyaam nee na jox na la itam 10 mètres jasneer nee na man neel sëñ Saliou teral naa ko ngir sëñ Touba. Euh, sëñ euh, am sa Diop fële ci Touba 28 mi ngi ma yónnee ay bataaxal ci yow ak sëñ Modou Aida Fall nee na ma ziyaaral ma sëñ Saliou euh, te ne ko maa ngi topp jataay bi bu ñu ñëwee nag ci deuxième partie bi nga wax nii bala ñoo ñëw ci régime bi door dem nag ci sëñ Moustapha xam naa du ñàkk sëñ daam am na benn vidéo sax moom ñu préparel waaye bëgg naa sëñ Mansour nga wutal ma micro bu jege sëñ Omar mais soo defee mu xam ma ay baat ci gisaawu sa koor Euh, mu mën koo mu mën koo yëkkati loolu dana am solo waaye sëñ Saliou bala ñoo ñëw ci sëñ Moustapha Mbacke mi ndax dama bëgg mi ngi teewlu jataay bi te dama bëgg mu jël ci ay kii te noo ngi jóg bu ñu fi ñoo ngi jëm sàngal kaam ci sëñ Mouhamed Mbacke moom sëñ Abdou Aziz mu sëñ Afe man ak moom ak sëñ Mouhamed Jatara sëñ Jatara moom xam naa ne nekkatu fi xanaa xam ne Jatara gën a ëpp jëli ci àddina affaire bi bu lay dal day garaaw ni muy ñëwee moo garaaw waaw dafa am benn dof bu fekk ay murid di waxtaan sëñ Touba dof bi daal ne ma dem ci li ñuy mujjee sëñ Mbàkke ñu ne ko ah mu ne xaaral ma dem ci li ñuy mujj ñii seen waxtaan wi ci la ñuy mujj laay ñu ne ko lan mën a cey kepp luñ mën a waxit fa la ñuy mujje man maa ngi leen di xaar foofu man toog ne waaye ba mu jékki-jékki tëdd dinaa la jékki-jékki gaay naan am ku ne cë mu waxoon naa leen fa ngeen di mujje ah, kenn danay melut ci réew mii ñu ne danay melut moo tax nun ay murit lañ sëñ tubaa rek lañ yaakaar parce que li ñu sëñ tubaa manal keneen mënaluñu ko nag buñ waxante dëgg te it lan lañu manal mooy jegal nu suñu borom ba noppi ne fofu lu ngeen fa am jël leen waaye yéen maag yéen yàlla li kulli man bi naja min kadari dunia wa fi yawmi naja kulli muridin biya yaluusu yasxadu innahu min al ada mubaadu loolu bu ko Sëñ Tuubaa defoon de bu ko defee rek wàccoo naa noonu rawatina nag ne lu ngeen am jël leen yéen man lu ma am bokk ak yéen sëñ bi daa defaree door a dem sëñ gaawaan amoon na terrasse fii ci fii ci sëñ Balla Coro am teraanga ju dul jeex sëñ Darou San Thierno Birahim kenn ku ne da ngaa amoon barki sëñ Mandoumbe moo njëkk jox sëriñ bi junni yu ron dajale jox ko sëñ Touba kon bàyyi na fi ñu barke waaye problème bi mooy moom boo ñëwee amuloon uppukaay sëñ bi amul leefaa di kenn du leen doon naa ci moom leefaa uppukaay gaa ñëpp a ngi ci kilim bi bu tàngee ñëpp taalu mu sedd lépp ci barkeb daam rek moom waxuma la kilim waaye amuloon sa uppukaay. sëñ Cheikh Fataka Diop nee na boo duggee ci néeg ba ci koñ bu mag nga koy fekk mu toog ngir warmaale ko néeg bi koo xam ne bakkanam bii da ko jëloon not ko takk ku ba mu dëgër jox suñu borom bëggu cee yëg amit xawaaya xali lan liy neex ci nit bu wokkee sax dindil ma ko ba ma yëkkati bànneex man naa la yéeg rek yow yàlla nii yonent bi moo tax buñ la nee am na nangam c'est à vérifier da nga naan xam ne kii da koo liggéey am ko sëñ Touba lim am kenn mayu ko ko da liggéey des fois nga dégg ñu naan diwey sëriñam ak fii la jaar wax naa ko sëñ Touba yonent bee sëriñam moom la doon wër warul kenn lim lim bëggoon itam ku dul yonent bi amoo ko woon moo tax da koo wër ba ne ko ciix téye ko nag ba noppi door a sañ wax nag wax dëgg yàlla nag bu dee président de la république mën naa jël nit kuy politique ci terrain bi rek mu nomee ko suba décret muy fayee ko salaire te du xëy am léppam wax yàlla nag <laughs> xanaa yàlla moom kenn wala dañ ko gën a ruy xol <laughs> yàlla moom xolom fa mu toll romb na foofu decrété loolu yàlla rek ci gaaw sëñ bi nag ba mu xamee loolu naan la jàll rek allahu jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad jël yàlla ne ko ne dann teg ko fi mu dal walastu asalu xayra naafila daf ne ko kulli lahu jàlla fii sirrin wa fii alanin walastu asalu xayra naafilallahi moo tax euh, démb rek maa ngi koy wax euh, jëwriñu ngi koy waxtaane démb ci mu euh, Cheikh Mamadou Muntaha damay ñëw julli sa ajuma rek réew mi du di yëngu loolu lu garaaw la loolu ay caaxaan ma yew ko de dama julli sa àjjuma rek réew mi di yëngu ñëpp di la waajal taalibe yi di ku ne di yëngu ku nekk ngi waajal fi ne ngir ne naa ñëw ci sëriñ bi wax ko bari ki démb rek maag seen jili lambiñ àndee réew mi boo fi génnee koo tifli mu yóbbu la ci yoon te ku san koo xam ne ni ci sëñ Tuubaa la soso boo tàlleelee say lox aw tifli nga soxla ci moom bu la tiflee nga raayoo te naan tifli di man mii la dal te boo génnee ku la ko def ngeen xeex loolu nag pas-pas la ak xel mu dal mu ñu sëñ Tuubaa defal moo tax ñun mun nu koo fay sama avocat maître bay di nee na mi ngi lay ziare moo yaayam soxna musli kenn bay di nee na mi ngi lay ziare sëñ Kamal ci ngoon rek woon na ma ci ngoon rek woon na ma yàlla na ko yàlla gën a taxaw borom M3 couture mook soxna Maré ak soxna Maam Bousso ñëpp noo ngi leen di ziare waaye sañ Fall sëñ Saliou faw ñu nuyu sañ Cheikh ñas Fadel Couture moom fu nu génn rek maag sëñ Saliou mooma moom fo mar grand bu ba ngeen gis rek moom bu dul sëñ Kamar rek M3 couture rek maa nga ca sëñ Cheikh Niass ak sëñ Fallou Sey Lambaye couture yàlla na yàlla dolli leen kattan sëñ Cheikh Niass jëf yàlla na suñu borom gën koo dëgëral may ko mu yeggale eh, eh, sëñ eh, sëñ Omar balaa sëñ Saliou ñu may ko mu dallu nga waxal ma ay bayit ci jasaawu sakoor lu mu gàtt gàtt sax baax na waaye barkeelu ci rek su ko defee sëñ Moustapha bëgg naa nga defal ma benn résumé bala maa ñëwaat ci gaañ yi léegi nag dafa am mbokk yoo xam ne dañ may sonal ci ñii numéro sëñ Yande ñii naan numéro sëñ Saliou sëñ sëñ daam officiellement numéro sëñ Saliou sambu ci écran bi 512 euh, 34 mooy numéro sëñ Saliou Samb 77 512 34 21 mooy numéro sëñ Saliou Samb sëñ Ousseynou sa numéro ñaata la 77 357 357 46 76 72 357 46 72 mooy numéro sëñ Ousseynou Gueye xasaayit bu Louga sëñ Yande sa numéro ñaata la. 60 76 872 16 63 numéro sëñ Yande 872 la 76 872 16 63 bu dee numéro sëñ Saliou 512 ngeen di def 34 21 sëñ Omar bismillah mën nga taxaw. keroog la ngir bëggaram mu jamono yonen ba tubaali man balaxa moo di yan ba yan ba nu yenoon xutbu ya ak lab daale te attanuñ ko moo ko fab raw gaaya dangañ di way te tawatul balaaya soratul axwaani la am ci laaya si naaxis lañu bàmbaay kaamil mbër yëpp suq lañu man shakka fi zalika fal yujarib bi wa man yujarib baabi taxarrubi sëriñ Tuubaa سرين توبا جاينتنا يالا تدوت الخج رجال سيد ننكو مزدد لولا تخون شيخ بامبنا يا قومي سبب خيبتي رموري سبب خيبتي أن الله أراد أن أنال من حجا ونكون الشافئا لقومي wa an akoona xaadiman fii dawme ca mooma at la bamba sanc baare bi isni xaalixil baraayal baari fekkoon na taaliba gor ca weela mu romb góor ba góor ga yàlla yeela ba mu amee juróomi weer fa baari di dugg xalwatu di ñaalil baari seytaana dem ruuxale koog nasraani daleen jiyaar lay fexe fii soodaani tubaab ba yónnee fa wesut ga di seet balak doom gis fa téere gu war ga ca moomaat la yàlla xar seen def ca ragal Cheikh Bamba soppi xel ca moomaat la yàlla xiir borom ndar mu woo Tuuba mu wuy ji leen ndar Bamba ya bal maam Cerno Ibra Faate muy jin ndar di nduroog gayndeg baati ñu boole koog waaju ñu na demba kebe tubaab ba naa leen bambalaay ebe ba mu demee ndar noon ba yër leetar ba ne leen garab banqaas ya mooy tiitar ba danaa folit banqaas di jibuut ba sànni ca àll ba tasaare tool ba mam abdulo mam abdulo kalaame koog borom ndar ak ibra fatim saar ñu dëkkee dër dër jortoo lam du jul ba buuram ñooro mba cheikh malik ba imam mu ñooro mba cheikh abdul qadir tijaani ma xare samba sadio fil jiraani ca moom ma tentinoor kalaame cheikh bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ba moo jébbul woon dem tuubi ndeyam di jooy mu naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiergane Ndiaye sëriñ Mor Maane Mbay Cheikh Ali Diouf Lambaay ñi ko daane keroog da leen woo fa naa leen danaa leen tàggaleeg ay laxasaay keroog da boole sor ci wuur mbal ñuy kenn kennoo ba jaa ngay darbal muy bocc ay gobar di feeñal dàmbu di boole door ak yeew amul far jàmm te naa baleen Cheikh Bamba Bamba ren ni murit yëpp ma nga naan ba man murit ya naa ko Bamba nos na ruuy ci yow ma alastu yow faral tey nooy sëriñ Mamar maa ne ko tontu booba ne ko da ngay kàcc dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk da ngeen ne tis penc ma daal di jaxasoo murid ya xaacu mbir ma daal di laxasoo barki borom Tuubaa ñoo ngi jégaluwaat bu baax sëñ am wax dëgg yàlla damaa taal télé bi rek yem si dama toogoon di bind sax waaye bi sama gaay yi bi sama gaay yëngalee ba yëf yi jàpp ma rek. doo dem bi ma ne bërët daal di dem jàpp rek sol yére génn. tey saan barki damay génn sax tey ma ko damaa génn rek yàlla dimbali ma ab taxi taxaw sax. sëñ Tuubaa nu gënal nu koy waxee ci bambara. Hmm? sëñ Tuubaa nu gënal. ah xaaral ma nuyoo ci bambara ba pare. ay ci bismillah. mbégaam bal moo be foo. mbaa ñi ni ala fee. maa la ko wax. kaa ñi ni sëriñ Tuubaa fee. moxom moxom mi mi mi mi kan kaame. ala kee ka ko tañee. mbigaa ñi ni ala fee. kaa ñi ni sëriñ Tuubaa fee. sëriñ Muntaxaa. alaka shi caaya sëriñ Touba Koso ah, sëriñ am musique l'influence intercetto moo ko ñumandi doo sëriñ Saliou Samb bu bee ñoo ko mu ñumandi loolu si di dégg ko sëriñ Ousseynou Gueye ale bi xasida de kalan mbikaa ñi ne ala fe ala kii shi caaya ala kisi alakaaw kisi yàlla na leen yàlla musal mooy alakaaw kisi hmm. mbiga ñini ala fe n terki aɓe yelela kana yele e kana yele sëñ yàlla kana yele sëriñ tubaa ye moxom ye sëriñ tubaa moxom indo ale kele dɔrɔn diye ala ta ye anw bamananw an tubaa dɔrɔn de fɛ sëriñ am avec Kasila. ndeysaan parce que avec sëriñ Tuubaa doon defee. en tant que doo. alhamdulilah. an b'a ɲini ala fɛ sëriñ Mbackiou Faye ala k'a si jaaya. cee waaw ala k'a si jaaya. ñu ngi jégaluwaat bu baax waaw waaw jërëjëf Baye sëriñ mooy waaja. yow moom yow moom ñaan ci barkeeb sëriñ Tuubaa rek. yow moom yàlla na bi defal jàmm ñu ngi ñaan ci barkeeb sëriñ Tuubaa ak barkeeb sëriñ Saliou. maa la ko wax bu baax. jërë ngeen jëf jërëjëf sant nañ Kanté euh, yàlla na ko yàlla gën a dëgëral mu murid la Euh, ndeysaan am na ñoo xam ne euh, ci YouTube bi moom li ma ci am ci message moom mënuma ko jàllale waaye yéen YouTube bi yëpp maanaam yàlla leen suñ Tuubaa fay euh, am na kuy wax ne sonn nan waaye guddi na waaye duñ bàyyi mukk Serigne Cheikh ñas mu ngi yónnee bataaxal di sant bu baax soxna moomi sunu mag la ma nga fa fee ca Touba kër Sëñ Abdou Lahad ambassadeur moo sunu yaay Khady Gaye nu ngi leen di eh, sant waaye man sëñ Abdou Wade damay dajj man sëñ Murid Diop suñu yaay Awa Sow ñu ngi lay ziar baax saan moom nee na faaw nga laal ci Cheikh Ibra eh, soxna Fatou ñu ngi koy ziar baax fa fee ca Paris Baye Fall soxna Fatou Baye Fall eh, soxna Anta Samb ñu ngi koy ziar baax a baax moo commandant fa fee ca maa ngi lay ziar baax a baax Baye Serigne Diop Baye Serigne Gueye Baye Serigne sunu soppe sama chauffeur la nekk fële ci Touba di ku baax ndeysaan Eh, ndeysaan ku ma ku ma ku ma ku ma bëgg la sëñ Ahmadou Touré sama sama jarbaat maa ngi lay ziare Amadou maa ngi lay nuyu baax di la di la di la di la di la eh, di jël nuyoo soxna Jatu teg ko ci sa loxo sëñ Mouhamed Mbacke moom sëñ Abibou moom sëñ Onumbe mook sëñ Bamba ak sëñ Mamour Dendé soxna Kumba ñoom ñëpp ña nga toog seetaan ak Cheikhul Khadim ñoom say Sarr tubaab kàlla sumbeen ñoom eh, nguuda ñëpp waaye sëñ Mouhamed Mbacke dama leen di beral moom yéen moom seen maam danaa ci ñëw sëñ Madumbe moom faa mu ñëw ci léegi seigne Moustapha lañ may joxal micro bi seigne Saliou dama bëgg digënté Cheikh Abdou lat ñi ngi waajal bisam ñi ngi waajal bisub Mamor Jaara borom euh ñoo ngi bisub serigne Mbàkke Madina ma bëgg kuñ ci dugg rek Cheikh ibrahim Mbàkke photo bi dal kuñ affiché dam dal yay tan ko affiché mané ne Saliou noo def ak ki nu ki def ak bi kum fi affiché rek nak da nga na doon ko xamné buñ ko waxtané la ko dalé ci sëñ Mbàkke bu laa kuñ ci affiché rek dana indi sëñ Mansour joxal ma benn micro sëñ Moustapha Mbacke euh, ko affiché rek bu bu sëñ Moustapha daanelee balaa sëñ Saliou dugg xam naa bay boo nga dimbali sëñ Saliou ci numéro bi ndax nee na nit ñaa ngi koy woo ba mënatula sax concentré wu kon nañ ko nañ ko dindil numéro bi ñu dugalaat numéro sëñ Ousseynou Gueye ak bu Alaaji Yande sëñ Mouhamed Mbacke mu sëñ bu yow euh, non bàyyil ma may ko see Khadim sax ndax moom Euh, tubaarkàlla mooy mooy mooy ñaan def li seex Cheikh Bamba Jatara moom sëñ Mouhamed Jatara laa koy may. Euh, sëñ Saliou sàmm sëñ Xaadim Tall taalibe sëñ Abdou Sakkoor Fall Murid Saadix nee na samay waaw. lu nii la defal waaw lijjanti ba xam ne Cheikh ña samay ñawal. moom sëñ Xaadim Tall waaw. jënd ba xam ne seex Niass ay ñaw mu jënd ko waaw jënd jeesneer bi yóbbu ko ci seex Niass mu ñaw ko mu fay ko ba noppi mu doon koo gàddu ànd ak baaxelaam ñoom andi ko suñu xaarim taal ñaanal leen ko. coupon yi rafet la xool Moustapha Abdou Sakour xam ne coupon yi rafet na yokk ko mu dox noonu lay defee jël ravitaillement ah. hmm. day jékki-jékki rek jël ravitaillement te bu ñëwee du wax sëñ Sall yebalal kenn mooy yenu saa koy yéegal moo koy def léegi nag daf maa wax ne ma sama àddiyee suba bu ma xëyee daa nekk Touba euh, bisu sëñ Abdou Sakour bi ñu doon def nee na suba hmm. dana jokkoo ak yow addiyaam da nekk si ci yow man mi noonu la ma defal mbub mam ma jox daa ñëw rek ne sëñ Cheikh Niass xanaa bii de dana rafet ci Amidun mu ne ma ko daggal ko loolu yéene rek la yàlla na ko sëñ Tuubaa gën a dëgëral sëñ Jili Lam la yónnee bataaxal bi sëñ Jili jërëjëf maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax Modou nga doon tudd léegi sëñ Modou Dieye sëñ Dieye mu sëñ eh. xalaat xalaat sama kër la jekk moom damaa jàpp ni moom moo a yor kër ga xam wallaay wallaay wallaay waaye nag moom maag moom benn la nu wallaay wallaay Baye Serigne moom mooy man waaw <laughs> Baye Serigne Gueye jërëjëf naa la bu baax ñoom Aline ñëpp ziar naa leen Assou Gueye Assou ñoom ñëpp maa ngi leen di bége ak waa koñ ba yëpp eh, sëñ Moustapha dégg nga fi waxtaan wi jaare yëpp bañ tàmbalee ba léegi balaa sëñ Saaliwoo ñëw ci staff bi kulli xesbin bi maa ladayhim farihun nag beneen bi ci topp mooy doolee boroom kër ci surga yi nag sëñ Tuubaa staff bi mu amee woon la kenn amewul wax naa ci waxtaan wi bari ne balaa mu fiy jógee sax am na numéro deux wàcc fi numéro deux la keree wàcc fi lu sëñ bi defal yàlla ci àll bi cerno teel na ko liggéeyam bi ci jëri ji ba mu delsi ñun xanaa xamoon ne sëñ bi bu fa desoon sax baax na parce que moom am na engagement wu dem ñaare ba defar nañu defaral nañu ay référence door a dem bi muy demit bind na ba fi am na cër ci yàlla kon tey ñëw na ci staff boobu waaye damay ñëw ci nga résumél ñu tey li sëñ Saali doon wax soo na ko doon résumél tey ngay sëtu borom Tuubaa li mu wax léegi ku bokk ci moom bëggoo mu doon sa dara sëñ Yaafe mi nga xam ne mooy magam di sa maam nga xam ne naari dañoo ñëw Mauritanie jóge Mauritanie ñëw Njaaréem fekk ko ca jumaa ja muy muy naafila alxuraan ja neex lool te lii may wax ab sëtam ab sëtam moo ko nekk nee na bi mu ñëwee dugg ci bi yi ñëwee dugg ci biir kër gi danoo nuyu sëñ bi daldi ne ko sa këwri bii na ci penc mi di naafila maanaam sa jaam bii di naafila danoo bëgg nga jaay nu ko nu yóbbu ko Mauritanie bu ne mu nuy jàngal alxuraan sëñ bi ne leen du sama jaam sama rakka du sama jaam sama rakka noo bokk ndey ak baay donte noo bokk sëñ mën sali waaye daa juse waat ci sëñ soxna Anta Njaay Mbàkke ja daal ne noo bokk ñaari waajur naari ñëw ci sëñ aafe ne ko noonu kat dañ laa bëggoon a jënd jaax ne laa jàppoon ab kawri nga rek waaye sëñ bi nee yéen a bokk ndey baay sëñ aafe wut kol takk ko ba mu dëgër ñëw ci sëñ bi ne ko baat boobu la naar yi wax laa bëgg nga dëggal ko ma doon sab jaam baat biñ la wax prix biñ la fayit jël ko te ma te ma dem Mauritanie moo ma ci joxee ndigal te noo bokk sëñ Mauritanie loolu ba xarnu bi amee ba léegi ci sëñ Tuubaa rek la mos a mooy ku bokk ak moom doo wax mukk ne sama baay wala nga ne sama maga waaye li ngay wax mooy borom jumaa ji borom baraag bi ku baax ku tedd ki yooyu rek ngay dégg ñu koy utiliser sëñ Abdou Lahat nga xam ne communication dafa universelle bu koy tudd sax bu jubee tur bi da ngay gis ni muy def sëñ Fallou moom borom baraag baa ngi rek waaw borom baraag bii képp laa koy di dama seey ci sëñ bi sëñ Moustapha nu am mbégte bu baax a baax ci sa teew ci jataay bi nag waaye dañoo bëgg nga ñëwal nu ci ay kaddu ci li sëñ Saaliw daaneele ci defar ak takkoo ñu door a wéyal jataay bi jërëjëf sëriñ Amidoun ñu ngi jiital ci nuyoo beeg siyaar bi mu Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànn di ko di ko ñaanal mbooleem jàmbaar yi mu àndal di liggéeyal sëriñ Touba ci toolu bi lislaam bi di nuyu bu baax jëwriñu Ndakaaru alxaaji Mbàkke yu fay di ko ñaanal suñ boroom sàmm ko taxaw ko sëriñaa sëriñ Amidoune Diop ñu ngi lay nuyu mm-hmm. di am mbégte bu baax nag mm-hmm. ci sa jotaay bii nga xam ne mm-hmm. murite gi daa jéggi dayoo ndax jotaay bi ñi fi toog ñoo gën a sonn ñi koy seetaan dëgg ndax ñun gëm ma ne sax deseeti nañ luñ mën a wax ndax concentration bu metti day mettiw yaram ba tax na sëriñ Saaliwu Sàmb ñu ngi lay sant bu baax mm-hmm. ci sa njàmbaar mm-hmm. ak saw fit mm-hmm. ndax waxtaanee Serigne Touba nag yombut waaye li ma gën a neex ci waxtaanam wi mooy amut lu muy denc ak lu muy nëbbu ci lim xam ci sëñ bi ci lu baax dëgg la te bari na ñoo xam ne bu ñuy wax ci sëriñ bi ñu war leen a génne ci télé wala ñu am milliers yuñ toog am na loo xam ne am na fuñ koy waxee ak fuñ ko dul waxee te gis naa ne moom nekkut ci yooyu. waaw lépp lu xam ci sëñ bi lépp lu waay xam ci sëñ bi ci lu baax ba yaakaar ne fa koy waxee da ngay am ñooy déranger suñ boroom defal na ko lu gën a kawe loola. dëgg lépp loo wax ci sëñ bi ci lu baax ba tax ay nit di la ci jéppi wala ñu naan la mhm. suñ borom defal na ko lu raw loola. lépp lu mu ñaanit bañ koy yéem. Mhm. boo soree ci mbindam da nga gis lu gën a garaaw la nga yéem ci waxi sëñ bi. barke borom wax nga dëgg Mbàkke ba tax na sëriñ bi coobare suñ borom la kon sëriñ Saliou yéen ñi di waxtaanee sëriñ bi ak jàmbaar yii doon yëkkati eh, wax kàddu yii nga xam ne ay jàmbaar yi sëriñ bi ñoo ko doon yëkkati di ko jëme ci sëriñ bi suñ borom da ko doon fayee lam doon yëkkati di ko jëme ci alayhi salaatu wasalaam ci ay way moom lañ ñëwaat jël ko ci arab bu mu nàmp muy olof jëme ko ci moom mooy li sëriñ Saliou Samb doon wax Mm-hmm. kon ñing lay siar bax baax di siaré Serigne Ahmed jatara, mm-hmm. di siaré Serigne salihu Mbacke mi ñu andal di suñu rak mm-hmm. di siaré mbollem ku fi tok ci waxtaan wi bala fi ak mbollem kuy sétane télé bi ak ko xamné waxtaan wi koy and ak ñun di dund li Serigne salihu wax nak Serigne Amidoune Diop wax ko leen rek lañ ci wara a moy takkar suñu la ci xamné duñu dara ci kanamu Serigne bi ci nak Serigne bi boo digloo ni muy waxee mhm. war nañoo bàyyi xel lu bari du neex a wax nag mhm. mooy sëriñ bi am nay mbokk am na njaboot mhm. waaye mbokk ga njaboot ga kenn jëriñu ci waaw ñi ci jariñu ñëpp dañoo jariñ ci dem jaayanteek moom kon lu mat a bàyyi xel la estaf bi mu amoon nag lenn rek moo ko may mooy jug jëm ci boromam ca yàlla rek tax xam li boroomam bëgg mu jublu ko rek ca yàlla rek tax maa la ko wax waaw saa yoo jugee ngir yàlla am ñu la topp ngir yàlla waaye saa yoo jugee ngir leneen it mën ngaa am loola waaye ku lay topp ngir ngir yàlla moom dana jafe ñun ñii nga xam ne nag ñuy tudd tudd sëriñ Touba mooy mboolem ku aju ci moom waxuma aw sant nag waxuma Mbàkke wala Buso ñi ñuy tudd tudd Serigne Touba mooy murid yi seen waxtaan wii hmm. képp ku ciy ñaxtu ak di am lu la la ci du neex hmm. waxuma waxtaanu tey wi ak waxtaan yu mën di doon kooko daa war a xam ne waxuñook moom ñun murid yi la ñuy waxal kuy am lu lay naqari da bàyyi ba ñuy wax ak yow waaye ñiy wax ci sëñ tubaa waxuñook ñi jubluwut sëriñ bi ñi jublu sëriñ bi lañuy ñuy waxal te ñoom lu ñu wax ci suñ tubaa ci lu baax jëme ko ci sëñ bi ñun xeet nañ loola ca kenn ku ne fa sa xam-xam toll ci sëñ bi ci mbaax wala la suñ la la la suñ borom baaxee nga man koo xam ci sëñ Tuubaa rek ngay mën a waxtaane sëriñ Saliou Samb bu jugoon fii toog ne keneen ñëw toog fii wala Amadou mii Amadou Diop mii toog mhm. ngir bëgg waxtaanee jotaay bii nga xam ne tey daa jiite émission bi mën na fee wax lu raw li nga xam ne moom la sëriñ Saliou Samb mii wax ci ay ndaw yi sëriñ Tuubaa la ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a ndaw ci ñi nga xam ne dañuy waxtaanee sëriñ Tuubaa ci yoon wi mhm. ca tey jii buñ taxawee di wax nga diglu leen di nga xam ne li nekk ci ñoom ndimbalul ndimbalul yàlla la waaye nag yitte lañ ko jox ñii dañ leen war a protéger taxawu leen jàppale leen waaye yoon wi suñ am da ci wax lu am solo solidarité moo ñu yóbbu fi ñu àgg waaye solidarité googu nag war nañ cee gën a taxaw ndax léegi-léegi nga gis ñu jël waxtaanu ku mel ne Serigne Saliou Samb wala Serigne Amy Dundoo wala Serigne Gana Messere dagg ci dara te ña koy partagé di ci ñaawloo ko wax boo xoolee seeni profil Serigne Touba nga cay fekk ca solidarité bokkut ci loolu ca jamono toll na foo xam ne réseaux sociaux yi ku moytuwul dana jël sa pas-pas ci sa diggante Serigne bi ca lu mat a bàyyi xel la ndax am na ci ñoo xam ne toog gañu toog di wax seen xalaat ma nga yàq seeni pas-pas ca yëguñu ko ca yoonu murit lu dul xalaat bu rafet bu jëm ci jëfe ndigal bokku ci te fii jamono toll bari na ñuy mbubbawoo ci bokk sëriñ bi nekk ci ginnaaw eh, clavier yi di contexte li nga xam ne moo nekk ci yoon wi ñi réer ci xamuñu yoon ni muy doxee ñu leen cay jàppale te yooyu xeeti njuumte la yu baree bare bare te fii ñu toll ci jamono ñi gëm sëñ tubaa dañ koy gën a gëm di ko gën a yaakaar di ko gën a wóolu di ko gën a doyloo léegi nag koo gis fexe na ba yorub téléphone mën a toog ci ruqam wax lu ko neex ci yoonu murit waaye loola la tax mu neex a muñ mooy Serigne Touba ba mu ganee jamono ba xam fa mu jëm ak la ko yitteel ak lan dëdmal ba fii may waxee yow munta ñàkk ñuy dal ci kawam waaye tiiwuñu ko ak fa mu bëgg a kon nag du dem ba muy jafe taxaw ba muy jafe liggéey yàlla ba muy jafe liggéeyal lislaam ba muy jafe booba lañ doon xeex sëriñ bi te teewut mu rinsir lim rinsir kon nag fii mu toll ku jàpp ne man nga cee yàq dara booba juum nga ndax fekk nga mu pare ba pare ndax jaayante na lim war a jaayante lépp firnde ji rek mooy jumaay masaalikul jinaan ji ku ko xool xam ne sëriñ tubaa li sëriñ Saliou Sam mii doon wax képp kuñ koy gam-gam leel di la ko leel dañ lay nax sëriñ tubaa sëriñ tubaa la ci li tax ñu war ko sant gërëm ko moy da bari ñuy gorlu ci l'islam di jambaré ca dara sababu ko ludut taxaway bi nga xam ne njabootu sëriñ tubaa gi am nañ ko ci l'islam da leena soñ l'islam nak ku jëcc lu bax lu am solo la ba taxna cheikh mohamadul muntaxa so démé touba romb université bi nga xol ko di nga xam ne kii fi ñuy waxeek kiy wax daa bokkut waaye seex Muhammadul Muntaxa jërut murit yi di tontu ndax moom ay jëfam day tontu wax yi ci mbedd yi te loolu lu am solo la réew mii nag li fiy dal di jàmm ak li fiy dalal xel yi seex Muhammadul Muntaxa mii la ndax ñëpp ruus nañ ko li ko sabab mooy dafa taxawal lislaam ñëpp xam ne taxawal na lislaam ba pare boole kër kilifa diine yépp nag taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne moom la toogee ci ci ci ci ci jotaayu sëriñ tubaab bi da koo matale waaye nag sagal murit yëpp ndax sëriñ bu mu ci mën di doon taalibe bu mu ci mën di doon boo sañoon di tiitaroo sëb sëriñ ciy jëf wala ciy wax kon nag jotaay bii nga xam ne tey la 11 mai nga xam ne bari na ci ñoo xam ne tey jii jàpp nañ ne dañoo war a ràbb ay soin di ko jëfandikoo di ci bàggal koo xam ne si nii wax dëgg yàlla lañ cay daj di ko màggal ci réew mi de lu luy jaaxal nit ñi la sax waaye li tax ma xam ne Serigne Touba waxuma ñàkk moroomu suñ tubaa waaye ndawam yii nga xam ne si ni ay ndaw lañ rek sàngal kam gee ñu war a dem fekk fa Serigne Mohamed Mbacke moom Serigne Abdou Ciss moom Serigne Afi la 11 mais li jiitu mu fay ñëw 2007 mm-hmm. dañ fa daan taxaw teg pujum saxaar si jolli fu ne kenn ku ne du tux la ngay tux mm-hmm. ñii di fecc góor ñi jigéen ñi jaxasoo sëtub sëñ tubaa la de bi mu ñëwee loolu dañ na fa gis nga fañ doon taxaw di ko fa defee tey jii foofa la taxaw ñu fay jàng xasida sëñ am mii moo war a def waxtaanu te pourtant ci ndaw yi sëriñ bi la te ñëw na ci dëkk fekk fa loo xam ne si ni méngoowut ak lislaam mu dindi ko fa kon jëlle naa ñàkku moroomuk sëriñ bi waaye ci ay ndawam rek am na ci ñoo xam ne li ñu def ci lislaam ak li ñu taxawee kenn mënu laa wax na nu mu toll yoon wii ñu nekk nag muy yoonu murit day loo xam ne si ni kenn ku ñu nekk war ngaa xam ne sa alali bopp la su mbirum bopp la nga gestu ci la sëriñ ba daj ba taxawal ko la ngay njëkk def mooy kaaraange gi fa tàmbalee mooy nga njëkk aar sa bopp ciy jikko ciw melo ciy wax ciw doxin ca ñu xam ne sëriñ bi bokk naa ci du la ci jariñ bu la ci doon tax a jariñ Cheikh Mamadou faadal du jaayu njuréelam di ko jënde jëndeek taalibe bokk naa ci rek doyut dangay fexe ba jëfal sëriñ bi luy tax nga am lu sëriñ bi moy mhm. waral ngay gis sëriñ Amidou Diop mi xol ku bik kontaan jël sa adé jox ko ngir yalla xolal ñi teranga ñi leen jox ci ñi leen koy jox xamuñu leen lan moko ko sabab moy yitte jiñ jox sëñ Tuubaa mhm. yitte jiñ ko jox rek mom leen suñ suñ borom di fayé kon sëriñ Amidou sa bi jere jërëjëf Mbacke nanga xam ne murid yëpp bég nañ ci wallaay wallaay wallaay wallaay Mbacke ca yow na nga xam ne ñi ngi lay ñaanal bu baax waaye yow bég nañ ci yow de waaye Serigne Saliou mii de waaw ku war di wax la mm-hmm. ñu koy dégg gaa yi nag day am ñoo xam ne seeni wax du leen arrangé mm-hmm. luñ man ci jàpp liise la ba duutoo wax loola dañ koy def ngir naan saw fit mm-hmm. diglu naa ci ku ne ci ñoom muy moom muy Gana Messere kenn ku nekk diglu naa ni taxaw tëkku la ca tëkkowu la ci ludut waxtaanee sa mbaaxuk sëriñ loolu ku la ciy ko loolu loolu dafa jéggi dayoo ca léeg-léeg nga gis ay benn benn murit yoo xam ne sax dañ cay commande duma leen mën a sax tuddee ay murit ci lañ xamee ab taalibe mooy solidarité kii mii de bu doon waxtaan ci Serigne Touba ba wax ca lu dut noona sax bu ay nit jugee war koo attaqué taalibe Serigne Touba ñoo war a dox seen diggante ñoom. Mm. ca xam ne bëggub sëriñam rek moo ko ca yóbbee rawate na waxut lenn loo xam ne si nii génn na xam-xam génn na waxi sëriñ Touba kon. li ma ci gën a neex nag mooy seen télé bii mm-hmm. nga xam ne tele murit la sëñ bi Kanté nee na daa toog di seetaan télé ba mujj yàgg mu seetaan leen ngeen di wax mënuñu ko muñ mu daw dugg ci studio bi ubbi bunt bi dugg loolu télé murit rek nga ko sañ beneen tele boo dem ay ponkal ngay fekk ci bunt ba ñu ubbi la nga ñëw taxaw jàng ca ci ba ba ba vingt une heure di jot xamoo ne di nga ñëw fii loolu alali suñ tubaa dong ci la ko murit sañ boo ko weddee nga jug dem ci beneen émission di nga ko topp at doo ko am kon télé bii suñu télé wane na ne itam télép murid yi la kon loola lu mat a sàmb la ci lii lañu war di solidarité waaye tey jii nii ñuy waxtaanee Sëñ Tuubaa am na ci télé yoo xam ne boo ko jàppoon xool la koy xool ci vie ak liy xool télé bii te ñëpp ñay ëpp ca la ñu xool fële ñoom koo ne ci doo doo murit mun àttana rayanteeg yow te fii waxtaanee wuñ fi lu du Sëriñ Tuubaa te jëmm jii doon waxtaanee Sëñ Tuubaa Mhm. Serigne Saliou moo tax bi mu jooy wax ma ne ma demuk sëñ bi laa mënta muñ murit yi bari noonu la leen di dalee ci seeni saal fañ toog mhm. jooy ba sonn toog noppalu mhm. foofu lañ toll ci suñ digganteeg Sëñ Tuubaa muy bëgg ko ba dese luñ dara dara dara ci moom kon nag yàlla nañu sama borom doole dimbale di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér di sàkku murid yëpp ñu ñaanal ko mu yàgg fi te wér ñi ngi jégglu ñëpp kàddu yi nag kàddu yi pëstéef la rek ca it am na fooy toll ci sëriñ bi dootoo xam sax looy wax yow maa la xam kon yàlla nañu suñ tubaab doole dimbale jërëjëf Mbacke jërëjëf joxal ma sëñ Mouhamed Diatara euh, mu wax ci ay kàddu waaye joxal ma ko rek euh, sëñ Moustapha moom Euh, bi ñu toogee sànq di waxtaan dañuy kaf di ree bi ñu duggee ci automatique xasi dama noppi mun ne ma yi muntaan daje nañ ci jataay may waxtaan ci sëñ Tuubaa keroog bi muy génn xamatul fu mu nekk loolu bëgg sëñ bi rek ko ko waral te li nga defar ci ay ndaw taxawu leen ba tey ñuy jàng xasaay tukki nga fan yi mais bi ma leen fekkee ci baas maa xam ne sag fekke ak sag wuute xas nga leen defar ba noppi te yàlla na yàlla gën a sàmm sëñ Saliou moom dafa baax xam nga fi nga daaneele rek la Seex Bass waxoon jamono yi mu indi ay rëng-rëng parce que lu gaa yi loo wax fi nañu politique ko daf ne mbirum àddina politique fii la yem nan la nit di bokkeek nit pas-pas nag di xuloo moom ngir mbirum àddina te xam ne lii fii la yem fii la yem lee nag fële la jëm sëñ Tuubaa moom fii ci àddina amul problème moom tawféex ngay dund sëñ Bassirou Seex Abdou Khadre yàlla na ko yàlla gën a wéral euh, taxawaay boobu la am am na soxna su baax su nekk France soxna Faatu maa ngi koy ziare bu baax dama dem Maroc fekk bi ñu màggalee ba noppi rek semaine boobu yëpp ma nekk ci àll bi taxawal rek mais daf maa woo foofa la ma woowee message mooy yónnee ma fa addiya ne ma dama bëgg nga ñibbi ndax bi lañ bëgg nga tàmbaliwaat ko maa dama bëgg nga ñibbi Sénégal tàmbali émission bi maa ñoom loolu bëgg sëñ bi la li nga wax léegi xoolal ñi nekk ci YouTube bi nii di seetaan ñëpp naan jaaraama daam ak jërëjëf Bamba ak ay murit la ñoo ñii di dugal ñëpp seen commande lañ yor fu ñu zappee seen sëñ bi taxaw dégluwuñ politique seetaanuñ sport amuñu problème mu lenn sëñ bi la ñuy war ñoom am na ñoo xam ne nag fu ñu gis politique danañ ko remplir bal ba ba vie yooya yegg ci ay cinquante mille vie mais nun vie taxul nuy wax nun mm-hmm. moom vie intéressé wul audience it amul problème xam leen problème mooy daa mel ni danoo toog suñu saag saal di waxtaani sëñ Tuubaa comme nun bu ñu wéetee dañ koy waxtaan daal bu ñuy wéttali ko di waxtaan fi na am ñoo xam ne duñ zappe duñ nelaw duñ tàyyi seen connexion de am na koo xam nee na ma sama connexion daa jeex maa ngi ci digg àll bi fi ne di wër fu ma jënde connexion te ci digg àll ba la ne xaw ma ko sax message rek la ma ko yónnee maa ngi ci àll ba am na koo xam ne daf maa woo léegi ne ma maa ngi yónnee sëñ Saaliw ñaar fukk junni dinaa ci teg jii met jasneer ma ne ko tur wi nan la mu ne ma ko bëgg sëñ Tuubaa léegi xam nga nu ma def numéro bi laa gis ne mus na noo wax message ma demaat ca message di ko wër di ko wër ba gis ne sëñ Ibrahima kan la tudd waaye def na dama ko ne tur bi nan la mu ne ma bëgg sëñ Tuubaa bindal lool rek damaa bëgg sëñ Tuubaa la ma bindal <laughs> yow yaa bëgg koo xam ne <laughs> boo ko bëggee am ko bénéfice de euh, sëñ Ibrahima kan yàlla na ko sëñ tubaa fay euh, dolli ay teraangaam def naa fii émission mu ne ñi fi nekk ñëpp Moussa Ndiaye yow Bisiri ñëpp solal naa leen mbubb bërki dem la ko mujj def ci sëñ Abdoulaye Diop Bisiri ak sëñ Xaadim Kebe waaye yàlla la sëñ Tuubaa dolli teraanga te sàmb la sëñ Ibrahima Ndiaye transitaire lu Sëriñ Saaliw mi ngi may bataaxal moo ko naa doomam ne ma neel sëñ Saliou nee na nee na ma ne wax na ma ne ma daje ngeen ci korite gi mu am ku mu jox sama numéro ni ko yónneel sëñ Saliou xaalis nee na ma nag nee na ma nag suba neel sëñ Saliou maa ngi ñëw ci moom ndax daf ma bégal tey te sëñ Tuubaa dafa am ku ñuy wax Cheikh Abdou Ngom ma nga ca Russie <laughs> xam nga nag li garaaw mooy Russie fi ne mu Moussa koo may visa Russie du dem mais murid yi nañu Russie moom ña ngay taxaw sëñ ña ngay daayira ña ngay màggal ña ngay def lépp parce que ñoom la ñuy dund foofa jàmm la la paix sëñ Touba mooy non violence Cheikh Abdou maa ngi lay nuyu baax di la ziyaare euh, di nuyu sëñ Ahmed Mbaye taalibe Cheikh la man ci seen TV nee na ma yaag sëñ Saaliw laay seetaan nii te du ma sàppe li fekk jeexalu leen taalibe la yàlla na ko suñu borom gën a kàttanal moom sama sama xarit la sama waay la euh, sëñ euh, Ahmed mbay ma nga ca New York moom it yónnee na ma bataaxal yàlla na ko sëñ Touba gën a taxaw moom it mook El Hadj Ngoumbou Gueye maa ngi gis léegi seen message waaye sëñ Saaliw Euh, sëñ Gomaay fay nataalu sëñ tubaab bii nu gis ci bunt bi moo ma ko indil nataal bi mat na un mètre quelque bi ma ko indil xaw ma ko daa def vidéo rek ndeysaan sëñ Bay sàppar sàppar ma dem yal yàlla dolli ko yërmaande amiin daa gis dafa gis sëñ Gomaay def vidéo ne vide tal tableau bii di sëñ am laa ko wutal ku mën a xam numéro mbaa nga xam ko nga jokkale nu mu gis vidéo bi moom Mbay sàppar sàppar woo ma yónnee ma numéro waa sëñ Gomaay ñu waxtaan mu indil nataal bi moom la ñuy defee émission fii ci bi maa koy ziar bu baax yàlla na ko yàlla dolli teraanga sëñ Ibrahima Taal sëñ eh, Xaadim Taal monsieur bu Sakkoor sëñ ji la nee boo xëyee na nga ko woo sëñ Seexu naa Mbàkke Rudis mu ngi topp jataay bi démb bërki dem yi de jataay Maam Mor Jaara waxoon naa ko fii danaa ko waxaat mooy koo xam ne moo sëñ galasum sëñ Modou Rokhaya mm-hmm. ba dara dul dara lay dem xotti ay grand bu jox ko ñiy wax ci borom Touba. demal barab sàngam natt ko sëñ Seexu naa Rudis demal barab sàngam natt sàngam nga natt ko waaw ay garaabu buy jar ñeent fukki junni te booba yëf yi demeegul nii yàlla na ko yàlla sàmm si naa mbàkkeeri niis ku ku ko xam teraanga la te yàgg koo def ci nun te sëñ tubaa rek tax te jamono du soppeeku ban fàtte loolu yàlla na ko sëñ tubaa gën a taxawu nee naa ko ba buñ demoon ba ëllëg dañu ñëw di jël si sunu mbubb ndax noonu li gis ci sëñ bi sëñ bi xam nga amul star amul succès amul propagande sëñ tubaa amul loolu na naturel rek amul sëñ tubaa amul ay yooyu propagande ay may diw amul loolu boo bëggee lekk ruy rekkal kenn du star sëñ bay star sëñ bi la affaire bi mom la nim sen séddalee sax ni ngay xamee ne sëñ bi la affaire bi ci mom lay kum tal ba ngay tàkkit sëñ bi la motax affaire bi nan nan rek ni sëñ Saliou def ñewul tok waxtaane borom Touba mouride mom lu mëna xew li fek ni ngi dégg sëñ Touba néna na xol ya ngay galas lool mom mako mëna wax sëñ Sidi euh ñi la sëñ Touba réussir xolal ki Maroc la néw jang na am licence am maîtrise doomi sëñ moussa Diatara am na licence am maîtrise ba nopi mi ngi ni buñ continuer ci sëñ Touba mo melni ko xamul dara day joy comme xalé ba noppi murite loolu la suñu tubaab di fexe ba réussir ko ci ñi jàng arab ak ñi jàng tubaab moo tax nun fii ne araab jommalunu concours alxuraan it jommalunu waxtaan ci sunna ak sariya jommalunu ndax nun fee koo fa làmb loolu la feese affaire bi loolu la fi ne konkuur yi ñu teg fii ba wal buftu bi noo koy jël waaw ci jàng ko nag ak ci bind ko nag lu ñu fi teg noo koy jël ndax borom tubaab moom fexe na ba saxal ko dafa wax ne eh, eh, eh, xasida gi nga xam njëriñul alxuraan la yàlla la la ma yàlla wommatal indil ma ko fii sama biir kër moo tax ku ci jariñoo ci rek faw nga jaar ci sëriñ bi kon sëñ Mouhamed ma bàyyi la nga sànni ci kàddu bala maa ñëwaat ci euh, plateau bi ñu tàggatoo ndax sëñ daam nag palaato bi tey mooy plateau ndax moo ma ne moog sëñ Mansour mais sunu première émission kenn sëñ bi dafa war a neex ñoo ma ci sonal de ñoo réalisé ñoo bind ma ne leen tànn leen sëñ saay bi moom tànn naa ko ñu ne sëñ Ousseynou ak sëñ Yande man leen ah kon bismillah moro maraatu plateau moom day murite sëñ Mouhamed bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ziare bu baax a baax xam naa sëriñ am dafa baax rek waaye ñun moom jataayub sëriñ bi dañuy bëgg rek di toog di digloo xëy na am na yeneen waxtaan war nañ ci mën a waxtaan waaye ñun waxtaan ci sëñ bi dañuy tiis ndax dañu amul kàttanul mën a téye suñu bopp ci di waxtaane sëriñ bi moo tax léeg-léeg nit ñi dañuy juum ci nit ñi ni ñuy dundee sëriñ bi sëriñ Touba am na ñoo xamante ne dañ koy dund ci xol am na ñoo xam ne dañ koy dund ci xel am na ñoo xam ne dañ koy dund ci ñaar yëpp am na ñoo xam ne bu ñu waxtaanee sëriñ Touba dañuy mbëkki miir di daanu am na ñoo xam ne seeni sidit mooy dagg loolu nag sëriñ tubaa moo ni mel ndax toujours damay wax ne sëriñ Touba ay taalibeem kenn wuru ko natt ci melokaan léeg-léeg nga gis nit mu sol lu xaw a yéeme nga yaakaar ne kii du taalibe sëriñ Touba te Serigne Touba boo xoolee ni mu yaree nga xamante ku nekk war naa mën a nekk taalibe boo xoolee ni mu yaree Cheikh Ibrahima Fall ak ni mu yaree maam Thierno Birahim ak ni mu yoree Serigne Dame Abdourahmane Lo ak ni mu yaree Serigne Mbacke Bousso kenn nuróowu ci sa morom te ñëpp ay taalibe Serigne Touba te gis nga tanaw boobu am nga xam ne noonu ñu wuutee ci melokaan. te sëñ tubaa yar leen taalibeem yi du dund ci jamono yit noonu la ñu wutee ci melokaan kon ñun sëriñ tubaa dañ ko dañoo dañoo ëpp ndax dafa am benn naar bu mas a laaj sëriñ Tuubaa ne ko dañoo gis yow li li li nit yàlla yi gënoon a bëgg mu jafe leen yow dong ko ñu ne mu laaj leen lu nit yàlla yi gënoon a bëgg mu ne nit yàlla yi liñ gënoon a bëgg mooy amu nit nga xam ne am na ñoo xam ne ay junni at ñi ngi koy woo seeni nit mënuñ koo jot am ci ñoo xamante ne ay ñetti téeméeri at yow sunu borom jox la nit ñi lu waral loolu ak nit ñi ni ñu la bëggee Sëriñ Tuubaa daane day am na ci nit yi ay ay ay yonent yoo xamante ne ni sunu borom da leen a tàggalato tàggataloon ay jinne yoo xamante ni lu ñu bëgg a def ñu def ko am ci ñoo xamante ne nii weñ yi la leen tàggalato tàgg tàggalatoon mu daane nag ñii ma topp haulaay fa haulaay musaqarun mu ne ñii ma topp yàlla moo leen ma tàggal moo ma moo ma leen tàggatalal li ñuy def mënuñ ci dara topp gi ñu topp Sëriñ Tuubaa ak jooy gi ñu jooy Sëriñ tubaa ak li ñuy def ci Sëriñ Tuubaa ñun mënuñ ci dara ndax lu yàlla def ci ñun la yàlla moo ñu tàggat comme ni mu tàggatee mala yi ci leen di jëfandikoo te mënuñ ci dara ñu itam noonu la yàlla tàggatalee Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ñu mel ci moom noo xamante ni mënuñ ci dara daa fees ñuy xol ëpp ñuy xel ndax dafa am benn waay bu mas a wax ne benn naar buy analyser Sëriñ Tuubaa de Sëriñ Tuubaa góor yàlla yi fi mas a ñëw liñ daan wax seeni taalibe seeni taalibe dañ koy mën a dékk dañ koy mën a xam waane Serigne Touba li muy wax ay taalibeem daf leen a ëpp moo tax bu ñuy waxtaanee Serigne tubaa duñ mën a moom seen bopp loolu la Serigne Touba wuuteeg ñeneen ñi bu ko defee dañuy sant bu baax a baax xam naa waxtaan wi du mën a gudd Serigne Amidou Diop ak Serigne saaliw Serigne Saliou li ngay waxtaan kenn li ngay wax kenn du ko dindi ndax ñun am na su tuut am ñàng te wax ñi gën a neex loo wax indil nga ko dalil. yow ku la weddi da ngay naan ko weddi nga sëriñ bi ndax da naan fii laa ko jëlee wala mag sàngam moo ma ko wax te loolu booy xam-xam ñi nga xamante dañuy wax ci xam-xam lu tax ñuy weddi nit ki mooy wax joo xamante ne xëy na amul fu mu dellu mais yow li koy wax da nga koy wutal dalil te yow da jeex ci sëriñ Touba waaw maanaam yow booy wax ñi bëgg sëriñ tubaa te xam sëriñ tubaa dañu xam ne kii dafa jeex sëriñ Touba dañu ko jéggal li mu wax moomu ci boppam yow li ngay wax moomu ci sa bopp léeg nga àgg foo xamante ni yow mu nekkatoo fi yow doonatoo Saliou Samb mii mais Saliou Samb mi jeex ci Serigne Touba mooy wax noonu it lay demee ci Serigne Amidou Diop man yéen ñëpp laay suivre Serigne Amidou Diop day daane ñëpp léeg-léeg mu wax loo xamante ne ni maanaam mantex bi maanaam dañuy wax logique bi nekk ci wax ji ñii analyser ci wàllu xam-xam dañuy la wax kii fan la jàngee dañ naan kii fan la jàngee te fekk ne Serigne Touba ko def ñoom na bu ñëwee jaar fee keneen bu ñëwee jaar fee ñii mënoo leen a gis fenn yéen ñii ni ngeen bindoo nii ak ni ngeen waxee nii ci wàllu xam maanaam yéen mënuñ leen a fen fenn leen a classé fenn ndax lii leen waxloo kenn xamu ko sëriñ Tuubaa la bu ko defee dañ leen di ñaanal yàlla ñu sàmm leen aar leen ndax yéen a ngi sagal yoon yi am nga lu ngeen def ci yoon wi nag yokk ngeen taalibe yi de waaw yokk ngeen taalibe yi bu baax a baax baax te yéen a ngi namm murid yi ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di sant sëriñ Moustapha Mbacke mii nga xam ne moom la ñu àndal ak sëriñ Saliou moom itam ku jeex ci sëriñ Touba la xam nañ ko bu baax a baax mook sëriñ Saliou sëriñ am kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañ bu baax leen nag laay wax ci sëriñ Touba Serigne Touba bu ñu doon waxtaan ci gore gi rek gore sëriñ Serigne Touba ak mbaaxu Serigne Touba man damaa mas a dem daaray kaamil di yëkkati genn ci gaal yi sëriñ Touba yoroon te gaal ga defut dara te attanu ko maanaam gaal yi mu yoroon bi muy dem géej man genn gaal laa doon jéem a yëkkati attanu ma ko ma xalaat ni gaal yi sëñ bi daan na ci yenn yu baree baree bari te ay téere dañ cee nekkoon te kenn mësu koo jàppale. te man su may tukki di dem dakaar gii saag bi may yor attanu ma ko te suñ tubaab bi muy tukki ay gaalam ak i saaga moo ko yenn loon boppam mu defal ñuy xéewal ba ku ne ci ñun booy tukki oto ba ngay dugg sa buntu kër taxaw lay gaare te moom amutoon oto amutoon fas yu gaare ci buntu këram ba pare xamoon ne ñun ñii bu ñëwee ñu dëng la ñuy doon ñu doy waar la ñu doon mu taxaw peledeel ñu nekk avocat suñu borom mooy li suñu Saliou tàmbalee woon gore geeg baax gi plaidel ñu xam ne ñun ñii di ñëw ci ginnaawam kat dañ doy waar lool mu jàkkaarloog suñu borom ne ko fa innahum وإن عصوك يا أحد li ghaflatin lam yusriku bika ahad plaidé loolu loolu mooy avocat bu taxaw ci kanamu maanaam juge bi ñu war a àtte ay nit mu taxaw ne leen ki ñii day buñ la moyee yow sunu borom fa in asawka yaa ahad li ghaflatin ngir ak ak sàggante lam yusriku bika ahad duñ la masa bokkaaleeg yàlla wa innahum nag abdaanuhum laa taqdiru ala balaika li don fin yasaru te yow sunu borom da nga xam ne sa balaa yii ñuy attanuñ ko ndax dañoo feebul te xulubuhum laysat laysat tamilu abada na nga xam ne yow sunu borom ñii seen xol yi du jéng jëm ci kenn ku dul yow ilaa siwaaka min huna ilaa xada li tax ñuy mooy yàlla lakinnama talazuzul jawaarixi afdahumu li aqbayil xabaaxi li tax ñu lay mooy mooy da leen a bindee bànneex te bànneex boobu nga leen bindee léeg-léeg moo leen di xëcc ji leen jëmee ci lu bon li waaye nag yow maa ngi lay ñaan nga jéggal leen loolu nag xam nga mën nañ cee wax lu bari waaye dañ koy tënk foofu di wax ne sant nañ gërëm nañ yàlla ñu nekk ay taalibe Sëriñ Tuubaa yu dëggal ci barke Cheikhul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, madame Faye eh, mook soxna Ndogoy Ñang mi ngi message léegi di ma wax ne neel sëñ Saliou kontaan naa ci moom yàlla ko yàlla gën a sàmm soxna bintu ak ka ñàkk pasef fan yi nag la xaw a am pasef sax waaye soxna su gaawan jaxate ak jaxate ñoom moom tuwaar kàlla ay jàmbaar lañ eh, waaye soxna bintu sama xarit dama koy son tooñ rek di ko sànni xeer nag eh, mook soxna maam mbayloo eh, surtout sëñ maxtaar bintaloo bi moom ñu ngi message léegi soxna Astou Gawane Diop moom it tubaarkàlla ñi ngi gis léegi léegi moom itam taxawaayam yàlla ko yàlla gën a dolli kattan soxna Anta Ndiaye ca Italie moom Cheikh Talibi Cheikh Abdoulaat moom sunu bés a ngi ñëw mi ngi koy waajal Euh, ak mboolem mbokk euh, yi ne ci kenn sëñ bi sëñ ba ñoom sëñ ma mu duggee Thiaw ñoom ñëpp ñu ngi leen ziare sëñ Mor Dieng suñu yaay aw Saw ñëpp rek noo ngi leen di ziare euh, soxna Anta Sam ñëpp rek di ziare soxna Ndiaye Sibi ca Belgique moom it ndeysaan sëñ Mouride Diop ca Touba mook sunu yaay ak yëpp ñu ngi topp jotaay bi sëñ Saliou dafa am menn mbokk mu wax lu doy waar ci YouTube bi daf ne sëñ Mbacke Thiam moom mu ma gis léegi mu daan dama amoon ak moom ay jafe-jafe noonu la ko bindee. daal ne waaye bis ni ki tey su ma amoon doom tey tey moom laa koy tudde ngir lim jooy ci borom Touba ci youtube bi laa gisoon rek sëñ ku ñu wax sëñ Basiru alquran nee na su ma amoon doom tey tey sañ Mbàkke Caam bi laa koy tudde loolu moo di maa ngi woon léegi sëñ Ousseynou Gueye ku nekk ca Italie xam nga lu ma wax man awuma xaalis ma joxe waaye samay nelaw jox naa leen ko addiyee borom Touba moom nelaw yoo la joxe moom man awuma addiyee waaye nelaw yi moom jox naa leen ko addiyee borom Touba <laughs> waaw sëñ bi sëñ bi man loolu xoolal benn waaye dañoo jógee Gàmbi ñoom ñaar ñuy xuloo ba njëg si ci féeri bi ñu war a xeex kenn ki ne ko barke borom Tuubaa dinaa la dóor kay daanu ñu téye ko mu daanu ba bi daal di ñëw laxasu ko ne ko sawaay yow sëñ boo teeloon tudd sëñ Tuubaa du njëg si fii mu ne ko waa léegi ñu commencé jubale leen ñu daal di roofaloo ñu ne xoolal dof yi te ñi ngi ñaa leen doon atte féeri bi ba quoi kaaraan diggante boobu ni mu guddee féeri bi ñu ko wàcc teema rey la mu tëj mu génn ci borom Tuubaa mu wàcc laxasu ko ñu jubo mu ne ko nak legi buñ jubo pare mu ne ko na say faaw nga door ma nag da ngaa giñon ci borom tubaab même bu dee mbéj sax baxna mais mbéj ma rek da ko giñ gi wacc yow ma rek giñ gi wacc la nu and di jëndano meew di jëndano miskit lolu señ sëñ réussir ci ñun mo tax ñun señ bi neex ci ñun ñun ño tay bëgg sëñ tubaa arrangé nanu wax dëgg yalla kuy wax da ngay am problème rek nun gis nañ suñu bop ci sëriñ bi bëgg señ bi ci la nuy barakatul qur'ani khadatni ila manzilihi waxat wasaltu dha'ila ku yaakaar ne danañ bayyi seigne touba sen sa fatul tay ñun duñ bayyi seigne bi duñ ko wutal morom duñ tek kenn ci wetam ku ni tim ne la yaay seigne touba sax jaay nañ la bay ba nga juk jappi karam ak borom touba gi gañi mu téré ne law banuy garu walay kaddu ñoo tax ma juk di wax karaam ak borom tuuba gi gaañi mu tere nelaw ba nuy gaaru waaley kaddu ñoo tax ma jug di wax bu daam kabbare cim ndox ku koy tëkkale ki jën kañaan jël na sab xol mbaate sam xel ba lépp nëx lu yàlla ak bay séere kuy weddi ak amam danga yàqu yàqu tax ba ngay weddi may gu sax ku baayam demul maamam demul bamba dem ba ñëw bu santul bu muy gaaral ku gaaral mbiram torox ba muy tabbi géej mboolem samaam yaa ngi riigu fii budel se see ndam yu day dan nan ko wax bay ci daa songoo ña daa daanu ak nyadaw batay sen gewel yaangi dilen way ci bepp gox di dan sargal ko mba kon nga nopi far ku Bamba ba xam nga dootu sax karaam ak borom tuubaa gi dafay wéy te dootu fay ñadaa jéema fay ñum ñépp dem nañ ci seeni pax ku woo aw ñoñam bañ wuy si muy wax waxun lu muy digaaral jaloorey Bàmba ko yaay purux ku bañay goneem xaaraani waa ji naraa si njël amoo njël te bañ say doom di xaaraani mën la sax ku kabar ci ndox kabar ci kaw jéeri doora dem ku koy sàkkalum kem juum na berlin ko doora wax ndaxam ibra faateek ibra faal rekk fuñ taxaw ku leen yërëndu booy daw fa ngay bàyyi say carax bu leen deeti tëkkaaleeti koo xam ni ay suqam dañuy daane waa day réew mi gayndee mënub sandax wa man yulqini fil bahri rawman li qurbati fali min ilaahi rawdu sayqi bamba ko ndamal bambali day waame wuy dotte waaju xam dafay génn taataan ay ndabam dootu ñàkk ndox te ngeen wàññi soseeg duur yi xaadim du séereloo ci ay taalubeem astam ku dul yàlla maa ko wax ku koy séere séereel ko xadimam li Mustafa ku bañ muy xaddiimul maay loo seere yaa ko wax kawub lambi waa day kaw tiwub lambi gaay suuf fobal saf ga sargal ko mbaa kon nga dal di soof te kuñ mës di naw cikk mbër ba mbër mi ñëwee la fay ñajuumoon ba mos carfal ja seen dënn yaa ngi ci suuf dafay menn koof moo xam ni jaaxal na gaa yëwey ku songoog tubaab bii daan ko yaaraw ca mbër ya fuuf na yam ci parparloo ka gam-gam le waaye cëy ku sàggan ba léwtoog moom dalay fil nga dal di bóof sëriñ sam démb joxu nañ ko seeni mbir ña doon gantu xëy nañ goole ñee galle nañ ba loof dammel yam tasee lakk wuur ya ñay nangu ak ña bañ ësal wuute nañ ak mucc ña daa gantu ñépp xiif worom palyaandoo nag tubaab bi ko daa sonal bawuñ sax ci duniyaa tey solos ndam soppu ndéef wolof nee na nangooy jël ci ru nangu woon gërëm nañ te seen sëd yaa ngi nii reere jur gu ña daa bindaay tuumaak ña daa yàq alku nañ te ngir maa ngi wéy tey jublu ci dëng ñoo ko neef ngiram mi amul ay sil dafay xàll wuñ tëral ci caawok rasuulillaahi yonnen ba gën ci suuf ngiram mi ca ndëggul njool ma des tay ba lay jofal ndemooy sunnatul xarraaw bànneex ba moo ko xuuf ku koy seere serel ko qadimam li mustafa ku bañ muy qadimul may lo sere ya ko wax barke borom duwa ñal bul dañal qalimak way calef ma ñuy tagge daamu serign bu mak ba fa tuuba rijal ya lañu taamu moo jar di way aka sargal diriim taggam ya baamu yow soxna jaara sa ndam lii moo raw ci jëf aki jaamu mbusoobe moom lañu taaroo ak mahramum mamu maamu bul wër kemam amulam kem Cheikh Ibra Faal amul ca faasa ki baqdaat amul ca misra ba saamu ku ceerno faati di boofal ak ceerno cër yamu saamu dootu fi seeru kuraam loo ku tol ni mbër ma fandaamu dogon sëriñ ba fa tuuba sëñ daru jekki ni kaamu moom rekk moo mën a raam loo ma sàmba jóob ma fa saamu murit ba daa baye dende yi seex mu du boof na ba saamu sëriñ mamar ma ñu maagal boofal na bamba ba saamu sëriñ ma baa bu ma selloon sam la boofe ba saamu pincum sëriñ ba fa tuuba góor yàlla yépp faraamu yaa tax ba ahmadu baasi sàlloo di taggaka baamu boo jàppatee xëli mag way taggal ma ahmadu daamu aska salamay rabbin bi yu naalu maraamu ala nabi bis bin feeg maa ngi fi tagg daamu barke ñu daal di joxal ma micro bi sëñ Ousseynou su ko defee sëñ Saliou mën a tàggoo ndax bëggoon naa mu dugg ci ay jëmm yu bari waaye bii première partie la saison 1 la faw mu am saison 2 nag boo xam ne murit yëpp laa bëgg ñu ñaanal ma ko sëñ Saliou gis nga su ñëw fii li ma ciy daj maanaam lu ne laa ciy dek sëñ jili laa mag sëriñ ak de fu ne dinaa fa jaar waaye saison 1 bi faw saison 2 bi ñëw ndax saison 2 bi mooy bu boobaa dañuy jël daam teg nee saison 2 bi daam la ñuy jël teg nee déedéet saison 2 bi yéen ñi yéen ma yor numéro yëpp bu ngeen ma ko woowee njëkk leen ma ko dongalal lool léegi saison 2 bi dañuy jël daam teg nee maasu tàmbaleeg si xaadama léegi nag di wàcc ku ñu ne nu mu ñëwee ji sëñ bi ak lu ko sëñ bi defal am na ñoo xam sëñ bi dalee na désinstallé xam nga désinstallé fees dell ak alxuraan ñëw mu dindi li ci yow raxas ba mu set dootoo dégg feri ji sax doo ko def mu ne la loolu amul problème dégg ndey la ak yooyu amul di fekkee ndey la garaw ne la cas def la nam la def nga daw duggaale biir biir <laughs> ah sëñ Tuubaa maanaam <laughs> maanaam saison deux waa nar a garaaw <laughs> eh, sëñ Ousseynou eh, ndeysaan waa sama numéro ndeysaan 77 la 335 14 89 ba 77 335 14 89 mais fi ne mënumaa jël appel maa ngi jéggalu bu baax euh, wala ngay def 75 522 28 28 75 522 28 28 maa ngi koy jéggalu bu baax a baax euh, Baye Ndiasse Ndiaye sunu waajur la nee na mi ngi lay ziare sëñ Thialiou di topp jataay bi nee na mi ngi nuyu murid yi ci jataay bi yëpp nena mi ngi len di mi ngi len di mi ngi len di ziar bu ko jaar ci Thiès ba jàmbur ba ndiasse ma ngi lay ziar baxa baxa bax soxna Adja Touré Coro ñom nyom, ñoom ñep ma ngi len di ziaré Amadou gis na taxaway bi ma ngi len nuyu bax Adja gu len mu tok di seetaan ab émission ba heure bi seigne Ousseynou bala nga waxi kaddu dama bëgg yëkkati may abiyat xam nga yeen ñaan ñi dama bëgg seigne khadim Tall seigne Moustapha Fall Mourid Sadikh seigne Ibrahima ndjay ñu produire len cassette bo xamni degen koy bok ki di wax ci cheikh samba Jaara wala mu jël boromam ngay wax ci karam ak borom tuba gi léegi dama bëgg nu produire ko xawma nak ban mourid momay daanul ndax générique bi di daw ngeen diko deg mom mi seigne Ousseynou moko jang mom mi moko jang amna ñoom sax sonnerie lañ ko def te xamuñu ko waaw waaw nee na ma na la jox kale rek nga indi kale léegi dama bëgg nu produire ñu ko ngir sëñ Tuubaa ñoom ñaar ñi xam nga xam nga di dawal auto ba yàgg nga daanu yoy da neex sax dawal ba yàgg nga droité joy ba contane talat sa auto dem yoy sax dafa neex te yoyu ci seen jangim lañ koy yegge dama bëgg ngir seigne Touba ci émission bi suñ borom yëkëti leen ba adni sepp di leen dégg te loolu mourid bu bëgg bu ko waxe seigne Touba man nako def bi ci topit moy ñi seetaan te suñ borom may leen yitté nu fexé ba fa rëdd leen loolu am mu wër adina ci seigne Touba dafa jaral def hymne national barki seigne Touba may ñu loolu saison 2 tambali nga saison 2 nako ñepp ñaanal mako seigne sëñ Saliou Samb saison yaa ngi ñëw waaw seigne Mamoun djum saison 2 koku faaw nga def ci vidéo sax waaw saison 2 faaw moom seigne Mansour nañ ko def 24 heures chrono <laughs> non am waaw fenn fenn am dama yag indi problème rek su indi mo problème rek la dëkk waaw 24 heures chrono lañ koy def mouride ya ngi tang rek waaw ci 24 heures chrono non la non la waaw numéro baa ngi noonu tuwaar kàlla ku woote soo fi suñ tuwaar émission bi jeexal nañ li waaye da may waxal ay beuy ba paré doon ma waxal ay kaddu mais li mom ma leen koy waxal yeen ci sama tour te lu ma yéene la ci sëñ tubaa mooy dama bëgg ni ñuy bëgg ci sëñ Touba fexe ba nu produire leen ci loolu ba pare jàppale leen moom dafay ñëw ne li ko jàngaloo tukkeem la bàyyi bi muy ñëw visaam jeexul passeport am jeexul biyam jeexul xaside yee tax mu jël lépp takk ba mu jàng teg nee ba noppi mu wax ne su ma sañoon waajuroo fekke ko ndax liggéey ba lum ñaanoon la ba daanu jël waaw te dafa am fu ko liggéey bi yóbbu ndax danoo wéet waxtaan lu xóot sëñ yànd mii nax nu ka kon ma bëgg nu boole leen defal sañ Tuubaa ci seen jëmm ndax nag Sorano yëpp Grand Théâtre yëpp nun rek noo koy feesal te suñu addiyee rek a cay dem nan dimbi nan dimbalante ñun suñu biir comme ni ñuy bokkul ñi ñu bokkulul diine ni ñuy def donte am na sax nag ndax ku ne li nga am xam nga ki joxe nelaw moom ay nelaw la am moom joxe nelaw yi addiyee nee sax maa ko jaayante waaye daf maa jooyloo léegi barke sëñ Tuubaa parce que damaa gisaat nun buñ joxewul suñu nelaw amunu duñ gor wallahi duñ gor señ mod Lo danga bi muy jógee fi señ di fekk señ Touba gamong amul moyen yi waaye ngorom moko mayul won mu tok di xaar señ Touba mu del wat te fekkiwu ko gamong amul ay moyen señ ma sisse ndong señ Mahmoud Mbegere ñom ñepp mag ñi liñ daj seen gëm borom Touba duñ lako wax door nañ leen xupp nañ leen ñen ñi rend nañ leen ñen ñi dañoo taal seeni kër ñen ñi dañ leen genn ci famille bi ne leen bokkatu leen buñ dé sa du ngeen donn waaye ba señ bamba défaré bam jék ba dil ci wat ah bobu nak <laughs> da ngay gis nit bokku nit ndey ak bay ké dem ci señ bi ké demul ci señ bi ké dem ci señ bi rek lañuy dégg ak njabo tamit mom mooy dimbali ñé waaw sëñ tubaab mooy mos xam señ bay jaxata dane ku toppewul kenn du la top ku naxewul kenn du la nax lu nu jiwul du mëna sax ku wul sa lépp neen ku topul daam sa lépp neen señ Ousseynou bismillah señ señ amidou xamna damay barkeelu kon ci eh, xarnu bi dara ndax euh, li nga ma ñaan mi ngi fii waaye waxtu wi dem na lu bari xam naa dootu mën a àgg sëñ Yanda it euh, mi ngi ma taxaw boroomam moom doonte ñaari bayit su ko defee kon ñu boole ko lu ne ñu wax ci ñaari bayit daal joxe kàddu yi sëñ Saliou mën a kii waaw diggante mul kook malakoot basar ca pey jabaroot kenn mas la boole seeni mboot lut bamba ba job xarnu bi diggante mulkook malakoot basar ci peeyi jabaroot kenn mas la boole seeni mboot lut ba job ba job xarnu bi haras la daa giseek boroom kursi yu lay xamey soloom diiwaan la daa faley moroom di follisee ci xarnu bi moom lañu may nooru jalaal moom lañu may noorul jamaal mu boole kook sirul kamaal leeram ya dar na xarnu bi fu nuy raaseeti waajuy mel ne mi mbër woyof na ca kaw te na ca biir boroomam fu ñuy raaseeti jant bu dem ba njolloor te leeral gépp wet di kenel boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ne fu mu teewu ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mat mu di ma may di fay ay di dàqi mooy ci leeri booti ragalam di ma jisal lu ma jisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géej ji xam-xamam di ma amal lu ma amul di ma wutal di ma wattul di ma digal di ma tamal nangoo yamoo ki ndigalam di ma yërëm di ma tëfal di ma jariñ di ma teral def ma ma mel ne ku ñu fal ku tabipee yi ngërëmam di ma dugal fu may musal di ma fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak i fetal mu boole digali walam di ma setal ci waxi bañ bokkuma ne jëfi bañ mu ne ko teef mu ne suluñ daanu te tuppul fetalam di ma xëccal di ma jañal di ma tayal di ma tayil di ma ubbil bunti xéewal faat ma ci biir roqi ñoñam borom tuuba ni ma yëkke neewu ma tuy wan ma boppam ma di ko way te di ko kañ mu di ma may ni ma xoos ci biir di ma fegul pexe mu ñaaw di ma teral ren ak i di ma teral sama gannaaw di ma teral sama kanam di suru siñ bu may fajal di garabbal di ma ragal di ma felal lu may sonal mu teggi teggi nu njëm di ma toggal di ma yàkkal di ma ràccal di ma sefal di ma tibbal di ma leel di bi ñu barkeelu gwanam di ma bégal di ma seral di ma xàccal di ma dalal borom tuuba di ma fayul di ma moyul kenn du ma yab fi kanamam bu ma yeewee kenn du ma yab fu ma fi jëm du ma ayib sama gannaaw sama ayib xanaa na meel guñ ma nam dafa wax ni sëñ am tibub cofeelam dafa fees fi man di fokki ak yees ci sama xol ba dootu rees ki ma gisee la ma taxam loolu la wax ca way ba waaye sëñ Tuubaa moo ko njëkk wax mag ñi danoo xam cofeel gu mu amoon ci Sàmba Jaara ak moom daa safoo wax ji ndax sëriñ bi wan na ma boppam la wax na mu doy wan na ma boppam na mu doy kenn mësuma dégg ko bind ko dul Cheikh sëriñ bi may na ma boppam yooyu lay wax moom samay waxi nay na mu wax lisaanu xaala mi waxam lay sànni xol bi ba ma xam bu ma nee gees jëm ci moom mbaa moom mu ne gees sunu diggante ne DPS fu ko sëñ rek moo ngi teew li tax bi ko wax mag ñi dañ koy bi mu fi la fi jóge waxul lu sëñ déggut bi ñëwee xam cofeel gi tax ñu ko koy liyaar yéem nañu yàlla ci Samba mu waaw ko doon jël si di fii lañu jaar ba am ndigal ko jëli tegal de dama koo ba ma rokkos ko mu tépp moo waral bayit boobu tibub cofeelam dafa fees fi man di fokki ak a yees ci sama xol ba dootu rees te tib bu reesul rek rey borom kon sëñ am bu fekkee ne am naa ndigalal dugal samay kàddu muy ab tàggoo sëñ Pape Faye nee na ma ziaral ma sëñ Saliou daanu nu jële tey yàlla na ko yàlla sàmm dëgëral ko yàmbaar la lool sëñ Pape Faye zikrullah bismillah sëñ bi sëñ Amidoune miinu sax lii waaye. ndeysaan ndeysaan. dafa am loo xam ne sëñ Saliou wax na ko léegi amaa bi nihmati rabbika fa haddis mhm. te jëmm ji fi indi kayitu kër gii dey mhm. bëgguñu torox. Mhm. bi ñuy bàyyi suñu passeport be suñu séjour bi des ñetti at. ñu laxas bàyyi réew ma ne leen bu ñu duggatee avion danoo jàngi xasida yi sëñ Tuubaa yi. booba bàyyi wuñ fi birig nett lii ko wax mag ñi wax ak li mu wax rasulillahi donc moo tax tey teraanga yi fu ne lay bàyyi ko moom mii fi indi kayitu kër gi mooy ñeenteelu nit bu ma ko defal kon danaa ko sant gërëm ko mooy sëriñ Jili Kend mhm, mhm. murid saadix boo xam ne si ne mbooleem fi ñuy màggale sëriñ bi am na fa kër di ko fa wooteel mhm. te bu mu ci taxawal ne ma suñu suñu kaay bi su xasida bii sëñ Muntaxa woote woon murid yi li leen sëriñ Tuubaa jaral biyam la dagg sëñ Muntaxa bi mu wootee xas bi su xasida bi aéroport la ñu ko mais sëñ Mountakha du woote may génn réew mi Angleterre la waroon dem maa ngi koy nuyu di ko siyaare. Mhm. jàmbaari sëñ Tuubaa la sëñ Cheikhouna kenn ak mboolem njabootam gi. Mhm. soxna maa ne Guèye. Mhm. bi mu déggee loolu sama mag la mi ngi yóbbante yow sëñ Saliou nee na ma neel sëñ Saliou sama addiya dina ñëw ci moom. ndax man sëñ Fallou rek laa bëgg te xam naa ni mel dégg naa ni mel ci moom. fii saa si daf maa bind yónnee vocal euh, am message. ne ma un million ngi nii boo xam ne si ne kenkaayir boo jàpp ne mom nga war jele bagage ngir tabax pàkk boobu un million bàyyi ko fa lolu teranga la fokk na diko wax ngir sëñ Tuubaa wallahi la di sëñ Tuubaa fayal bopam wallahi sëñ Abdourahim mom la ma sëñ Saliw mu bax mais didee yi Abdourahim bakke mu sëñ ametum sëñ Baara mm-hmm. daf ne sëñ daf ne sëñ Saliw ndigal la àggal ci mom nga nako ko noo ngi topp jotaay bi noo ngi bég sëñ am sa jotaay bi ñepp ko jopp ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare aaj noonu lay jàppe ci liggéey bi sëñ Tuubaa bii ku baax a baax noonu lay jàppe ci liggéey bi sëñ Tuubaa bii mm-hmm. euh, sëriñ Abdou Karim Diop mm-hmm. bu Louga mm-hmm. moom it ku mën a sonn ci suñu jëmm la ak liggéey bi sëñ cubaa bi ñoo ngi koy sant te di ko ñaanal sëñ Tuubaa yokk ko soxna Seyna bu Caam nga xam ne monsieur Abdou Hakim suñu xamee ci yow la jaare ndeysaan maa ngi fàttaliku eh, daaw jéeg defe naa nga ma woo dama soxna Seyna bu damay dugg ci kër gi mu ne ma doo ma jox loxo te joxoo ma kii jàng bi. noonu la def de noonu la def de. nga xam ne bi fi njëkkee ñëw eh, ci sa plateau bii bi mu matee borom këram bu baax boobee seen bay Ndiaye ministre ministre d'État. dana la bu sëriñ Ousseynou génn dëkk bi te indiloo ma ko. dëgg la de defe naa 3 heures du matin ñu ngi xewloondoo ci saalam. wallaay mu defal wallaay wallaay war nañ koy wax moom moom dala moom dala moom kéemaan la. yàlla na leen sëriñ bi fay soxna maam Mbay euh, soxna Mbay Njaay waaw soxna maam Mbay Mbay Caam waaw euh, desneer yi mhm. day xotti rek di indi ndeysaan barke Seexul Xadiim ndeysaan noo koy sant te di ko gërëm mhm. soppe yi bàyyiwul kenn euh, soxna Daba Saliw ca Italie mhm. gudd na waaye mi ngi topp liggéey bi groupe soppe yooyu moo ko fa taxawal ñuy cotiser seenu ñàq par weer ngir di jàpp ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ak ci suñu jëm Mhm. barke sëñ Tuubaa tam mosunoo tëggante ay bët. ndeysaan seetal loolu rek. dañuy topp numéro yi ci internet bi. ndeysaan ndeysaan bu ma fi bi liggéey bu rëy boobu moo ngi koy liggéey ci étel bokk maa ngi leen di siyaare bu baax a baax. Cheikh Massamba Kébé ca Amérique. Mhm. maa ngi koy siyaare bu baax ku mën a sonn ci suñu jëm mook Serigne Maam Mor Rakam. ndeysaan noonu maa ngi leen di siyaare bu baax a baax. maa ngi koy beral am nuyu akub siyaar poroxaan gi am. dafa wax sëñ Mamour Lo ne ko sëñ Ousseynou Gueye dama bëgg nga indil ma ko bi ma demee yëkkati ay bayit yu gàtt dama ko koy jéggul sax di dog ngant ci leetu xadar gi daf ko ne damaa doyalu ci poroxaan gi indilaat ma ko ci leetu xadar gi mu jàngal ma jàng mu yaatu waaye seen jiiri mbàkke Madina ñoom siti seen Tuubaa yooyu ca Louga ma yàgg leen taxawul leetu xadar gi moo waral woon sunu ngànt mhm. ak fulkul machon bi ñu koy jàngal ci mboolem koor gi yépp rek mhm. waaye sëñ soxna Baali moom noo ko dikk ab siyaar boo xam ne noo jóge lu ko taal sunu biir mu di jëndal dem siyaar ji ko sëriñ lu Guèye bu Italie moom it noonu lay sonn ci noonu yàlla na ko sëriñ bi fay euh, soxna Adja Salihu Tusi moom it jasneer yi lu bari lay dagg nu jox sëriñ maam góor mi génn fii moo nekk ñoo ngi koy siyaare bu baax soxna Soda jóg maam Soda sunu maam ja ñoo ngi koy siyaare ak mboolem njabootam gi soxna Xadi jóg euh, soxna May Guèye lu bari ci lu ñuy sol moom it noonu la koy dagg di indi sëriñ Saliou Guèye mi nga xam na li may wax Cheikh Baara Guèye kuy jàpp ci liggéey bi la maam mbay euh, soxna ami sekk sunu soxna ndeysaan ak mboolem njaboot ga sëriñ ji sekk sama rakk ju baax jama àndal ndeysaan Guèye ndeysaan ak sëñ Modou Guèye mais nga xam ne si ne mooy euh, njiital kuréelu soppi fépp dégg ci biir réew mi ndeysaan euh, ak ca sama mbokkum taalibe mais ca Touba. ndeysaan nga xam ne si tur yi. ndeysaan ñëwandoo ci sa xel mi. dëgg la dëgg la def soo soñoon kenn ku ne nga tudd ko waaye ay murit lan ñoom. dëgg la xam nañ ne. kun ci jaarul ci sew tur rek doomu aadama moom la yàlla binde noonu lii xaj ci waxtu wi lépp du mën a ñëw. dëgg la euh, waaye ñoo ngi leen di sant képp koo xam ne yaa ngi def teraanga ci suñu jëmm te sëñ Tuubaa tax. tubaarkàlla maa ngi lay beral nuyoo ak siyaar. jërëjëf te ñaam ñoo ngi lay siyaare. jërëjëf sëñ Ousseynou jërëjëf Saliou jërëjëf jërëjëf suñu kilifa yu tedd yi ñu bokkaloon jotaay bi. ndeysaan nga xam ne jotaay bi yàgg na. ndeysaan waaye ñu ngi tuur seen i xéwal. wallaay ñi ngi ñi bég tey bége ah sëñ Daam sëñ Mansour mi ci kër gi ñoo ngi leen di saare yaaram yande njàngi mi neex na neexit woo xam ne si ne gi ñàkk sëñ Tuubaa foo ko datt wees na ko mhm, waaw yàlla na sëñ Tuubaa yëkkati liggéey bi ba mu jug ca kaw a kaw te dootul wàcc ndeysaan rafet nañ ci njort ndax suñu xol sedd na ci yow. Mhm. suñ ko ñaanee rafet nañ njort ci ne sëñ Tuubaa moom ñu cee dimbali kon jërëjëf ñoo ngi jërëjëf jërëjëf sëñ Ousseynou bala moo daa jeexal danañ joxe ni am dañ ko joxaa sëñ Yande ñu bàyyi la kàddu yi ngay gërëm ak bokk yi ñu bare rek may yónnee ay yónnee ci yow nag ku mel ni sëñ Modou Guissé eh, mu sëñ Abdourahmane Fall ci laa nee na ma ziyaaral ma euh, euh, sëñ Ousseynou bu baax moom it ku baax la ndeysaan euh, sëñ soxna soxna maam maam Bassine maam Bassine nekk ca 2STV. Taalibe Baye Karim la maam Bassine maam Bassine nee na maam Bassine la tu Taalibe Baye Karim la ma nga ca 2STV nee na ma nuyul ma Serigne Saliou Samb te te ziyaaral ma ko baax a baax ne ko maa ngi bég bu baax ci moom. Euh, groupe sopp yi ne foofu ci Touba sëñ Daam Ngom ñoom euh, teg ko ci loxoom ak sëñ Mamoor Dende yi ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare euh, tubaarkàlla mu joxal ma ko waa groupe bi yëpp yal na yàlla gën leen taxaw kon sañ sëñ Yande ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw sëñ sëñ Amidou xanaa di yëpp. lii ak bëgg dimbali la ci ci ci ñun. gis nañu bu baax a baax taxawaay bi ak yaatal gi liggéey bi jëme ko ci ñun te xëy na dañoo bëgg a dimbali rek ndax. njàng mi moom comme defee ko fii ak defee ko Touba ci suñu kër ci suñu néeg moom la ñu yemale. Mm-hmm. Euh, comme comme comme li li li li doon leeral sànq. Mm-hmm. comme day nekk loo xam ni. Mm-hmm. da ngay dem ba toll ci foo xam ni da nga koy def rek ngir sëriñ bi comme li mu wax dafa bàyyi passeport am wala ak visa mi yëpp ñëw di liggéeyal sëriñ bi loolu sëriñ bi moo moo moo moo demee noonu sëriñ bi bu la bëggee liggéeyloo. ak foo mën a nekk da nga ñëw liggéeyal ko. Mhm. noonu noonu la demee ci ci ci ci ñun ak ci mboolem jànkatu xel daal mboolem ñi ñiy liggéeyal Serigne Touba ci ci ci domaine bi. ñu ngi sant bu baax a baax a baax nag mboolem ñiy jàpp ci liggéey bi ndax comme ni ni ni ko sëñ Ousseynou doon waxee sànq rek dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg sëriñ bi ba luy taq ci moom wala lu laal ci moom rek dañ koy bëggaale ba dañuy nangoo sonn ci ñàkk seen alal. di ñàkk seeni nelaw di di di def lu ne ngir ngir ngir rek bégal la ngir jàpp ni bëgg gi nga bëgg sëriñ bi mhm. moom la ñuy dabu ci yow mhm. te ñoom gënuñu leen bëgg sëriñ bi ñun ñëpp ay murid lañ comme ni ko suñu am di waxee ñun ñëpp ay mhm. ñu ngi safoo bu baax a baax mboolem ñuy safoo liggéey bi di nuyu bu baax a baax sunu sëriñ ki nga xam ne moo ñu jàngal alxuraan ci daaraam la ñu nekk daanaka bi ñu juddoo ba tey moom rek la ñu xam muy suñ Mbàkke Jaxate moom ab murid la moom nuyu bu baax a baax a baax di ko beral nuyum ak mboolem donge yëpp ki noonu sëriñ Ibrahima Lo kaatibul xaddim xëy na yaakaar naa miin ngeen ko bëri na téere yu bëree bëri yoo xam ni yu ngeen gis mu ci kaatibul xaddim rek moom la. day nangoo sonn lool lool ci liggéey bi ci ci ci wax lu lu koy doxal ak lu ne rek da ciy nangoo sonn bu baax a baax a baax koy nuyu bu baax di ko jox wàccu waayam ak mbooleem sama doom bi bàyyi nga xam ni man ak ñoom ñoo bokk bàyyi fan yi suñu am dafa am lu ma doon taxawu kër ga loo xam ni comme di taxaw am na liggéey bu ma fay def waaye man bu ma xëyee damay tëddi wala hmm. midi laay laay génn. te yàlla xam na ko te ñoom ñoo ma mag ay at yu bari lañ ma magee. dama leen di fekk ñu nekk ci liggéey bi di di ko liggéey. barki sewal xat ñoom ñooy sama mag. waaye ñoom ñoom ñoom ñoom dañ maa def mag ñoom. wallaay duñ nangu ma def dara dara dara dara maa ngi leen di sant bu baax awma seen fay. ñoom lépp ñoom la dañuy dañuy dañuy nangoo sonn ci ba yàlla xam na ko du ma xam sax du ma lu ma leen wax maa ngi leen di sant bu baax a baax sama doomu baay yëpp Moussa bu ma ko tuddee rek yóbbaale na ñëpp ak sama baay baay Amar Guèye maa ngi koy saar bu baax ca gawaj ngéyéen kooku tamit day day nangoo sonn ci liggéey bi lool moom moom sunu rakku papa waaye moom mooy sunu baay day nangoo sonn ci liggéey bi ak ñi ñuy faral di àndal ci liggéey bi yëpp sunu rakk Baay Fall da ciy sonn bu baax ak ñi ma àndal sëñ sëñ sëñ Alioune Lo ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal tawféexu sëriñ bi barki Seexul ngi leen di siyaar bu baax di siyaar Sëriñ Saliou bu baax moom comme ni ma la ko doon waxee rek suñu soppee la lu yàgg yàgg Sëriñ Saliou sama mag dalaa sopp lool da da lay nuyu bu baax sànq rek mi ngi yónnee message di di ma ko fàttali ma siyaareel ma sama soppe boobu bu baax baax mi ngi lay siyaar bu baax a baax nee na di siyaar bu baax mbokki taalibe yëpp ñi safoo liggéey bi yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ak ñi tuddi ni ay soppe yànda lañ di comme ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko sëñ Ousseynou waxee sànq day am ñoo xam ni daanaka doo leen magee dara doo leen gënoo leen dara ñoo la gën a jàng ñoo la dàq jàng ñoo la def lépp waaye xëy na suñu borom mooy mooy dogal ñu sopp la te yàlla rek tax ak sëriñ bi di créer ay groupe da nga fay jàng sax dañuy ñëw di ko enregistré bu ñu paree di ko di ko di ko tasaare bëgg rek liggéey bi yaatu ñu ngi leen di sant bu baax a a a a baax a di sant koo xam ne nag moom kenn la don naa la ko wax mo fi mujj muy jëwriñ mun taxature mom ba dara dul dara man moma ma njëkk a jëndal téléphone booba wàccagu sax alxuraan mhm. moo ma njëkk jox dal moma ma jox yire luma am rek danaka danaka danaka lu ci ëpp mom la koy sante ndax man dama daan wër di nekk ci mbedd yi di bëree ak xeex ak taxawal rek nga xamni ni def ni xamoon na ni man mën na jang ndax dama daan jang muy neex waye dama ko daan foye rek comme gëmon na jang mi nak mom waye dama ko daan daanuma ko comme daanuma sol sama yere mu xamni xamni xam njang mi mom dama dama ko wara ki dama dan def buñ démé répété ba paré rek buñ génné bolok bi ma bàyyi ko ci daara ji nekkat nekk di fi dong waye mom moma ci génné danaan bu ma gisaan gis may may béré sax damay méré ñetti fan té mom xamna ni mom buma méré man duma nekk motax man koy nuyu bu baax a diko diko diko diko sant bu baax a ci taxaway bu rafet bi ñu ngi nuyu bu baax mbokk taal yépp sang si tok di ñu teewlu ba ba tey te ñu nekk di di kii rek suñu am suñu Ahmadou Bass mu ngi lay yëgal bisam talaata bis bu muy def foofu ca daara ja waaw nee na dañu koy taxawee bis bi yëpp ba 22h nee na mu ngi koy mu ngi la koy yëgal bu baax suñu Saliou ak ak boole murid yëpp. da koy taxawee foofu ñu moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax. baax ñu ngi koy ñaanal bu baax. ku jàpp ci liggéey bi la. waaw ñu ngi leen bu baax a baax di di di di siyaar bu baax suñu Ousseynou yàlla xam na ko dañ koo sopp loolu tey gisante xamantewuñ xamante wuñ sama youtube damaa wàcce ay ay ay ay yu baree baree bëri yàlla xam na ko di ko teewlu ba ci boroomam bii mu mujjee jàng sànq rek dama ko wàcc daanaka moom bokk na ci li tax man ma jàng wolofalu boroomam dama ko wàccee di ko di ko déglu ton bi mu ko jàng daa daa daa yéeme dama koy déglu lu baree baree bare yàlla xam na ko dama daanaka mokkal naa boroomam sax te awma téere bi te ci ay ay kiyam rek laa ko doon dégloo ñu ngi koy safoo bu baax ñu ngi safoo njàng bu baax di safoo jëm ji jërëjëf ñu ngi ñaan suñu borom taxaw la bu baax barke Seex xadim xam nga li neex ci lim wax mooy moom sëñ mhm. Mhm. dama dama fàttu ci fa ma waaje mhm. mooy kër Cheikh Samba jaar mbay fii ci Tëngéej dañ mën a jaar sil fii ñu waajal la nga doog a dem yow sunu mbindum maam mi ngay nettali sa lépp noonu la war sëñ Bamba sëñ Matahir Mbaye ñoom. waaw sëñ sëñ mboolem magam yaa ngi rakkam ya maa ngi leen di siyaare sëñ Xaadim Mbayum Cheikh Sadio waaw maa ngi leen di beral nuyu ak siyaar dama cee fattoon te wóoruma cee fatt ndax ci sama poos ba pare génne addiye ju bari ne ma yóbbaaleel ko péage bi lii def ci sa essence oto kon maa ngi leen di siyaar bu baax te di leen ñaanal yàlla na sama borom yokku leen jërëjëf xam nga fii sëñ eh, dama ko dama damay waxtaan ak sëñ Jili Lam téléphone ba ñëw ba ci rond point liberté bi ma teg son di ko déglu muy karaamay borom tubaay li ma jooyloo mooy maanaam sëñ bi ku koy bañ foo koy teg man mënutuma tee direction bi ma droite ci kaw territoire bi aj vitres yi di jooy taaluma sax kilim bi maa ngi ñaq te ba maa ngi leen wax téléphone ji li moom it coupé téléphone ba ñuy jooy ma ne kii daal faaw ma invité ko ma xëy suba woo sëñ Ahmadou Bass ne ko damaa bëgg a invité sëñ Diagne ma woo ko mu ne ma man chaque jour yow laay waxtaane ko dal ci moom ñoom ñaar tey lañ mas a gisee man booba moom ni ma koy dundee moom noonu lay dundee sëñ bi te loolu connexion la euh, sëñ Ahmadou Bass dama ko wax fii ni ko bul wayati ku dul borom Tuubaa teguñ ci ay fan sëñ Muntaxa ci boppam moo waxal boppam lii mu wax nañ ko yóbbu ci yëglekaay yëpp ñu yaatal ko waaw ndax li muy wax ku ku kum kum léegi la ma sëñ Moussa Mbacke di message naan ma ku taalif li ku ko déglu muy dugg sa xol waaw te nag fi ne texte yi nii woy man fi ne ma doon rappeur sax sëñ Tuubaa lay di rappeur su ma doon rab sëñ Saaliw ah barke sëñ Tuubaa bu ma doon rab di si wàccee jëngali sëñ Tuubaa lay way samay teg si sëñ bi dong laa ciy def yàlla baax na fii bu feneen fu ma féetewoon noonu laa koy dundee de musique science su ma ko noonu tey ngeen am problème texte bind sëñ bi laa jox <laughs> maa la wax loolu sëñ Saaliw murid yëpp bëgg nañ ci yow ah, di la ñaanal wér ak jàmm ak tawféex li ma jot ci message bari na lool waaye ñëpp mbégte rek la ñuy feeñal damaa ñëw ànd ak moom ñu ñew ci kanamu sëñ Abdou Karim ñu tok ci moquette bi sëñ Abdou Karim ne ñepp wacc moquette bi bam dess des man ak saliw ñepp wacc te mooy sëriñam ñepp ay jarbaatam ak fa ay ñepp ñepp wacc rek ba ñepp wacc mu dess mu daal di maslaat ñun ba noppi daal fe ci ginaaw daam lu fa laq lu defar lo xam dama leen caa yene waaw yooyu da ñu fi defar lo xam ne ba bëggoon bala ngeen dem loolu da nga ñu doon doyee manam terale nu no pare jóg di dem ñu ne ko yeewi nu mu ne déedéet da ngeen di ñibbi ñu ne waaw mu ne baal ma taal jiitu ngeen topp sama ginnaaw ñu topp ci ginnaaw ba ci buntu kër gi pour man sëñ bi fàtte nanu mu daal di droité wàcc daal di taxaw sa anonlu ñu daal di yegg seen taxaw taxaw ci buntu kër gi ñaanal mu yëkkati addee yu bari daal ne ma di ko gàntal mu ne lu ma leen jox jël leen sëñ Tuubaa tax moo tax euh, ma toog mu seede sa jëf ak sa taxawaay ci moom loolu moo waral nuy am mbégte waxtu wu nekk ci yow kon nag sëñ Tuubaa nu boole yow man du ma supporter kenn ku dul wax sëñ Tuubaa man sama supporter yëpp sëñ Tuubaa rek ba ma sañoon télévision yëpp boo ci jàpp sëñ bi rek ngay waxtaani moo tax xatul daal na yaatu fu ne fu ñu jàpp rek nañ gis nuy waxtaani sëñ bi rek nag waaw ñu dajee rek bu Sénégal buñ nee ba yegg foofu rek réew mi jàkk nag waaw kon nag noo ngi lay bégg bu baax di la sant bu baax di la ñaanal yàlla gën laa defal tawfiix bàyyi la nga tàggatoo maa ngi lay jox nag yóbbanteeb Alaaji Mbàkke yi fay ci ngërëm lu mu la gërëm ak Serigne Cheikh Balla Samb tey dala doon supporté moom Cheikh Balla moom tey da doon supporté xam naa ne tey daa solidarité euh, di la gërëm bu baax bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yi waaw jërëjëf bala maa fàtt maa ngi koy maa ngi koy ziar bu baax alaaji mbakki yu mhm. sama baay boobu di sama jëwriñ di sama xarit ni ma ko waxee woon ci tàmbali bi mhm. loolu la yàlla def teraanga ju nekk defal na ma doyoon na ci moom bi ma yóbboo màkk rek mu pare woon si man ndax di wax ci sëñ tubaa xasidaam yi ba ñu yóbbu la ca sëñ tubaa doon wax mhm. tiim raw da tomb doyoon na sëkk alaaji mbàkk yu bi ma yóbboo màkk la ma desalatul woon dara te yóbbuma ci màkk yi tey ci màkk yu njëkk ya léeg-léeg ku naan damaa demoon fekk moom fan yii la dem rek waaw kon moom yàlla na yàlla yokk na ko fi yàlla bàyyi dama koy wax ni yow boo xaritoog ñun du dara lu dul sëñ at tolloowuñ niveau tolloowuñ dara waaw waaye bu wëlbati koo xaritoog ñun di jël alalam dina jox sëñ Tuubaa kon moom yàlla yàlla dëgëral ko ci barke Seexul Xadiim waaye nag sëñ Touba turam mooy Ahmadul Mbakki yu te moom Ahmadul Mbakki yu la tudd waaw am na koo xam ne bu baaxee pourquoi pas rek lañ war a laaj sëñ Touba lañ la tuddee nga baax mais pourquoi pas ndax sëñ Touba moo ñu wax ne Abu Jahlin genn wàllu turam moo ko moo ko alak bu fekkee Abu Jahlin genn wàllu turam moo ko alak ku tuddee borom Touba nag la xarwa ci baax wala déet baax bu doon jëmm la bu tumuraankee ci sëñ Touba lay njibi amul feneen fu muy dëkk fu dul Touba baax. bu doon jëmm bu naree tumaranke si àdduna bi Touba lay ji bi fa la dëkk Serigne Touba moo baax Cheikh Amadou Bamba baax kon yàlla na yàlla yokkoo maa ngi nuyu kilifa yu baax yi nga xam ni dañuy topp liggéey bi di ko rafetlu te kenn ku ne ci ñoom jàpp ni yow lañu koy defal sëriñ Cheikh Bara maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. bu yàggul daf ma woolu dañoo daje tubaa mu ni ma dama laa soxla fekk ma guy mbind ci jumaa ji ma fekk ko fa. ndeke daa ñawlu yére yu rafet bi ma yegsee mu daa di yónnee ñu jël yére yi mu ne ma ndax xam nga ni lii bu ma la gisul woon ci Touba fi bu ñu dajewul woon allo Dakar lay woo jox la ko am allo Dakar yi jékki-jékki ñëw ba sa kër xoole yëg kooku ci liggéey bi sëñ Touba bi te loolu mu def ñun la war ci ñoom ñii sant Mbàkke damay wax ni ñun ñu ak ñoom li ñu war a séq mooy yónni woo ñu ñëw ñu yónni ñu dem ñun ñu wut suñu alal jox leen ko bu nu wëlbati ko di ko def rek borom Tuubaa tax kon suñ Cheikh Bara Laat maa ngi koy nuyu bu baax a baax mm. nuyu soxna Bali mi ngi lay tudd léegi mm. waaw lu nuyu soxna Nabou Mbacke Abdou Fatah Gaynde Fatma daa am jëmm yoo xam ne mënuñoo ñàkk ndax ni nga gaa ñu waxee waaye mënuñoo tudd ñëpp nag ndax ñii séq ñoom ñun teraange ñëpp bu leen tuddee fajar fii la ñuy fekk maa ngi nuyu soxna Mominatu Kebe soxna moom Momi jëfkat la ci suñu jëm hmm. saa su nekk ci bu ñu gisee ak bu ñu gisul hmm. maa ngi nuyu Serigne Sidi Niang moom sëñ dëkk Awa Balla montre bii ma takk moo ko jox Sidi ci man ci saayir di jëf ci man ci baatin di nuyu Serigne Ahmalaat moom it noonu lay jëfe ci man ci saayir ak baatin sëñ Modou Dieye seen mi nga doon wax léegi hmm. ak sëñ Moustapha Fall waaye di nuyu sëñ Mbàkke Sàmb ni ma la ko waxee ak rakam Amadou Gueye Fifty ku ne xam na sunu diggante man ak Fifty di nuyu mbooleem ñi nga xam ni danoo bëgg sëriñ bi te jàpp ni di nuyu sama bokki bopp yi mm-hmm. ndax ak bokk alal yàlla te bokk ak ku ñuy tudd lu metti la ndax yi sëñ mu safaa doon wax léegi léeg-léeg nga wax ci sa sëriñ lii dëgg te nga gëm ko am ko mu neexul muy wax leneen day stressé sa bokk yi man nag xam nga ni ca tul yu njëkk ya laa man nit mënu wax Saliou Samb nangam ba ma yëg ko ndax suñ mag bi amul luñ ko deful amul luñ ko waxul te moom laay waxtaane suñ mag bi boo ko bëggee waxtaane am sa fit am lu ci manqué tuuti da ngay bàyyi nga dem toog waaw suñ mag bi soo boo takkoo jëm ci moom fit nga war a jiital sëñ ma numbe xabaan dem na ci këri bokkam ñu defaral ko xéewal am ko taxaw ni ko doo ko fi lekke ndax ñëtt nga àndali demal na ngaa xéewluwul ca xéewal ga jamono dox ba seex Ahmadou Bamba gërëm ko ka loola mënatul am dépassu benn fan sëñ Manumbe di joxe dundub kër borom tubaab ak dundub këram ak dundub yeneen kër kooka rang ba fekk ko fa mu ne ñëw ci mbooloom sëñ Manumbe di rang ba yegg bu dee saayir la moo ko moo ko moo ko woon moo ko ëppooni at bi mu waxee soxlaam sëñ Manumbe daa taxawal fukki gëléem ak nangam bu ne mu sëf ko mhm. jox ko dugub bi at ni ko fu at mi se dina la joxat lu toll nii soo demee ba gisa tuuma mba gisa tuma la sama khalifa dina ko defal sa khalifa dal ni ko teuma ko teg na waaw kon ñun tënan bu yag ñun waaw li ñu dal teewu nu ko teg mooy li sëñ am wax ci señ bu mag bi la ñuy ne amuñ benen bët ñun ci Amadou Bamba rek lañuy xol li ñuy defit motax ku yaakar ni ya tax li nga doon jox Cheikh Ahmadou Bamba borom xaftaan Yoya. lanu teg sunu bët bii noonu saaliw amul keneen ku koo mën a doon bu nu tàmbalee ci sëñ bi jëlee nañ la ña ngi ci moom barke Seexul Xaddim parce que boo ñu nappee ba ñu ragal laat ci moom lañ lay fekk nga koy yelwaan dañuy dem taxawi ci moom xaar la fa ñun ragalun ku yàlla sàkk Cheikh Ahmadou Bamba rek lanu ragal maa ko tuddu xaadim ko tudd xaadim moom dinañ ko xaw ragal kun ko tudde waaw waaye sëñ Tuubaa rek lan ragal Saliou suñ tubaa rek la ragal duma tidde buma kenn soñu dima wax ay bul ak yoyu non non non fa fumi ne sax xawmako waaw mag bi rek waaw ku gar ni nak yow la doxale sama digg ak mom ci ay jappale ma ci li wala jappale ma ci lee teyel mang ci mom te mom mo ngi ñew ha ah. mo ngi ñew de waaw mo ngi ñew ñewin wow sax yaakaar naa ni bu yàble woon kooka du gaawee noona alaykum wa rahmatullah ngeen baal ma xaq nag ngeen baal ma xaq wax ji jubut waaye baal leen ma xaq Euh, ci ñëw gi ak euh, yitte ji incha allahu rabbi saison de baa ngi ñëw ndax. Euh, ja waaw ak soxna may laat soxna may laat lii lii xew ci man yëpp ci moom la yeewoo. ndeysaan waaw moom la. ndeysaan ba noppi mu taxawunu yal na yàlla bàyyi ko fi yal na yàlla wéral ko mbàkke musuma gis ku rafet jikko ni moom waaw. Makaarim wax laax bi mu woote moo nekk ci yaramam moom lay dund li sëñ Tuubaa wax ni damaa roy rasulullaay ba ca xol ba. سوى اختفائك قفو القلب والبدن نسني ابو كريم نون لبن ديسان نعم. يالنا في يقتل نعم، تان كان بارك سي عمر ما نوي باي شيخ او بال مبكي مو سيغ فول شيخ عمر فاضل <laughs> باي شيخ او بال سونو معلم غوك كوكو موم كوكو موم سونو سيرين لا سي اوتو بركي ديم سي كونفرنس بو ما دون ديف توبا داما كو واخ غاني داما داما سخنام دا فا نيو سونو كوري موم سيغ سالي فال سيغ مرمس فافا دا فا نيو بي نيو ماني لين كي دي اب سيرينم بيس بو ما وون تليفون نيما داغا ديف اورور واخ ما لوكو نيه داماي ndax saa bu ma defee lu baax mu woo ma ni ma jërëjëf li ma mënul comprendre mënuma ko concevoir mooy saa buy baax yow doo wax bis bu ñu juumee as njuum nga bëgg a wax du ma nangu ki lay wax jërëjëf boo defee lu baax bis boo juumee boo la bu la waxee taxawal war ngaa nangoo taxaw bay si xaw balam sëñ Fallu noonu la mel saa boo defee lu baax mu woo la sant la gërëm la jox la addiyaam te yaa ko waroon a jox dëgg la waaw kooka nag bis bu la yeddee mm. dam ko nangu jërëjëf jërëjëf jërëjëf Samb. mbàkk yàlla na baax a baax a baax a baax eh, nuyu soxna Maylaat mu seen kër yi moom it eh, muy sunu sëriñ bi sunu xarit soxna maam jaara seen ñëpp rek eh, moom ñu ngi koy nuyu di nuyu soxna moom mi seen ca Amérique soxna maam jaara seen nee na bég na lool di nuyuwaat waat waa États-Unis gépp soxna aji Diop ca Floride ak yaayam soxna Fama ñëpp ñoo ngi leen di ziare di nuyu waa New York ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu sëñ Pape Dramé ñoom sëñ Fallou Samb di ñaanal baax sëñ Khadim Cissé Adja Soda Thiam ñu ngi leen di ziare Euh, di bég bu baax a baax ci jotaay bi mu nekkoon seen émission kenn du sëriñ bi euh, tey jii nag mu nekkoon spécial ci émission yi ñu dalaloon Serigne Saliou Samb moom sëñ Abdoul Karim def na saison 1 bi mu des saison de bi am na ñoo xam ne nañ saison 10 la fa lay jeexe euh, sëñ Ousseynou Gueye jànkatu xasaay dëkk fële ca Louga di ku bëgg sëñ Tuubaa ñu dalal ko mu feggoo ak Serigne Ndiande Gueye xasida Mouride Sadex nu amoon tey invité surprise Serigne Moustapha Mbacke moom sëñ Fallou Njurul fego ak Serigne salim mbake mom Cheikh Bass Cheikh Abdoul Khadir serigne bassam fum ko tek lol fonk ko muy ko bax momit waye fego ak serigne mohammed jatar sunu xarit sëñ Mbacke Thiam maa ngi lay bége mom sama xarit bi yàgg la serigne Mamoun djum nga xamne mom euh waxoolu li naa si xos naan moom ca la dugg moom Mamoun moom ku bax la mom sama waay la mom waaw euh di nuyu bu baakha bax mbok talibi fi tew yep serigne Sidi maa ngi leen di ziare waye nuyu serigne Omar Kanté mi nga xamne dañu yag mom sama xarit la yàgg lool ñii mu mel la ma sa mel seen waa kër mag gi noonu la mel ba Moussa ñoom ñëpp sëñ bi rek amuñu beneen yitte bu sëñ bi gërëm sëñ daam ñu nekkaloon ci régie bi euh, ci pëseefam ak pas-pasam ndax sëñ daam yaa ko waroo di ko soññ waaye moo lay woo naan la saay ñu def bokk na affaire bi neex suba waaw na kawe loolu murite rek ko koy waral moo sëñ Mansour mii fu nu gesoo rek seen leen suñu wet nu taxaw ànd ak moom jataay bi yàlla na suñu gën léegi rek am na ko may tooñ naan ma xanaa sëñ Mansour jekk baylaat ñëw te xamu ko sax waaye li ma koy tooñ moo waral loolu waaye loolu lépp baylaat yi muy sol rafet nag moo tax eh, yàlla ko yàlla gën a taxaw sàmm ko eh, di waajal bi bisub Cheikh Abdou laxat incha allah màggal gi ni ngi ciy waajal plateau bu mag a mag a mag a mag nag ginnaaw plateau boobu plateau Mamor Diarra màggul sëñ Ibrahima Mbacke ñu ci suñ kanam waaye itam ah, ah, di waaw te fekk fi mu toll jamono moo toll ci. c'est boo ko waxee doo ñu gis saison 2 waaye Cheikh Amadou Bamba ku ne lam la tibbal sa waa kër danoo yaakaar ni ñëpp seet yaa ko fa te nga tuddoon Cheikh Abdoulaye Mare ma jaxal. muy nuyu waa këram tàmbalee ci sëñ Sidi ak mbooleem njaboot ñu leen ziyaara bu baax a baax nga tuddoon feet sëñ Ibrahima moom Seexanaa Ahmadul Xadim. ñi mhm. nga xam ne àllarbay tey jii bu dellu see la nga koy màggalal. ku ne xam diggam ak borom tubaab ak mottali ji jéego yo ca sama neexi jëjjin ji sëñ Touba mhm. signé woon mu dem mott ji ko sëñ Ibrahima maa ngi nuyu sëñ Daamata ak sëñ Fallu mu sëñ Ibrahima ak mbooleem ñu ñu jaboot nga tuddoon sëñ Mbacke Madina mhm. maa ngi ciy nuyu sëñ Cheikh Mbacke Gadiaga mhm. di nuyu sëñ Cheikh Bombali ak mboolem njabootu. Serigne Mbacke Madina. micro bi dindi ko dindoon bu yàgg. xam naa waaye sëñ daam a ngi koy jël eh, daam moom daam moom technique daam moom technicien la moom eh, am na ko des mooy kan ñeent nga waxoon Mbakke xewar maam borom saam maam borom saam daa ma sa wax ni xaw ma dara la am déet waaye maa ngi ci diggante ñaari dara soxna jaar dara la si baa Bamba dara la dinaay wax ni wala wala alquran wa sunnatu wa manafian lil muslimin ma bittu fi dunya laylatan wahida ku nekk nga koy netti waye borom sama tax borom Tuubaa bind ko bi mu wàccee mu beug dem julle ko munta nek ndax résidence surveillée si la delu ci yoni seigne mbacke bu so mu julle ko keroog la wax baat yi mala wax wala wala alquran wa sunnatu wa manafian lil muslimin ma bittu fi dunya laylatan wahida borom sama jaral loolu borom Tuubaa mas nako wax niko sayyiduna Muhammad sa turandoo seigne Mamar mom sonna bu so sa turandoo moo ngi lay béggee nee na yaa ko gënal ci turandoo mas naa waxit bi ñu ko dencee ba noppi Cheikh Amadou Bamba wax na ne bi ñu dencee Seydina Muhammad ca Madinatul Munawwar ak fii ñu taxaw denc borom saam tey denc fi ku gën borom saam sëñ Mbàkke Madina waxtaan wi ngay tàmbaliwaat rek noonu wallaay te boo duggee saison deux bi doo ñëw sëñ Mbàkke Madina ku ne xam ne du sëriñu ko ne sax moom mm-hmm. far ndax ki mu doonoon ci borom Touba ah Cheikh Ibrahima borom tubaa noonu maa ngi nuyu suñ damat ak suñ fallu sama sëriñ boobu ki ko ñeenteel mooy Cheikh Abdoulaat Marema Jaxate saa waaja ñoom ñoo séq weer wi yàlla na yàlla gën ñoo yokk ñu ngi ñaan sëñ Sidi mu yàgg fi lool amiin amiin ak mboolem ku mu jaboote amiin euh, xam naa noo ngi koy àbb ba li yi wax comme saison 2 bi moom ñii bind ñëpp ngir jëmmi sëñ Touba lañ wax Saliou nag daa ñemewul ngir jëmmi sëñ tubaa moo tax ñii bind ñëpp ngir jëmmi sëñ Touba lañ wax kon xam naa am fi mu toll war naa jege 75 pour cent ci doole wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu am na ko xam ne ni saison 10 lañ jëm te ñoom ñëpp mën nañ ceew dara waaw ndax sëñ Abdou Karim sax dina la woo nag Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñu ngi koy ziare baax di ko ñaanal yàlla wér di nuyu sëñ Ablaye Tage mi nga xam ne émission bi émission boppam la yàlla na ko yàlla gën a sàmm waa kenn du sëñ bi gis naa mouvement yi ñu def ci group bi yëpp waaye yàlla na leen sëñ Touba gën a taxaw sàmm leen taxawaay bi ngeen di taxaw ci sëñ ak di ko liggéey te xaddiwu leen ci dawu leen ci daayu leen ci yàlla na leen sëñ Touba sàmm mboolem ku bokk ci kenn sëñ bi rek bëgg naa maa ngi ziyaare baax a baax mbokk yi nekk Côte d'Ivoire waa Yamoussoukro ñoom ñu ngi envoyé message ak waa Guinée Bissau ak waa Praia ak waa Sall ak waa Maroc gis naa léegi euh, message yu ñoom sëñ Bamba maa ngi leen di ziyaare baax daayira marok bi yëpp di nuyu mboolem ko ñu doon topp rek ak waa Turquie sëñ daam jërëjëf lu jiw a jeexul jugu fa ñu waajal nag la 27 incha allah Cheikh Ahmadou Mountakha war a ñëw fii ci Masaalikul Jinaan julleen doo ak nun Euh, sëñ Abdoulaye Diop Bichri ñu ngi koy jotal ay nuyoo moom tamit di am mbég ci moom mbégte bu baax a baax waaw sañ Saliou Samb nee na mi ngi lay ziare euh, lu jiw a jeexul jugu fa laylan ma baraka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di leen taxaw déglu lii may wax borom Touba.